Thank you. النجوم ما جاك فاس لولا مقادير الحكيم إلينا عرفوا بما أقوي بهذا الثاني سيقنا التيجاني سيقنا التيجاني لا تقصرن توصلا وتبقت عنك مالي سلكنا التيجاني عبدا لمن حق الصداق بفضله آه، بدربك هذا بالزان النوراني واي وكما الرياس دائما نغضبي نغضبي في عالم الروان سلكنا التيجاني سلك بابكر سيكينيان فترات ربي مع السلام دائما أبدا على خير الورى العنان من أجل وبآله Hey. hang it الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين نجلو سي سانتال يالا بو باخا باخ غيناو بي جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ñi ngi ko doon xaar booboog léegi ay weer la ay fan la ñaari at ngi nii ci ginnaaw amuñu bis bu mel nii tey nag alhamdulilahi rabbil alamin ci kattanu yàlla dogal na ni sang biñ doon xaar di cer Thierno Mouhamadou Bachir nga xam ne moom mooy maam Cheikh Omar tey mi ngi fii ci Dakar ci Scat Urbam ci daaray Safina kër Thierno Hamidou Yoro Bane ñu ànd ak mboolem àdduna fa sene ànd ak Safina TV en direct incha allahu rabbi ci programme bi Euh, tey nag journée euh, cérémonie bi la démb def nañ xadaratul jumaa ah, ak kilifa yëpp dégg nga Thierno Hamidou ak waxtaan wa am solo bi nga xam ne waxtaan na ko fa ak sang ya fa teewoon yëpp tey ñu ngi ci cérémonie bi adduna bépp ak ñuy suivre ñi nga xaar Thierno Mouhamadul Bachir euh, fa tabarakallahu ñu santaat yàlla nag bu baax a baax bi ñu mayee maam Cheikh Omar ñëw daagu si suñu tànt ñu jàkkaarloo ak moom saafonte ak moom ñoom fa tabarakallahu ci ndimbalu Thierno Hamidou Thierno Hamidou nag ñu ñaanal ko yàlla yàlla gën ko dëgëral parce que souvent damay faral di wax ni Thierno Hamidou ñett rek moo ko yitteel muy réew mi jag diina ji jag tarixa bi ñong té benn bu ci nek mi ngi def yitté ak effort bu mat sekk sekk fa tabarakallah ñi nga and ak Thierno bashir ak haye Sakaria fa tabarakallah ñom lañuy bayyi ak antenne bi ñu waxtaan ak aduna ñom ñoo ñu min programme bi ñom ñoo ñu gën maîtriser programme bi waye it aduna yëpp yéen lañuy dégglu lañ safo eh, ñu bayyi leen ak tay yi nga xamni bis la bo nga xamni bis bu kenn dul fàtte la ci rew mi di bisu ñaan di bisu ziyara wayde bisu sakku yewu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barkatuhu bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe safina tv to gonɗon ene gondirɗon e nder duude baba adama min juurima mone e mon kala ɗo juwetee weltoɗo fa tabarakallahu ahsanu haliina ko adi fof ko wiide bihamdillahi e mantu nema allah ɓe jetti allah tabaraka wa taala wurnude en hawridini en kadi e oɗo édition mo ganduɗa ko 2020 ɗe ceerno zaka ousmane caggal ɗe allah walli en 2019 ɗum wayirno wadde ko wiyete ko covid 19 rewi ɗo adno fof faaɗi julɓe fof nendi adno fof duwi allahumma hrina mina zulmate ila nour allah yaltinane yimɓe rafiji addi afiya henndu jaam wutte aduna o ɗe ɓamti programmeuji meɗen hande noon heɗene ɗo e nder e staff ɗumbammo gara yoo e nder galle ceere men ceere hamid no heewi wiyede kala saaha ɓuro lollude ceere men ceerno yaro machallahu no heewi wadde kala e saaha jiyara mo warata taw koye yeeso teddugal e yettande allah se yiɗi cheikh mouhamadoul bachir montaga ɗa ha cheikh oumarol fuutiyo radiallahu taala no gorko mo ganduɗa ceerno zaka ousmane am allahuma munno yaade amina hande ɗo yeeso seeɗa oɗo aset mo gonɗen sappo e ɗiɗi lewru men wiyete novembre hinaɗe ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hande jamma yimɓe jiimu huttudire julɓe woto ko yehude munen mi woɗɗinoyta e haalaka mi nenam fuliram ceerno zaka ousmane ɗo bisimilla mo ndendori kaaje allah jarama a jarama ceerno basidi mourtaga en mbi alhamdulillahi rabbil alamin ko arde foof min calminimama en calmi haji mansour fall mo ganduɗa hoorema kanko udditi e oɗo kihiide kihiide aset mo ganduɗa hoorema ko ko sabbono ɗi dumunnaji kala e mbimo seydi faalo jarama e jejjita ɗon musidɗo men sammamoudo sy gaari kuñi kaari gorko mo ganduɗa hono ha guila addi en allah addi en oɗo galle enenne makko gondi e safina capanɗe jeena jettoɓe ɗiɗi ha ga e safina tv eko taari ɗum kanko woni moƴƴinowo galle ɗe kanko woni pewnowo kanko woni dewintoɗo kanko heeɗe kaɓɓire ceeɗe par ce que sen mbawi darede hande e aduna he kala ɗo mbawɗe darede kanko oɗo gorko jogui kaɓɓirɗe en mbimo seydi sy cuhlallamo juuɗe yo allah juuɗe wonde balle hoctel ko wona ɗum koccere basir allah jarama jarama en garti e ngal dingiral ngal gowoɗen dingiral ganduɗa hoorema ene wowi hebde ɗeɗo inde allah ɗiɗo wasifaji baɗaɗe ɗo ɗi ko ɓonni ko ɓooyani ko eɗen gandi kadi alhamdulillahi rabbil alamina so tawi ceerno basir mutaga ɗa ka chemol footiw ayriɗo e ngallo dental wonata sara wonata kadi goho walla ɗiɗi hay goto anda no foti laabo ayriɗo e ngallo leegal ɗum noon en mbi alhamdulillahi rabbil alamina no mbiɗani ñal haalama hanki o yaari no foti yaarude ni e guilla subaka e aljuma woni noga sappo e goho lewru hitaɗe uñaa ɗiɗi e nogas e ɗiɗi woni 11 novembre 2022 en gandi kay tigui rigui en mbaɗi wirduji kewɗi e, waɗama hen kamilaji mbaɗama hen on sa nde gaynoɗen eɗen gandi kay tigui juma juulama nde juma gayno juulede eɗen gandi kay yeehi ha hiiri waɗa asru juma caggal ɗum heo allah hewɓe ceerno basiruɓe allah hauri ummuɓe guure ceertuɗo e nder guure en taski hen awlu annabi sallah alih sallam musidɗo ceerno oumar ba e ceerno abou aƴan gaari belni hen no jamma hanki o ni e gargol ceerno men ceerno yerɓan e men imam seyba ceerno mouhamadoul mouhtar tine ɓe kaalen haalaji belɗi baɗɗi fayida on saaha ɓoyani jeyaɗo allah ceerno mouhamadoul bacir moutaga ɗaha badiraɓe kala jalti bool gam jaɓɓade eɗen gandi omon ɗo galle ko waɗani en ɗo ɓoyata kadi o ara o arta e dingiral ngal so allah lamɗo jaabi so allah jaabi jogui dilal ceer tinggal ngal o woowi ngal ganda hoore ma hono no mbiɗa ni duwamo ko en yaade amin o hala bandiraɓe nana kono hande no ceer basir iya, musim yewtere nde ko musidɓe ceerlam ceer ceerno men ceer mutar silla pa yau silla kanko yewtata holko yewtata o yewtata gurdam ceer cara mum ka ɗa ha chemal foutiw tawno ko banggal wolof wasa so yaajoyi so ya allah hoddiri enen ma en jañi ya hai ha ya yaaje mbaɗen ɗum to pular so allah jadi faccire ha yimɓe nana ko ɗo ko nde won noon ko ceerno yeero mo jiiɗa ceerno basiri on waɗi deftere mawde e faade ceerno mohamdoulah basiri murgaɗa ha ko nan deftere o jogori yewtan yimɓeɓe hooli oɗo jeeyaɗo allah mo ganduɗa hoorema cuuɗinoɗo to ɓuuri logguidde lugguidde e cuuɗo kono ɓeeɗo jeeyaɓe allah allah holliɓe ɓe gandi oɗo jeeyaɗo allah jaltinimo to wonto ha bandiraɓe julɓe mbawiɗo mbawi naftorade moon hande ceerno basiru ceerno yeero ma ar mo arde ɓiɓɓe yontaɓe ɓe ganduɗa hoorema ko taniraɓe seydi cheikh mola fouti rallah taala anu eɗen gandi kadi aɓe ɗo e leydi e gargol ceerno men ceerno maɗani muntuga amadou muntuga cheikh mol e musidɗo men jina men ceerno seydou muntuga amadou e ganduɗa hoorema e taniraɓe cheikh omen e ma limtudeɓe e gardugol to banggue sharifaɓe sari abdoumoudouleyɓe sharif ali en ene gandi ngal dingiral ene wowi wowi jaɓɓadeɓe maɓe garɗo kamɓe kala ceerno basidou so haaji hodiroji allah so tawi yewtama en guddata taw jeeɗe allah o donaki e bandiraɓe julɓe ɗum ɗo eɗen gandi koye dingiral gonɗen dingal escal irmam grand f koye haaldiri moon e yewte safira tv gonɗen ceerno basidou ko joni hunde e fuɗɗi aɗum ɓeen ene jima enen dewino so allah jaaɓi ɗo e ɓooyde kadi kala ko holla goɗɗum ko ɓuuri yaade kadi ma en mbatten so allah jaaɓi inchallah joni ceeɗo basid mi hokkuma jokkita golɗe aɗa wawi darde mi dara caméra o on saha kala ko wawi uddede hen on saha sen gaɗi kadi ma en gartoo so allah jaaɓi inchallah seydi so bisimilla ma ceerno zaka ousmane haade ma yaade allah jarama a jarama en coynima ceerno alhaji mouhamadou moussa ly <coughs> jafo ɗon gorko mo sasel talɓe machallahu gorko jontaɗo radio e kala ko ɓamtu safino seifu mar aɓe hen jeeya saabu deftere ganduɗa ko deftere hawnide safino seifu mum fuuti radiallahu taala no hakke deftere nde fiɓade yimdene weeɓade ala ko haali haala janggudene ala ko haali haala firdudene ɓesɗu ceerno murtuga limo tatel talde oɗo tuɓu safina golle maɓe jooɗi saabu kamɓeɓe daari maɓe nanggu safina ha julɓeɓe fof belto e coynima goto e mabɓe basata ara yima safina e safina tv ko hunde haade ceera zagra ousmane no mbiɗa nanni caggal yettude allah mbi hamdillahi e mabɓe ndema allah ɗum ɗo yettante ko allah ngal ɗo digiral ko hawrta e maggal ko e oɗo jiyaɗo allah garawa e ngal ɗo digiral e ɓeɗo ɓiɓɓe furankoɓe ɓe ganduɗa sa daari caggal yimoɓeɓe a andan ko ɓiɓe yinne ande en ko ɓiɓe cuuɗi gandal ko anduɓe gandal ko anduɓe mantuɗe ande sallahu taw sallam eɓe nanga deftere ganduɗa seyɗalɗi maliki radiallahu taala anu e cheikh oumar kañum woni fouta cheikh oumar woni sénégal cheikh oumar woni afrique galleji dine galli jaaɗa wonko lomɗi hakkude cheikh oumar e jomumen ko haalama e so deƴƴama wadde bandiraɓe juuɓe so cheikh oumar are men e jaltat jabɓuɗen seeku mar teddinen seeku mar mawniɗen seeku mar sabu eɗen gandi hande halifa makko e dow leydi ndi ko sey yim cheikh mouhamadoul basir mon tedaɗa ha seeku mon fuuti radiallahu taala ɗum kadi ko gorko mo allah hokki ceeno daka ousmane ɗum noon ko yimɓe ani jaɓi sali dokkal allah e ngal allah waɗi ngal allah waɗi gayni o fandinigal o gayni kala jiiɗomo e kala jettiɗomo e kala takkiɗomo e kala gonɗo e makko e kala jaɓo duwawo makko wonko dañata ko ngaɗuɗa ko mawni ɗum noon hande juuɓe fo nen ɗo ndenni mallude ceerno yaro e yettude allah e oɗo kiɗiɗa e oɗo jamma jaɓɓade oɗo jiyad allah o ara allahuma makko yaade amina enen fo betten juuɗe jiyene amina ha juuɗi kumto ñagoɗen kanko ceernaji wona yallah juuɗe gurnam yallah ɗaccu ɓoye e dow leydi ɗaccide ene makko ha yeeso ha yeeso bar arɗen ma ma makko cheikhu mum fouti radiallahu taala anu ɗo noon tigui ceerno bachirou allah jarama jarama monsieur de mansour fall kanko lomti gaari kuñikaari sa mamoudo sy kanko jogui caméra o o saaha kono mbaɗande oɗon keɗo yewtere mon nde hono no mbiruni ceerno bachirou oɗo jiyara mo ganduɗa hoorema hande ko sappo e goho lewru sappo e goho ɓi e, sappo e ɗiɗi lewru sappo ɓogirtita e ujunaji ɗiɗi e nogasa e ɗiɗi ɗo e escar ibam grand yeuf so allah jaam inchallah ma en jaa joni ma en gartu ko adi ceerno radio no ara ceerno bachirou ga daax Cheikh Omar Fouti incha allah taala salje sëñ Mansour Fall xam naa si kanam dañu ñëwaat léegi léegi dañuy ñëwaat léegi euh, rédivision li si nekk dañ ko waxa tout ci wolof encore dañ ñëwaat jël gaay yi ndànk-ndànk bu soobee yàlla léegi ñu ngi leen dox ñu ngi leen jox dox dajé si kanam tuuti nañ del soit si ci ci étub inshallah allah sëñ Fall jërëjëf merci wa koy yeen yi nga xamni ni yéen ci suivre fi ci journée fraternité bu Safina ci Hamidou yoroban di dalal waajuram di fi dalal euh, serignam di cerno mohamed bassi nga xamni mo tok toog toogaayu maam Cheikh Omar ñi ngi fi ak kenn ko nga xamni ku min kër gi la waye ku fi xam la waye ko xam tariqa bi tariqa sayyid Cheikh Ahmed Tidiane la di di oustaz Alhaji Massyla Kane kenn dootu ko presenter ci aduna oustaz ñi ngi lay nuyu di la ziara. ñi ngi lay fay nuyu Mouhamadou Mansour ñi ngi lay ziar bu baax. day am contente bu réeré ci daje yow. tay ñu fekk la ci journée fraternité bi nga xamni ne Hamidou mo fay dalal wayjuram juróom mohammed al bashir bu mam Cheikh Omar fouti yu tal tay ak journée bi ak ki nga xam ni moom lañ fiy dalal ak maamam lan nga ñu si wax Oustaz Massir Lo euh, tabarakallahu Mouhamadoul Mansour euh, journée bi mooy journée fraternité Thierno euh, affaire fraternité lu ko yitteel la ah, tabarakallahu te moom itam du ñu ànd moom sax dama constaté ci moom ci moom loolu ndax su suñu xamanteeg moom daanaka léegi mu dem ñaar fukki at ñun ku ne xam na ni Tiwaawan la ñuy defee suñu tarbiya donte nag Tiwaawan ñoom ñëpp dañu yàgg di wax ni waa kër Cheikh Omar ñooy suñuy kilifa waaye moom ci boppam wax gi mu koy wax da cee boole daanaka gënuñu ko fonk waa Tiwaawan moo tax bu ñu fi ñëwee bu ñu fi yendoo duñu bëgg a gaaw a dem bu ñu fi fanaanee duñu bëgg a gaaw a dem ndax li mu nuy bëggal ci sunu kilifa yi nga xam ne amuñu lu dul ñoom ah te loolu nag fi la dundal fraternité toll yem moom Thierno Hamidou ndax bu fekkee ne Cheikh Omar ko jur surtout Cheikh Omar la ah si daa ji Malick lu mu am Cheikh Omar jox ko ko ah waa Tiwaawan reconnaître loolu ba jël cër bëpp daal koy delloo ci jotaay bu ñu mën a nekk di ko wax bu Thierno dee jël ay njabootu si daa ji Malick ñoo xam ne ci ëttam la ñu yaroo fa la ñu jàngee jox leen ay ay ay responsabilité ci biir këram ndax Thierno ubbi na rajo muy Safina waaw muy Safina euh, Safina euh, FM daanaka ña ëpp ca ña ko yor njabootu Tiwaawan lañu mu ubbi télé pour ne defati noonu bis bu rëy bii nga xam ni bu nekkoon ko raciste bu ko organisé kan du fi làkk wolof kenn du fi làkk wolof bu doon ko res waaye tey li ci ëpp wolof yi ñoo ko féetewoo te wolof yooyu njaboot fii daal ji Malick la kon fraternité bu ko wootee mérité na ko te war na koo wootee ndax da ko caa fekk ndax dañu ni eh, li woykatu arab bi wax ni wa xayru taqiyin yamuru naasa bi tuqaa tabibun yu daawi naasa wa huwa alilu nee na ki wérul ki ragalul yàlla bu pare di jàngale ragal yàlla dafa mel ni médecin buy consulter ay malaatam te gën leen a feebar waaye bu doon wootee fraternité te fraternité boobu mu mu saboote ko bu boobaa bu ko wootee ñëpp ne accam waaye bu wootee fraternité ñëpp dañ ci d'accord ndax da koo dundal. macha allah oustaz ni ñu faram fàccelee. Thierno ak bis bi mu woote kon avant mu koy woote daf ko dëm dund ko ba pare mu xëy xay ubbi daara ñi tuuti mu ubbi mu indi jàkk jël zawes maam Cheikh Omar su wootee li indi rajo lépp ngir jàngale ngir yëpp ngir yaatal l'islam ak tarixa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane yi wallaay loolu la eh, Thierno mi ngi tàmbalee fi fi xam nga li woykat bi wax nii maa lii fil kaw nii si war rahmaani yi wal Moustapha wa Ahmad Tijaani woykat bi def ne ñett yi laa am rahmaan mi nga xam ne moom moo bind jaam ñi moom la war a jaamu ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la bool moom la ñu booleel mooy sunu model ak Cheikh Tidiane Chérif mi nga xam ne mooy sunu jëwriñ loolu nag Thierno waré waré na ci jangalé na ci bind na ci Thierno boko ko ci ëtt bo xam ne kenn du ko tudd ku bi mu jël drapeau boko ko ci ëtt bo xam ni nga fa tuddu Yonent bi tuddu fa Cheikh boko fa fekkee jox ko drapeau rawatina nak muy ëtt bo xam ñu fa tuddu Yonent bi. tudd fa Cheikh tudd fa Cheikh Omar mu dolliwaat ci tudd fa Seydi Hadji fu ci nekk ceerno bu fa taxawee bu jëlee kàddu mbaa mu jëfandiku nga jox ko diplôme. kon dafa mel ni ceerno dajale na mbooloom jàngale la njëkk def yàlla kese comme ni nga ko waxee léegi. wëlbatiku nag yaatal yaatal journée yu mel nii te journée yu mel ni dafa am importance ci réew mu mel ni réew mu senegal oustaz. ah kay ah loolu bu yaatoo bu yaatoo. ndax sëri Cheikh Tidiane Sy radiyallahu taala anhu sama kilifa dafay wax ni bu nit yoree sawaram ni day taal Bargny nit day taal dëkk bi nee na jarul xeex mat mu toll ni ma mut wutal ndox mu ni tollu tek ku mu jëm ak sawara nga jëm fak potum ndox benn du taal dara mbaa bu tàyyee bàyyi kon bu lii yaato day dem ba gàllankoor ñi nga xam ne safaan bi moo leen yitteel te mooy fo ak caaxaan te mooy fo ak caaxaan oustaz ñi kontaan lool ci jàkkaarloo yow ci journée maam Cheikh Omar waaye duñ la bàyyi te waxoo ñaari baat ci maam Cheikh Omar. waaw Cheikh Omar Fouti radiyallahu taala al mujahidul kabir <laughs> ndeysaan Serigne Cheikh de nee na ko daal gisuma ci nitu yàlla yi ku la gën a niroog sa turandoo Taal. parce que ndax Omar xam na ko ci jàmbaar boo ci jaas yi ak defanteeg yi ba tuubloo leen dugal leen ci diine si Cheikh nag ci biir na bi mu ni ko eh, hada min allahi tajri xawlahu l usru yaa ashbaha annaasi bil faaruqi yaa omaru nee na nit ñi ñëpp yaa ci gën a ñëw Cheikh Omar Cheikh may la may goo xam ni ba muy lu tuuti la ko tàmbali Serigne Cheikh Tidiane Sy nee na bu la yàlla jox cër ba ngay ndaw la koy tàmbali moo tax boo demee ba nekk mag di xëccoo la la rëcc rëy na rëy na waaye Cheikh Omar laata muy gane àdduna feeñu feeñu na bi mu gane àdduna yitam seeñal na laata ko mag ñi nga xam yàlla may leen basiira may leen xam-xam junj nañu ci ay mbiram am na lu mu feeñal ci ndawam am na lu feeñi tamit ci njëkk gane àddunaam kon tabaarakallaahu Cheikh Omar di ah, tax ñu tudd ko al mujahidul kabir macha allah. jërëjëf jërëjëf oustaz xam naa incha allah daañu dajawaat léegi ci kanam incha allah fekk na ba ci di ñëw kon mi ngi noonu. bandiraɓe musidɓe tedduɓe oɗon jokki tan rewidade dayra annuel hitande mbaɗowo hitande kala woni dayra mo ceerno hamidou ayeho bane hande woni cérémonie officiel o inchallahu rabbi golle ɗe ko janggo uddata mi wino on nane tan dayraji gumorima partout aɓena natira goto goto eɗen dardi ɗo e dayra safina international walla mbiyen dayra safina mauritani tawi koye gardogol débatjo mo dardiɗen o sohna mariam aliou mbaye ko kanko ardi dayra mo ganduɗa oɗo fi ko tonto noarchot en dokkanmo tan o salmodira e bandiraɓe o haalan men dayra mo ardi o sohna mariam aliou mbaye Ibrahima min mbima assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi waaleykum assalam wa rahmatullah seni min calmini min juurima min calmini bandiraɓeɓe foof dendagal yidɓe cheikh omar fouti tal min calmini min juurimaɓe eyyi kona ɗum ko gadda ɗum koye délégation safinamo mauritanie chaque année comme d' habitude min gowi wadde ɗum machallah une forte délégation ɓe ganduɗa ko waɗi représente donc safna international euh, sohna mariame namna dema tan a ɓooyi arde hawride e gérou uji mbaɗi dani euh, an ardi dayire mo ganduɗa o ko safina mouritani euh, ko ɓuuri on ko pusde ha hitande kala on jiiɗa wasde tawtorede golle mbaɗi dani ko ganduɗa ko woni ziara baɗowo ɗo e nde dakar tawi ko yamirore ceerno bachir tall eyyi ko ɓeydare ko ɓeydare chaque année somin gari emin jiiya ɓeydare emin jiiya dawal allah amin ene ɓeydo kadi machallahu rabbi emin ndewoɗo allah emin jiiyaɗo kadi bandiraɓe ɓe foof kadi min gara min juuɗo ceerno emin ñagomo duwaw kadi emin eh, kadi eh, eh, beltoromo machallah eyyi kay ɗum noon wiide moon bisimilla tan on jarama an e dendagal délégation mo garɗa wonno ko sohna mariama aliou mbaye toon to ganduɗa o ɓe ɗo fi ko toon to mauritani o kanko arde oɗon délégation ɗum noon ko wiide tan jokke rewdade programme mo ganduɗa o ina ke kewɗo hannde e skaɗɗe bam a tawi e, ko gihaha annuyel mbo ceehno basirou tall tawi ko yamirore makko ko ceehno hamidou yero bane waɗat ɗum e kala hitande ɗum noon allah yettini e men hikka heen jokki rewdade programme bandiraɓe musidɓe tedduɓe no min mbino on nanni tan eɗen ɗo e tantaka gihara annuel mbo ceehno hamidou yero bane waɗata kala hitande eɗen dardi ɗo e directrice safina fm on woni ñumma ardo ba oɗon paami so wiyama ñumma ardo ba tan hakkillaji foof jokat e hakke haalirde mon safina fm 98 point 2 e mbimon so ari debbo nafani so ari no gorko nafata ko kanko ardi haalirde nde guila 2014 faade hannde omo tawtore kala ho keɓata e galle o oko ɓiɗɗo e nder galle o sa haali ceerno hamidou antoumane dembocar so tawi ñumma ba arɗo haalama hen hakkillaji foof dogaɗe nden haalirde directrice safina fm min mbima tan bisimilla ma e golle ɗe jiyanɗa hoore ma golle ceerno hamidou antoumane dembocar holko nguddi desdata amen machallah caggal yettude allah e julde annabi sallallah alih wa sallam seyni saro sar an équipe ma samba e haj mansour machallah e télévision oɗo man machallah gummiɗo pour uftude ceerno e oɗo ñalawma wiide tan machallah ko weltade tan e yettude allah machallah sa eh, noddude ene weeli kono noddude note ɓuuri welde machallah ceerno hamidou noddi notama e kadi notiɓe ko yimɓe waɗɓe fayida machallah e journée de fraternité musulman mo ganduɗa o hitande foof ene yuɓɓene ɗoyte escade urba duuɓi ɗiɗo ɗiɗi waɗani waɗi ɗum ko coronavirus o ayi machallah wayino yimɓe jiiɗino ɗum ɗo jiɗiɗ yimɓe jiiɗino golle ɗe e ɓamto ko sa yi machallah machallah ngal ɗo dental ganda machallah ko dental bangal valeur seni sarou sa euh, directrice an ardi haalirde safina fm euh, kala ho kewte galle o humpanima euh, duuɓi poɗɗidani tan ardo ken tolno duuɓi ɗiɗi noon ziyara o waɗani a yii hande kala to mbeɗiɗa ñorgo ma memata leydi toɓɓere suɓadi hikka cahno hamidou yaho ban suuɓi ko yewtude halife général famille oumah hen holko ngoɗi mbaɗta saabu heewi mo jiiɗani mante tawi mantate ko caggal muɗum kono hande haalede ɓuure e darde on mo ganduɗa o ko cahno bachour tall holko woni hen ko ngoɗiɗi mbeddoɗa machallah so thème waɗama ceerno eh, ƴetti inde inde thème o woni ɗum ceerno eh, bachir tall modéle de piété et de sagesse machallah ko wiyete ko tan eh, neɗɗo rutti teddugal rutti rutti rutti rutti rutti ko fonno ruttude kala foof ne andi ceerno hamidou no waye ceerno bachir tall donc on so waɗimo timtorgal o waɗimo darolgal hikka oɗo édition hande wiyama thème jewteteɗo yewtete koye ceerno bachir tall machallah hawri e yuɓɓite kadi machallah poɗɗo yewtude nde ɗon yewtere darde ko pahaj pamatar silla yimɓe fof ne gandi darde pamatar silla e ceerno hamidou yimɓe fof gandi darde ceerno hamido ceerno euh, darde pamatar silla e oɗo gorko jeeyaɗo allah woni ceerno euh, bachir tal machallah ko tem baɗɗo fayitte kadi ko wiyete ko euh, eɗen goni e Euh, sahamo ganduɗa déperdition des valeur kono woodi so wiyama tem addama yewtama e ceerno bashir ma yimɓeɓe mbattu hen haqqille yimɓeɓe ɓeydo wattorade pour que valeur uji mbawa artude no hannirta ni inshallah seydi sa gatten kalñu ko rek ci kallama e olof euh, waaw comme niñ ko waxee rek machallah ren euh, édition bi ñu waxtaan ci journée de fraternité musulmane bu daayira ceerno hamidou ban safinatu sadati ñu taxawalat ko tay ñaari at ci ginnaw ñu xawoon teunk mbir yi coronavirus tënkoon ñu tay yalla def ñu dekkilaat mbir mi ñu taxawaat war a cee waxtaan ñu tànn tem nag war a waxtaanee ki nga xamante ne moom mooy macha allah euh, borom jamono di Thierno Bachir Tall Thierno jël tem bi def ko ci moom ñu war a waxtaanee moom nit ki mu doon model bi mu doon mu ñëw ci heure am nag parce que nekk nañ ci jamono joo xamante ne yàqu-yàqu yi dafa bari valeur yi aussi tam dafa xaw a wàññeeku bu baax ñu jël Thierno Bachir def ko modèle def ko référence war koo waxtaanee dañ naan macha allah euh, Thierno Hamidou ca mboy mboy ga ɗum noon ko yettudema e jarnadema e wi tan yen tawtore ziyaruji e kewɗi kewɗi min mbima seydi ba machallah yen tawtore ziyaruji kewɗi kadi jarmen foof en jaggui hen seydi yen kamɓe samba yen mamtoude falen kamɓe foof machallah e média ji goɗɗi deux s tv en euh, al asdad euh, almaliki en kamɓe foof machallah e radio fulɓe télé fulɓe kamɓe ɓe gaadi ɓe jaade men e oɗo programme eɗen tan jarnoɓe eɗen wiyaɓe koɓe mbawi hikkaɓe mbawi ko ɓurɗum mo wuuri inchallahu taala sukaɓe mennoɓe rewde ma teddule ɓe gaari ɓe nde e junggo ma e sababu ɗum duttaɓe kamɓe ɗe teddugal fof noon ko nden teddugal teddugal ɓuuri ɓuuri ɓuuri mantinade hen ɓuuri darade hen kamɓe on équipe guila safina fuɗɗi guila 2014 ha hande papdiri faalen e ɓeɗon foof machallah ɓe gara ɓe jaada men e oɗo saaha ɓe ƴetta teddugal kadi ɓe mbaɗana ceerno hamidou ceerno hamidou welti hen ha ɗon wawi hadde neɗɗo foof ko andu on to hoore ma te kamɓe oɗo geste men mbatti tan eɓe duwonima koye mabɓe machallah jarama seydi jarama wonno ko directrice halirde safina fm ñumma ahɗo ba jokki rewdade programme o inchallahu rabbi kala ko wawi kewɗo ɗo humpatamon min jadat e moɗon en direct inchallah enen ɗo dardi e tata meɗen suwadou uh, ba en dokkatmo tan uh, kankone o adda yiyande makko tigui rigui e ziyara mo tawtora o e yiyande makko eko wawi hen ko weddade bisimilla sohna suwadou ba assalamu aleykum rahmatullah ziyara sona weltade e arde notade ceerno kati mo riso ɓiyam ko mari mari ko ɓinguelam min yummakken koddi to site biyagui ɗo sac ane gila puɗɗimi arde ha joni hitande foof mi arat mi tawtere ha do a hokkirimi sona yettude allah e yettude nelaɗo e, e ñagade allah tan yo allah ɓamtumen e diine men l'islam mbatteno allah hokka heen ceerno kadi ko yiɗi ko kadi kala ko haalaa ɗo duwa ɗo kadi yo allah notanen heen ko ɗum tan ñaagaa heen yo allah fewnanen tan kadi wuurde kadi haa tawtoreede kadi mo wuuri inchallah eyi kay ko weltaa tan ko weltaa tan addan men ɗo eyi kay a jaaraama yo allah hokke heen tawtoreede ɗo kitaale keewɗe waɗde ko jinnaaɗo men suwaadou ba wonnoo banndiraaɓe musidɓe tedduɓe jokki rewndaade programme o tan inchallahu rabbi kala ko waawi keewɗe ɗo humpataa moon ko en direct wonata tigi banndiraaɓe musidɓe tedduɓe alhamdoulillahi rabbil alamin ko pareteno e lebbi e jonte allah yettini men e ñalawma hannde o hannde woni uh, cérémonie officiel ziara dayira safinatou sadati mo ngannduɗaa o kala hitaande ne waɗa caggal noon nde juɗɗen ken tolno e duuɓi ɗiɗi ziara o heɓaani waɗde sababu nde covid 19 allah artiri men hitaande hikka allah hokki men fartange uh, ngam uh, yuɓɓinde gueɗe ɗe tawi ko ziara ceehno hamidou yeroban e yamirore halifa général famille omar yen kono ceehno bachirou mumtagaɗa ha cheikh omar foutiw tall eɗen ɗo e santa ka aɗo beddiɗa ñorgo ma memata leydi bandiraɓe gummima banggueji kala e johlinayyi windere ɗi e kala ɗemgal kalategal bandiraɓe dendiɗo e ñalawma hande o gam mawnide ñalawmaji ɗi golɗe noon puɗɗi ko aljuma hanki e, tawi ko yamirore halifa général famille omahyen kono ceerno bachir muntagaɗa ha cheikh oumar fotiw tall e, dendagal seremɓe halifaɓe diine umriɓe banggueji kala kawrtiɗo ɓoyata seeɗa oɗon paami yewtere nde fuɗɗo tawi waɗata nden ɗo wonna yewtere ko oustat pamata sylla o yewtata koye darde on mo ganduɗa o ko halifa général famille oumar yen hono ceerno bachir mon tagaɗa ha cheikh oumar fouti utal darde makko e dine l' islam wonde mo jaral kerga e nder dine l' islam eɗen ɗo e tantaka eɗen gondi ɗo e jinnaɓe meɗen e yayiraɓe meɗen ɗum noon en dokkat tan jinnaɗo mo darde ɗen ɗo o o présente hoore makko yaye ñuguilay nuyu ñuguilay dalal yagui en direct merci maguilay fey modom maguilay fey ginaaw biñ la nuyoo rek yaay dañ lay dalal ak jàmm euh, ñu lay laaj euh, sa xalaat euh, ziara bi Thierno Hamidou Antoumane dem Bokar di def chaque année nga jox ñu si si sa xalaat ak mbootaay bi nga àndal nga présenté sa tur ak sa sant. man maa ngi tudd madame Ndiaye Adja Betty Mbaye xam naa tudd ah, ak ñi ma àndal. dañoo ñëw teew si ci journée fraternité musulmane bi nga xam ne moom lañu suñu Thierno Hamidou Bane jagleel chaque ñu daan ko def yàlla def na covid 19 bi jaar fi ah, ñu toog ñaari at defuñu ko duñ ko defalit euh, ñu ngi doon liggéey ci biir ah, daara ji da tey jii nag bis bi tey ñëw ah ñu dekkalaat ko muy loo xam ne lii kontaan nañ ci lool ndax dañu ko namoon namoon nañ ko defal nañu ko kon nag dañuy sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant Thierno Bachirou Mountaga Daha Tall mu Seex lii yëpp moom lañu ko jagleel ndax moom moo ñu ko defal bu Thierno ne journée fraternité musulmane euh, am na lu bari lu mu ci undu wund na ci ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe ñun ñi nga xam ne ñooy uyoo ci ummaam islaam ñu yaarante ci bés bii waaw ñun ñëpp ay frère lañu ñun ñëpp dañu war a ziyaarante ci bés bi waaw bés bi nag dañu naan ziyaare Cheikh du Bane dañu naan ziyaare Thierno Bachir Tall waaye si ziyaar bi ñun ñooy ziyaarante ci suñu biir yal nañ ko yàgg teewe yal nañ ko yàgg joxe kontaan nañ ci lool wax sa yàlla kontaan nañ ci. yaay booy noo gisee thème bi ñu jagleel euh, yoon bi ñu waxtaanee ko euh, xalifa général famille Oumarienne euh, mooy Thierno Bachir Mountaga Magat Aha Cheikh Oumar Foutiou Tall ndax bari na nit ñi fu ñuy wax mbaaxu nit ginnaaw bi mu déddoo waaye El Hadj euh, Thierno Hamidou Yero Bane idée bi mu jël delloo njukkal Thierno Bachir Tall muy teewe ci kanamam muy dund mu fekkee lépp ban euh, jàngat nga ci am. waaw loolu moom delloo bi ci ndaali la ndax ñun foofu la naane maam Cheikh Oumar Foutiou yàlla nañu ko yalla fayal euh, euh, Seydi Thierno Bachir sal yalla nañu ko yalla fayal li lepp li ma la wax ne mom, moo ñu ko jagleel ñoom ñoo ñu ko jagleel ndax mam moo ñu ko bayil ñu diko don ba legi da dañuy ñaan yalla Thierno Bachir yalla na dund te yag fi and ak wér ak wér li bepp jabotam jay rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. amin ya rabbi inshallah allah jërëjëf mama abeti job, ñu ngi lay jajeufal bu baakha baax euh, Betty ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax bandiraaɓe musidɓe tedduɓe ha joni eɗen jokki rewi ndade tan programme mo ganduɗa o uh, koko heblanteno uh, ko juuti eɗen ɗo e nder uh, tanta ka hay hunde wona ko ina humpa moon ko an direct wonata inchallahu rabbi ma en natɗe e sohnaɓeɓe beele mbawen hebdeɓe inchallah moni foof barkinoro e ñarawmo o harana men wol dayra mo ummi ɗum noon en jokkat tan wa koye yen ñi ga xam ni yene ngi seetan safina tv e ci journée bi nga xam ne mooy zone Thierno Hamidou Yero Ba ñu ngi nii ak borom dëkk bi ñu ngi nii ak monsieur le maire monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la ziara. maa ngi leen di fay di leen delloo ziara ñaan yàlla sunu bés bi yàlla yàlla gën a yokk barke bi barke bi ça va. tey yow yaa dalal maam Cheikh Omar di Thierno Mouhamadul Bachir nga xam ni moom mooy xalifa maam Cheikh Omar. fii ci ëttu Thierno Hamidou Yero Ba mu fekk na yow ngay nekk nday jëréew ji te yàgg na du tey. nan nga gisee journée bu mel ni sa commune. sant yàlla bu baax ndax damay ne Thierno Hamidou dafa daf ñu indil bés boo xam ne day wane lépp loo xam ne mbaax na ci Grand Yoff ndax boo xoolee Grand Yoff li ñuy dëkkale da nga yaakaar nit ku baax yeewoo mais ku toll ni Thierno Bachir at bu jot mu bàyyi léppam ñëw Grand Yoff kon xam na ne ki muy fekk Grand Yoff ki baax la ki ki muy fekk Grand Yoff ñi mu ñu baax lañ loolu rek moom ma gën a neex si bés bi. tey nga am Thierno Mouhamadou Bachir ci sa biir commune ñu gis nag boobu ba léegi sa relation ak Thierno Hamidou ndax yaakaar naa ay at ngi nii suñu ñëwee dañuy fekk ak yow bis bi euh, avant sax nga nekk maire. man ak sama baay depuis quatre-vingt-dix-neuf la. ak sa baay Thierno Hamidou baax depuis quatre-vingt-dix-neuf boobu zawiya bi baraag la ba tey quatre-vingt-dix-neuf la ma ne loo mën a jàpp góorgóorlu Grand Yoff sa loxo ma nekk maire 2014. la la ko waxoon. bu amaan ziar bi ñu ko daan defee ci biir zawiya bi temps boobu foofu baraag la man ak grand Bell yàlla na ko yàlla yërëm ñu daan installé lumière man la mooy sama métier la diplôme mu ne yàgg na kon sama baay la donc bés bi dafa gën a yokk macha allah sant yàlla bu baax parce que grand F moom wax dëgg yàlla xam nañ ne léegi dëkku daara la dëkku ut si xam-xam la dëkku sàkku ñaan ndax fa Thierno Bachir nekk jàpp nañ ne gëm nañ ne dëkku sàkku ñaan ak dëkku ñongu ñaan ñu ngi leen di sant bu baax di sant mbooloo ko fi ñëw ñaanal yàlla ñëw ñëpp yàlla nañ delluwaat si jàmm fekk nañ bàyyi woon si jàmm ba pare bàyyi ñu gën si jàmm. jërëjëf monsieur le maire. waaw kay ñu ngi fii ak oustaz Cheyba fa tabarakallahu ku ko xam xam ko ak Thierno Hamidou Yoroban ku ko xam muy jàngalekat di imam fii ci Scat Urbam waaye ñu ñëw fekk ko ak Thierno Hamidou kon suñu organisé bis bu mel nii Thierno Hamidou organisé ko woy juróom sëriñam soppeem fekk ci ko tey du ñàkk ñu ñu laaj la ñaari baat rek ci Thierno Hamidou imam Cheyba. waaw alhamdulilah Azma so ñu ngi leen di ziar bu baax baax di nuyu waa adduna bi yëpp di nuyu waa Safina di nuyu ñi fi teew ñëpp euh, ñu ngi fii Sampir Bam euh, ci bi nga xamante ne pay bu ne rek ñu ko dëkk ñoo koy def muy barkeel muy naat te lool la moom la yàlla defal Thierno Hamidou Bane daanaka waxuma la Scat Urbam waaye fépp soo yëm ci Grand Yoff euh, xam nañ kan mooy Thierno Hamidou Thierno Hamidou nag pour wax si moom dana yomba dana jafe dana yomba ndax dund nañ moom lu mu néew néew bokk Eh, daanaka ñu jege fanweeri at bon kon ba ñu fiy nekk fii fii ndaam da fooy la fii àll la boo gisee nag journée bi mu organiser ko ak ñu mu àndal Safina Saadaati mooy journée solidarité mooy bëggam tariqa bi bëggam diine bëggam mbokk yëpp bëggul kenn kuy jàmbat dara ONG baa ngi fi Safina xaaj mu ngi fi Safina humanitaire mu ngi fi yooyu yëpp ci biir ONG Safina la ko créé pour lan pour doom aadama yi am lu ñu suturloo doomu aadama yi maanaam moom seen bopp kenn bañ leen a not kenn bañ leen a moom Thierno Hamidou boo ko doon wax ku bëgg nit la ku joxe cër la parce que tey jii boo ñëwee ne Scat Urbam na da nga naan imaam ratib ñu ne imaam sayba mais moom moo sunu mbubaam jox ma solal ma ak ñi topp si man ñëpp maa leen di nuyu au passage imam Diop imam euh, Thierno Souleymane Bari maa leen di nuyu au passage ñoom it yàqu ci dara Thierno Hamidou Bane foo demit si zaawiya ba Ibrahima laa la fa teg fële maris mu teg fa imam Mbodj sama seex kon moom ku bëgg nit la ku wàccee boppam la parce que man tawaada lillahi rafaahu llah képp ku wàccee sa bopp yàlla yëkki la Thierno Hamidou bëggul kenn kuy jàmbat dara جامع حامد ومسكرو لو مخمسي نيت لو مخمتي نيت لو باخ دانكو واخ ميموار تا دو فاتي الحمد لله اللهم لا اضر تيت لو مخمسي نيت سي سوفان دانا لو دانا لي ييكتي دانا لا تك فو خامتنا فو كاويلا باغا مو جيل بوتوكو تي مباخام لو مو جيل بوتوكو تي با جامع حامد دال تي والو سيرينم تي والو وسيلام كو فونك تيرنا بشير واخ تيرنا بشير واخ تيرنا شيخ عمر فتيو تال كون شيخ عمر بشير موم Cheikh Thierno wax dëgg yàlla dafa mel ni baay ak doom waaye nag bu ñëwee ci cadre taalibe da ngay gis ne taalibe rek lay doon du nangoo feeñ mukk ci Thierno Bachir foo ko fekk mu ngi toog si wetam mu ngi toog suufam di xaar ay ndigalam di xaar ay waam Thierno Hamidou daal wax dëgg yàlla gox bi mérité woon na lu mel nii gox bi mérité woon na lu mel nii ndaxte ruux yi dañu ciy dundaat moom laa wax démb ma ne ruux yi dañu ciy dundaat tey loolu nag yàlla ak moom wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla fayal Thierno Hamidou daal mën nañ doon wax ci moom waaye léeg-léeg damay am jeune di wax ci moom ci yenn yi ndax falaatu zakku anfusakum mooy tax waaye xam naa ci moom yoo xamante ne maara day taali sutura daal ci moom la fekk baax teraanga ci moom la fekk baax wallahi nit la koo xamante ne daal li Thierno Bachir di def si taalube def na ko ci moom ba moom it loolu lay def ci taalube yi ba xoolee ax daara yi xale yi tahfiz bi ñu ngi mokkal alquran xale yi ren rek wala boog année bi di ñëw lu mat fukki li tax juróom am nañu yaakaar ci xale yi danañ mokkal alquran loolu lépp ci teppaaram lay jóge walaay ñi ko siy jàppale aussi leen di jaajëfal aussi euh, góor ak jigéen mag ak ndaw Safina Saadaati daal ñëpp a laxasu ci ginnaaw Thierno di ko jàppale ba yéen Safina TV bi ngeen yor ni ci foofu la bawoo ci foofu la bokk yéen a ngi ma seen waar macha allah daal jaaraama yàlla ko yàlla defal sutura daal. imam Seyba Thierno Hamidou dafa mel ni ku ku dégg jamono la ndax Amina Daara. handicapé ndax tel na comprendre ne al madaris so xam al masajid waaye mu andi rajo ngir daara ji nga xam ne nit ñi doon ñëw di jàng si mu internationaliser ko. waaw xam nga loolu mooy objectif am moom yàlla daf ko may visionnaire la day fay séntu suñu sori te lu la waxit nga wàllu internet gii ñuy wax fii Sénégal. si ji ko njëkk a instauré la man xam naa ci dara te man mii tey jii moom daanaka moom moo initié moo ne ma a ah, Imam Seyba jàngal li parce que nangam ak nangam si moom vraiment en 1993 bon ñu commencé di ñett ñett yi fii fii waaw tey jii la ci ne al madaris xabla al masajid lu mu teel a dégg la moo tax ba ñuy sas foofa baraag la woon rek su daan dafay fay mu nekk baraag rek mu ne nañu jàng bu ñu jàngee amaana ëllëg yàlla ñu fi génn benn borom xam-xam su ko defee ay borom xam-xam génn nañ fi ñu baree bari mu ne nag du ci yem naa ko gën a siiwal si anam boo xam ne ku toog këram ki toog Kër Masaar ki toog Dakar ki toog Thiès ki toog bitim réew dina mën a jariñu ci xam-xam dana mën a jàng mu jël ay émission tudde xam sa diine tudde makaarimul axlaax tudde matxu nabi tudde tudde tudde lu ne mu am ku mu ko jagleel ci borom xam-xam yi ne bés bi deel waxtaane lii su ko defee nit ñi man si di jariñu di jàng kon objectif bu rajoom bu waaye rajo communautaire la ko bàyyi su ko defee nit ñi serveur bi oyof na di nga oote ba doyal mais lépp loo bëgg a laaj dinañ la ko xamal ci grâce à Thierno macha allah yal mu ko yàlla fayal vraiment daal nit a ngi jàngi ba bitim réew te macha allah li ngay jële fii moom dafay jële jërëjëf jërëjëf imam Sayba borom xam sa diine mi ngi noonu ajuma ju nekk moom la ñuy ànd ak moom ci Safina TV moom la ñuy àndal tamit ci Safina FM yal na yàlla fay la yiw jërëjëf imam Sayba musid so cheikh mouhamadoul mouhtar tina ara nayi nder safina tv safina mo ganduɗa gowɗo hekka hettade kala jeeɓo safina tv ene hetto takkusano rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam gorko mo ganduɗa jaaɗo ha toon to makka taw mo karram takke suudu kaaba jooɗe rawdo rasulullahi guiɗo mum sallallahu taala alih wa sallam ene waɗa yewtere wiyeten takkusano rasulullahi e nder safina tv e nder safina fm ma adduno fo ne hetti hande noon ñalawma arti bandu ñalawma kewɗo wadde kala e saaha jontaɗo men hande o sayir sem hamdoul basir muntagaɗa ha seykou mara ziyara ko ziyara makko ñalawma ko ñalawma makko gari ko ceerno yaro waɗata ko yettirde allah mbi hamdoulla e mantunnema allah kono ko yettande ceerno basir allah ɗum wono woɗo ziyara sen mamdou mouhtar tir bisimilla waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu ceerno basirou so ceerno basirou so wuro wiyetego sange lo bali mi salmitimama mi juurimama e oɗo ñalama tedduɗo mi wi kadi alhamdulillahi rabbil alamin caggal nda allah rutti en e oɗo ñalawma mo ganduɗa enen fof enen gowi ɗum e ngal ɗo dingiral ngal ganduɗa ko dingiral barkil ngal ko e dingiral ngal ganduɗa enen mbawiɗi ko dingal sehumrol fouti ha joni hal pulare en mbino alaɗa yano kono artiɗe wonno ziyare mo ganduɗa o ko e dendagal dairaji safina tousa ada rewɓe worɓe wonɓe aduna o foof ndendi gaari e yeeso ceerno men ceerno yaraban mbi ene jiɗi ene jiɗi wadde ziyara ceerno men ceerno bachirou muntaga ɗa ha chefu ngol fouti hande noon ka samdi eɓe mbi ɗum aset lewru wiite ndu rabbi ustani ferga rasulullah ne yaare duuɓi ujunere e duuɓi temedde nayyi e duuɓi capanɗe nayyi e nayyi taw ko ɗo e nder capital sénégal wuuro wiyetega dakaru kono ko leegal biyetegal stat urbam ɓurgal lollirde suute kaadum e dendagal bandiraɓe ne goppi haajuji men ala ko dilliniɓe ceerno bachirou so wona tan arde huccidde oɗo waliyo allah biyeteɗo ceerno men ceerno bachir muntaka ɗa ha sahumrul futi mo ganduɗa sa yi yeeso mum tan a weltima haaji ne humto haala haalani noon ɗo werti juuɗe mum ñaguini tagore allah nde ko hunde nde ganduɗen ñalamu mo jiɗɗen ñalamu mo ganduɗa o enen gowi ɗum ñalamu mo pooɗanta ɗen hande mbaɗen ko nayyi nayyi ɗomɗunoɗi bayruɗi yiide ndiyam ene jiimaayo ɗum waɗi pittali men ɗi fo hande ne duuduno yiide oɗo walli yo allah ene sawnimo noon koolaɗo makko jonɗo mo mo ganduɗa gueɗe makko foof o fawi ɗum ke juuɗe mum no cheikh umarul fouti fawirno juuɗi tani ko ceerno djibi golle mum foof waɗi ɗum e junngo ceerno djibi ceerno djibi oɗon noon ko kañum woni tanum ceerno yaraɓan ɗum wiyete ko alaɗo yano artiɗo wonno ɗum ko hanki wonno hande noon ko e ceerno bassirou mountaga ɗa ha chehmrul fouti mo ganduɗa o gurdam ceerno yara foof ko chehmrul fouti dow ummi kuñi kaari dans les années 82 81 o naati leydi ndi o anda o wondani ɗon e yummiraɗo de o wondani e kaw ana bandiraɗo debbo kono mo wonde chehmrul fouti noon omo wonde chef tidiani omo wonde rasoulullahi omo fawi koyngal makke siraɗul moustaqim omo yooɓi deftere allah nde omo yooɓi salatul fati lima ohligue ala ko welatamo so wona gueɗe chekhmrul fouti allah noon wi a in tansurullah yansurkum son balli allah tan allah walla on te woowi sabbitak dama kumo darna koyɗe moon te ɗum ɗon noon woni ke yahata ko ɗo ha joni hande dendangue région ji sénégal fof sappo e nayyi région o fof kañumen fof no kawri ɗo kala dayir wonno naati ɗo ete fouta no fe no didore ene famdimo natani ɗo hande wona horkoƴere wona dondu wona wuuro witego boola birane walla boola aali wona ɗen guuri fo ɗe ganduɗa wona sadil wona gijulon wona fanayi wuram wona wona wona ndendori wuuri ceerno zacharia wona capitaine uji makko ɗi ganduɗa ɗi ko dariɗi ko wayno yaya conte en yaya ibrahima ibrahima yaya mamadou conne ibrahima ceerno ibrahima diatc ko ɗum tan woni ɗo wona jolfuɓe wona seeraɓe wona wona jaaguji nde wonno cheikh oumar foutu ni yaaji no fewi kamɓe fof hannde e ɓen ɗo ceerno bachir hannde ko ñalama weltare rek ndo ari noon o darni duɗal qur'ana ndo ari o darni juma no cheikh umrul fouti watno ni omo nodda yimɓeɓe e kalimatu la ilaha illallah gare ndewen allah mbaren allah kala e men toñjo goɗɗo yo yaafa ɗum saabi allah tan nguren nguurdam moƴƴam kala jaltuɗo aduna yalta jaltugol moƴƴol totten allah allah ko moƴƴo nannen galle aljanne ne moƴƴi min taw toon nelaɗo allah min taw toon cheikh tidiani min taw toon rasulullahi min taw toon cheikh umdul fouti o fi zalika fal fal yatana fasil mutana fi sunna yimɓe sene pooɗendir ko ɗum ɗo foti foɗendirde o jarama ceerno yeraɓan o walli o yoɗni o suuti o rendini ko sari o andini majjunoɓe allah jarama o jarama ko oɗo ñalawma tan woni ñalaw men enen foof jaggen hen gaten hen ñiiƴi men goto men fo yo war ka kañum jeeyi ñalawma o yen battinima wuuri kadi ceerno bachiru oɗo ñalawma oto won sakket ñalawmaji men yo allah accan en ɗo ceerno bachiru ceerno bachiru muntaga ɗaha cheikh mudou fouti o ɓooya ardade dental ngal o ɓooya ardade fouto o ɓooya ardade l'islam o wona khadimul hadra تاوك هادر شيرن من شيرن شيخ مرول فوتيم عثمان بن سعيد تانم سيدي صاحب تجانا دوم دوران وون نو نجي نومي يتين دين الله جاراما جاراما نانو نعم، يالا اشوندو يا دارن مون دين اون جودني اون بيوندي اون موجيني اللهم صل على سيدنا محمد وسلم سهيل محمد المختار تيم الله جاراما جاراما سيد محمد المختار bandiraɓe julɓe wonɓe e nder windere yeɓoɓe safine tv o nani oɗo gorko sen mamoutar tine mboɗo sikki ko mbinomi nane ko adi nde moƴƴata konngol o nani o gandi kanko tigue jaati wonɗo e nder galleji men diine so yiyama galle ceerno amadou alpha djiɓi moussalam seydi ñagmo boyina e siftere oɗo gorko so yiyama siftere n fonde as sen ji oɗo gorko nawtenmo galle bammakko fanay e ndoor allah galle allah machallahu sen di wona gorko nawatanmo galle sari mouhamadoul habibou tidiani ɗo e pikine kono e dendagal winder nde kala ko gorko mo ganduɗa kala ɗo dari ko allah ne ad allah cheikh tidiani wi so heewi cheikh oumar e moƴƴu men fuutankoɓe ɗum noon seydi mouhamadou mourta tine jaaɗo ha toon to makkatal mukarram dare e sarawde rasulullahi sallllahu taala alayhi wa sallam e manti annabi o ha gayni jokkodire julɓe e nder haalde men safine e safine tv aduna fof nani émission makko biyete takkusan rasulullahi sallllahu taala alayhi wa sallam ko on gorko wonno ɗo eɗen gandi o jubbi nde ɗo jubbande kono tan so tawi jeeyɗo ñaawi ɗo kadi e yesso wasata kadi ko addane ɗiyo e ñalawmaji ɗum ɗon min gartiri kongol ma alaji samba si ngaari kuñi kaari keɗen ɗen e kadi e karallagal tigui tigui toon allah jarama jarama ha ɓooya seeɗa wasata wooda yontaɓe fuuta kadi mon dañƴen dewoɗo goɗɗo kadi hono dani bisimilla seydi sy assalamu aleykum di leen ndokkeelati ci xew-xew bi nga xamante ne moom moo ñu dajale xew-xew sant yàlla la delloo ko loolu mooy hadafu daje bi ci turu Thierno Hamidou Ba di imam ratib Thierno Hamidou imam ratib stade Irbam ñu ngi leen ci dalal buñ ne dalal lépp bu ci ne rek sa mbiru bopp la waaye organisation rek moo tax ñu naan ñu ngi leen di dalal waaye ku ci ñëw foo mën a bawoo rek ci sa bërëb la ñëw kon nag di leen wax marhaban ahlan wa sahlan yéen ñëpp yàlla na jotaay bi nekk yiw mu mel ni ñu koy bëgg miin ak mu jot waaye yàlla dogalam ñaari at yi wees amul ndax ku ne xam na xew-xew yi xew ci àddina bi kon yàlla bu ñu mayaatee occasion yu man dajawaat moo الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله di dalam gan bukan fu gox yu fasantikoo yi ci mi di dalal jam. yàlla ngeen dale jam fekk fi jàmm delluwaat ci jam ñu ngi leen di dalal jàmm ci seen di dalal kilifa yi toog ñi jàkkaarloo ak ñu wan ginnaaw góor ak jigéen mag ndaw ñu ngi leen di dalal ci bërëb bu tedd di Scat Urbam ku xam bërëb bii ay at ci ginnaaw mel woon ni leen waaye yàlla ak ci baaxam ba Thierno Hamidou ñëw fi andiwaale la mu andiwaale ci ay anwaar loola moo fi des ba tey ba gox bi tey ku ne ñeme na ku ne bëgg na fee dégg ku ne bëgg na fee yéen kon xew-xew bii nga xamante ne moo fi xewee ñuy séntu kilifa gu mag gi fadilatu Cheikh Thierno Bachir yàlla na ko fi yàlla yàggal. yal na ko yàlla wéeral yal na ko yàlla doole sutur kon daal di wax ne gis nañu ñëpp ndax nit ñi bàyyi seen i soxla bàyyi seen yitte yëpp ñëwal kon nag fa jazakumullahu xayran ci noonu it presse bi ñu fi ñëw ñëwit incha allah dana am keneen ku leen tudd gis nañu seen taxawaay depuis démb aljuma ba tey yéen a ngi fi ak ñun yàlla leen yàlla fay sécurité bi it police gendarmerie ak ñeneen i koor yëpp gis nañu leen yàlla leen yàlla fay seen liggéey rafet na seen taxaw rafet na ndax mbooloo ju mel nii dafay laaj yenn taxawaay kon nag taxaw ngeen ñu ngi leen di dalal jàmm di leen wax jërë ngeen su ko defee bu ñu daanelee rek dañuy jox Saas Masir Lakan wala Mamat Makhtar Tine mu ñëw ci alpulaar su ko defee nag as tuut Pape Matar si la mi nga xamante ne mooy waxtaane thème bi. wala boog moom mu ne daf koy gàpp su ko defee kilifa gi laa ñëw mu andil leen li mu leen di andil kon nag di leen wax ne wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 ورضي الله عنه بالمكتوم مولانا سيد الشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه وعن خليفته ووارث سره الشيخ الفتيتا إخوة الإيمان والعقيدة نحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم كل عام وأنتم بخير بندرا بندرابي جولبي mbaawɗum wonde aduna fof on calminama في الإسلام onon جوري onon ñaage yaafi to bange min ka min jaafi ko wiide on tan bisimilla on onon bandiraɓe kala ɗo mbawɗon ummade ceerno men ceerno yaraban e daajiraji safinatu saada kamɓe fof ɓe mbiya on bisimilla oɗo ñalama ko ñalama mo ganduɗen oɗo ñalama ko ñalama mo gowɗen o ko ñalama ko cuusɗen ñalawma jinɗen kala ɗo dilli koko dillini ɗum ko ɓuri ɗum hewde doole enen fof dillini hannde ko chef mul fouti dillinen ko ceerno men ceerno bachir muntaka tafa chef mul fouti nasarahullahu hayyaka waɗi duuɓi noon caggal imam seybatou ɓay ko haali joni enen mbaɗanno ɗiɗo ñalawmaji enen fof enen nganndi wonko fali ko falino ko noon faltimo duttiɗen noon enen kesɗitino ñalawmaji enen duttooɗe gonna ɗen enen mbi alaaɗa yaano artiiɗe wonno ɗo escat irbam wiite ɗo ko cité khadim wiite khadim rasul ɗo kuuɓe ene gonno caggal sa ari ɗo wonani wano nde ɗo annore edugal ɗo dental e gonɗo kongol la ilaha illallah mouhamadou rasulullah adi ɗum ɗo ko ceerne men ceerne yaraɓan woni sababu ha jumaji mbaɗa ɗo woni sababu ha duɗi pour ano kuɗɗita ɗo on jiɓe ɗo sukaɓe joɗi woni sababu ha dairaji cari et Europe, et Asie, et Australie, et Afrique, et Amérique. ko gorko mo kuñikaari o jeyaaɗa gaawuɗo taa ɗum ceerno jibi o jiɗɗo cheikh mum fuuti o hoolaade ceerno men ceerno bachir mum takaɗa golle ɗen en ɗum ɗo banndiraaɓe bisimilla on wona enen ganda dendangal sere bi non ngari dendangal joyen fuuta ngari dendangal région ji sappo yi nay wonde senegal fof ngari rusa daway den ngari umma atu mu'minina soxnaabe moddude kadi men fo naati do en waliyaabe dibbu waliyaabe fo ngari nen do ndeji ooyata noon ooyata joni joni waliyo allah ɗi waliyo an ceerno men ceerno bachiru mum tagaɗa ha cheikhmol fouti ɓoyta ko naata haɗata konon foof ko noon mbiye bisimilla almaneɓe ɓe almuɓe ɓe noddinoɓe dairaɓe beltinoɓe tawi mana julɓe kono almuɓe wonɓe caggalam ɓe kamɓe fof ɓe mbiye bisimilla mabɓe ɗo yewtere hannde nde ko gurnam ceerno men ceerno bachiru mum tagaɗa ha cheikhmol fouti Ceerno men ceerno men taani men ceerno Saydou Nour Cheikh Mourou Fouti ceerno Muntaka Ahmadou Muntaka Cheikh Mourou Fouti en ya, e waliyaaɓe Allah ɓeen ɓeen jooɓinoo mbi ko oɗo hannde noon kanko woni e yewtere makko yewta de ole ƴewtoo ɗum ko ceerno yero hooli ole ƴewtoo ɗum gandal ole ƴewtoo ɗum tafsir boy e eh, eh, sikaɓe urban kono ceerno paap mouhtar on yawta ɗum e wolof julɓe fof nana ɗum so gasi firte e pular raɓɓiɗine haade ɗum ima masilla kan ma ƴettuɗo konngol jooni wooda ko yewtani yimɓe enen fof kette ɗen kalannomi ke yamirore imam seybatu mbay kañum woni imam leegal ngal ɓi ceer mahamdou moustartin ɗum noon kala hen pular julɓe fof kadi mbelɗo dagana ha dembankani kanen kanamane weli gollere er, ha bel air hooro ñooro haari dege mbeɗa ha heɗi hayri wokama siwol sirɓe silla hay goto heddaki hande yimɓe foof geleeji ɗi foof enen kaptiɗo en direct ñalawma cheikhmul fouti bay ko ñalawma ceerno men ceerno bachir muɗoka ɗa ha cheikhmul fouti radio ngo noon mataw woni ella seeɗa ƴeewe radio ji bisimilla joni eɗen dokka konngol ngol pape mouhtar silla walla taw ko imam masilla kam goto mabbe goto ko yewti hen heddi ko non so boyi serre cerne men cerne yara bande ne lawol cerne bashir mun daga da ha shatu futi ne ne alla mun hay ko ya saba nyalama hande o wonko wondo surprise aji mawde mbade do kala jaada mom dum bacciti mum webaami alla andi kadi kawro o hen yen battuni buuri kadi sayyid muhammad Mustaqim. da fanay allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam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 wa asxaabihi wa man nahaja nahjahu ila yawmi mbokk yi ah danañ yëkkati kàddu yu gàtt rek kàddu yi yi jib na jëkk conférence di ñëw dañ koy jàppee bu làmb amee grand bi bala muy ñëw yay jiitu. mooy waxtaan yii ma doon def ma ak euh, fadilati cheikh alxaaji muxtar waaye nag ki moom waxtaan bi moom bés bi ñu programmé ko mooy fadilatul ustaz ba maxtaar waaye itam nuyoo bi dañ ciy jiital kilifa gi ni te ni kilifa gi ni te ni meng kilifa gi di jon tani meng mooy Thierno Bachir ak njabootam doomam Thierno Hamid Yoro Bari doora nuyu nag ñi nga xam ni ci sabab boobu lañu fi teew alxaji Maxtaar Gine doonte ngi yore nekk modérateur ah imaam Busiri moo wax ni wa ida saxara ilaahu unaasan li saidin fa innahum suadaa ne bu yàlla tàggatee aw nit tofal leen ci ginnaaw ku texe nit ñi dañuy texe te texe kooka te comme yàlla nanguloon na ko topp ku baax fokk ñu limaale ko ci ñu baax day maxtaan di ñu leen ñu baax dañoo daje ca mun a ca makkatal mu kanam ca mun a ndeysaan ak cëram ak aajam ak yëpp mu xuus fi mu nekk ba fekk ñu fa ñu nekk ma ni leen xam nga ni lii cër lay firi imaamu junay bi dañu ko laaj ko man nihaayatu mu ne al awdatu ila al bidaayati dañu ko ne ko ci yàlla mu ne bu simple te moo def ci wàcc ci suuf moo tax koo gis mu ñor ci bu ñëwee ci mbooloo di préféré fa tey yéen te boo ko ko joxoon mu génn njib bi àggul di kilifa yu baax yépp nag ci kaw estrade bi ak mboolem ñi nga xam ni ñu ngi ci barab bi ah kaddu yi ñaari kaddu lay doon benn bu jëm ci Thierno benn bu jëm ci ci Pape Makhtar Sylla dafa am bu ma doon firi Thierno ci kanamu Thierno Bachir Thierno ni ma misaal nga leen di firi firi ay wax pour mu gën a leer nga misaal. ñu doon wax ci rek ñi nga xam ne yàlla daf leen a nettoo xeeb nit moo xam bu maa woyof moo xam mooy yaa bëriwul ma ni ko benn arab bindukat arab def nii wala taxqiran shaxsan min annaas allahu ولي الإله العالمين ولا تدري وذو القدر عند الله يخفى عليكم كما خفيت عن علمكم ليلة القدر ويكم دفن ولا تخرا شخصا بخير من الناس كنيب وجهك كان بس كما امانه كوك داي ولي الاله العالمين ولي يالا لا ولا تدري لي خمتي دار من ود القدر عند الله تنياري بورم داي بري تا يخفى عليكم دا فاي كما خفيت كم ني موي نبو عن علمكم تي سينو خم laylatul qadri ni muy nëbboo ci weeru koor noonu la nitu yàlla lay nëbboo ci biir jaam ñi même bu dee xale. Thierno Amady bi ma misaal ko ma ni ko dafa am maa ngi leen ko rek loolu la ñu al qissa at-tarbawiyya bu ñu dee lépp dara lépp bukki lépp du wax bukki du wax waaye booba comme enseignement coranique bi gëndaloowul yooyu lañ daan jëfandikoo ñu di ko wax al qissa at-tarbawiyya mooy des histoires éducatives. pour nit ki mën a xam ci ay misaal ma ni ko picc ma dafa ñëw ci ñay ni ko man de dama laa bëggoon a dénk sama bopp ndax sonn naa lool fu ma génn rek ma may jàpp ñay wi daal di fugutu ni ko mucc nga comme dénk nga ma sa bopp waxuma la sama jëmm waaye sama nopp bi rek moo ca làqu mucc nga di ko nag toogal ca carub garab day déglu sama jëmm picc ma tom ca taru garab ga même pas une heure de temps rëbbkati ñay ni garañ ak seen i fital yéen doon dàq ñay ba ngoon la mu mucce deug si ni picc mi yow de do kon ndax so ma denké sa bop ñu dama toroxal war nga ci jëm dara mu ko ah maa la dénk sama bop waaye yow dama maa deug ko ma sama bopp picc mi ni ñay ni ko kon nak dénk dara sama bop picc mi ni ko d'accord kon ma nga dellu fa ma tegoon ca suba ga rëbb ñay ñeex fële penku comme ma nga ca kaw mu sénkandi ko ñu nga nee ñëw jóge penku dawal wuti sow ma daw wuti sow te suba ga mu ne ko ne nga nee jóge sow dawal wuti penku rëbbkat yi noonu la ñu def ba mu jub ñu ne benn ñay mi dee na mbaa nekkatoo ci am ñu ne nekkati yoo jamono dina dox ba am picc di dimbali aw ñay ramisar bi na booba nag loolu laa doon misaal te mu nekk ci jotaay bi ndax bari waa na mu taasi ci biir mbooloo bi ci estrade bi te cër bi ko yàlla jox kenn xam lu su ko defee nag li may brosser rapidement ci Thierno Thierno Hamidou Ba dégg naa ci sama sëriñ sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mu ni nee na nitu yàlla bi ngay topp di ànd ak moom bu ko yemale ci aaya alxuraan bu mokkal wala xadis bu mokkal parce que bu dee loolu léeg-léeg nga gis xale boo xam ni matagul sax 15 ans wala 10 ans mokkal alquran xadis yëpp mu gën kon nag ki ngay topp bu ko teg ci alquran bi mu mokkal wala xadis bi mu bu da nga koy teg ci fekk kooka am cër ci wàllu yàlla cër bu ko permettre mu mën a dugg ci yow taalibe bi soppandiku bu génnee ba pare ci yow arme dut la mën a dàq alal dut la mën a jënd ceer na nag façon boobu lay defee tarbiya noonu lay yàq te mooy dignité personnalité yiiw set te it ku doon la ko toll Cheikh Omar nag tabaarakallaahu di njabootam war nga mën a am lu mel noonu mboolem moom la nga xam nga woyofee bi tooy ndax boo diisoo nit mu yenu la surtout réew moo xam ne yenu kilifa dafay xew mas naa wax ci benn waxtaan ni cëriñ gi xew ci réew mii marchandise chinois am na ci maa la ko wax cëriñ gi xew ci réew mii laa ni marchandise chinois am na ci waaye sëriñ bi ngay topp day fekk waxee nu takk yéen jàngu naasa bi tuqaa tabibu ñu daal di naasa boobu waa ak kiy jàngale ragal yàlla te ragalul yàlla dafa mel ni médecin buy consulter malade bi tey won ko rek ndeke moo gën a feebar wax naa ko sànq ci interview bi mbooloo bi mu dajale ay taalibe si daal di maay waaye comme tubaabam ñoom jël nañu seen bopp jox Cheikh Omar tey bu doon ko ras rasiste rajo bi ak daaraan bi ak mbottant bi kenn du fi laaj laaj woo mais li a fi defal te nag tabaarakallaahu loolu tamit dañ koy seetlu kon. Thierno loolu moo tax mu ubbi rajo teg ma fa teg fa Seydou Mbaye teg fa Moussa Imam Moussa Gueye teg fa Abdou Aziz Fall teg fa Mame Goor teg fa Pape Makhtar Sylla ak ah, ñu bari koo ci làkk loo làkk loolu nag bu nee journée fraternité état jiitu journée fraternité bu ko tuddee bés bi mi ngi woote toujours mbokkoo mbokkoo ci lan jullit ak moroom jullitam ña cay di ay tiijaan am na nekk benn bu xam ne Cheikh Alim Kouafi ña ca biir te bokkuñu tarixa yi te di ay jullit ñu ànd xam ne ay jullit lañ façon boobu la Cheikh Alim kon tabaarakallaahu a def conférence bi nag dégg naa ci sama kilifa sëriñ Cheikh Tidiane si mu ni bu ñu la jàngalee rek yem ca di nga bari coow waaye doo xam foo taxaw. waaye bu ñu la nàmpalee ci weeru yonent bi loo wax mu barkeel bu ñu boolee jàngal la ba pare nàmpal na ci weeru yonent bi nag mu nekk benn xeer bu jëm ñaari ci ci weeru yonent bi dara lu dul mag ñi yar nga gëm mag ndax am na ñu leen di wekk nga gëm mag ñi ndax am na ñu leen di wekk moo tax léegi-léegi mën la bu nit weddee mag ñi daf koy wootaabul romb ni ko yàgg alxaaja Abdoulaye Dabba ku gën dina naka nakal gaa dina naka nakal te wóoru ma sax wax ni maa ko gën bu la nii moo ma gën nga ni ko kala gën la mu nekk ba gën la loolaa gën du de dafa am ci weddikat yi ma ma koy wax ci kaamil bu ñu doon wàccee kaamil bu ñuy wàccee néew am ku ciy wax ci ci réseaux sociaux yi bay ba bay àppaat ba ñàkk di wax ni yonent bi bawu ko fi baaxul ku dëgg bidaa la bëgg weccet rek maa nekk laax ma ni ñëpp ko déggandoo ñu ne waaw man leen est-ce que alxuraan jàng ko amul yoon ñu ne waaw waaw man leen kon sañoo koo jàng ko ni naa ko jël sañoo sañoo am naa bi yoon ñu ne waaw waaw nga ni yoon may naa ko di tontu làqul tontu làkkuwul ñun dañuy dem ci téere yi di gis di gëstu tontu di dem ca Dakar yi ca guy yi diw tontu bi Serigne Cheikh Tidiane Sy waxee ni yonent bi tànk boo ko tàntal dina fa teew même bu dee 30 secondes mu ne am na ñu ko weddi parce que dañ ne yonent bi benn jëmm la nan la mën a teewee ci tànk yi Serigne Cheikh tontu ci xam-xam daal ne ah pourtant jant bi benn jant la te mooy leeral lépp ci àdduna bi te jant bi yonent bi gëpp leer ma ne ko loolu sax sori li gën a gàtt mooy. yonent bi dafa liggéeyal yàlla ba yàlla privilégié ko xeex ba ca Ikra ak xeex ba ca man ak xeex ba ca góor ñi ñëpp nee nañu mel moom seytaane moom seytaane moom mi ngi defalul moom képp mooy indi ba ca man indi ba ca góor ñi pour fasanal ba ca gaaraas yi géej way moom mel moom yonent bi liggéeyal yàlla ba war naa mën a am lu nekk ci barke yàlla dëkk. nit kon tabaarakallaa ba Maxtaar nag di borom xam-xam wax dëgg yàlla gëstu na te gëstu bii tamit bokkul ci borom xam-xam yi nga xam ne dañuy tàllal seen loxo bu ñuy wax te boo ca tegee ñu fàtte fu ñuy moom bokku ci de dafa yor daara internat di ñëw fii di di tarbiya mais yor daara internat di jàngal ay xale ñuy mokkal te la mokkal set wicc boole ko di ko jëfee boole ko di wul boole ko yàlla nottiwu ko iñaane ko yàlla may looloo tax mu taxaw ci ginnaaw ci kon tabarakallah moom moo war a def koo bi conférence bi itam bu ñu nee dañuy waxtaan ci Thierno Bachir war naa mën a nekk ndax ku baax a baax a baax a baax am cër jaar nag di ko topp nga gën leen koo fàttali ña ko xam ña ko xamul nga xamal leen ni kii mooy kii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na ci biir néegam moog Salmaanul Faarisi Salmaan di ko tagg di ko tagg ba yàlla yonent bi ni ko tax loolu bu mu géntee génnee te mbedd ca ko fa a wax mu ne ko waaw mu ne ko du wax ko fa ndax may dimbali sama mission bu dëgg kon tabaarakallaahu moo tax bu ñuy waxtaan ci Thierno Bachir dafa am ay qualité yu yu yu soxal nit yàlla yu nit yàlla war a ah ci jamono boo xam ni feebar yi nga xam ni taal bi da ko daan am dem te sëriñ ba bu faj léegi jàngoro yooyu sëriñ si na daal rëy siis ki ñaan fiir bañ bu baax da daan dal ab taalibe mu dem sëriñ ba mocc ko léegi nag te sëriñ sa tàmbalee feebar nag bu tàmbalee ci hôpital jëm ci ay kër du yomb a faj feebar bu commencé ci hôpital dem ci kër du yomb a faj kon tabarakallah maa ngi jégalu kàddu yu gudd yi nag maa ci koor bi dama leen di man dem bu ma jox mën naa koo traité ndax damay wax la ma ca xam bu jeexee ma noppi waaw damay wax la ma ca xam bu jeexee ma noppi te gis nga tontu moom nga dina rek Serigne Fallou Mbacke dafa am ku ñëw ne ko Serigne bi ban heure la ñu julli fajar mu ne ko fajar yow yeewul fajar yow kay yeewul fajar kon tabarakallah la yàlla bari ñu leen defal ñu jàmm maa ngi jégalu ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatulah Thank you. non bandiraɓe allah jarama on jarama jonde nde no ɓuuri juddirde fof baraji ɗi no ɓuuri hewde sappo jandoyi kala ɓe sappo jandoyi bisimilla sejatayi bari bisimilla on imam sama jari bakki jari on jarama bisimilla on fi yena kamo macha allah maa kaana lillaahi daama wax tasal wa maa kaana li xayri laay in adaawan fasal nekk ngir yàlla day yàgg lool ndax yàlla dafa yàgg bu nekkul ngir yàlla nag mais bu rafetee départ bi bu yàggee tamit day bismillah bu noonu ba mbir abi yi neex na jaar na yoon teg nga bu suuf si place ah, jolnuɗo bandiraɓe eh, enen payi noon e ko jolfu mbiyata nde bindumi enen payi e gando o enen e conférencier mawɗo o enen pawi e mo ganduɗa o ceerno men ceerno yero ɓandu no hooli ɗum no hooli gandal mum addani ɗum hande tottude oɗo ñalawma e nde ɗo yo pap mas eh, pap pap mas sohra babam abou mahtar silla enen fof mbattenen haqqillaji enen fof kettoɗen enen fof dañen hen gandal saabu yewtante ceerno bachiru foɓe zicrihim tata nasaru rahman haalde indi waɗi yaaɓe allah tan yurmede allah ne jikko hen بمختار سنة بسم الله تفضل مشكور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان وبالهدى إلى يوم الدين ورد الله خالد عن شيخ الشيوخ برزق البرازق تاج العارفين ومد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاه وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن نهج نهجه وسلك طريقه الخير إلى يوم الدين ورضا الله الخالق عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا المجاهد الأكبر والولي الشهير مولانا الشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه وارضاه وانا به امين إيه، تبارك الله كنا من سنت يا مسلم القرآن Thank you. وسيد الوجود وعالم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا يا كل رام اي درات اكن مقاما كنا خمي وسيلة سنجدن تلنا صلى الله عليه وسلم لمولانا السيد الشيخ أحمد التجار الشريف رضي الله تعالى عنه أنوال خلفاؤني أنوال مخدمني أنوال يخمني أي سبتم لي ñu ñaanal yàlla suñu borom subhanahu guddal fan moom suñu xula xalifa yu tedd yi jiite ci xalifa bu tedd bi ñuy séenu ci barab bu tedd bi di sëriñ ba di sëriñ di Cerno Mouhamadul Bachiru Taal ak mbokkam mu tedd mu sell ma di sëriñ Babacar Si Mansour jàmm yàlla may leen wér ak kattan ak fan may ñu ko may ko mbooloo ñu jëli waaye yàlla na ko yàlla may bépp xalifa bu nekk ci kaw suuf ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi nuyu mbooleem kilifa yi fi teew yépp kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant ñu ngi leen di ziyaar ñu ngi leen di baalu xaq ñu ngi leen di baal ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla boo leen jéggal nuyoo yi ñu nuyoo ak ziyaar yi ñu ngi ciy jiital kilifa jataay bi suñu ne kilifa jataay bi mooy Thierno Mouhamadul Bachiru Taal di xalifa maam Cheikh Alxaaji Omar Fuutiyu radiallahu taala anhu ñu ngi koy jiital ci nuyoo bi di ko nuyu di ko ziyaara ziyaaratul istimdaadi waaye di ko ziyaar ziyaaratu taalluq waaye di ko ziyaar ziyaaratu tabarruk te di ko ñaanal yàlla yàlla fi yàlla yàggal yàgg gi ànd ak wér ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam gannaaw bi ñu ko ziyaar ko ñuy nuyu njabootam yépp jiital ci Thierno Hamidou Yero Ba mi nga ni tey jii moom moo waral jataay bu tedd bii ci ngoon si tedd fii ci barab bu tedd bii woote ko wooteel ko kenn muy sëriñam di Thierno Mouhamadou Bachirou Tall kon Thierno Hamidou ñu ngi koy nuyu bu baax tabaarakallaahu ñu ngi koy ziar ñu ngi koy ñaanal yàlla naal yi mu naal ci diine lislaam naal ko ci tariqa cheikh naal ko ci kër maamam soppeem cheikh alxaaji omar al fuuti radiallahu taala anhu naal ko itam ci digganteem ak muy juram soppeem sëriñam Cerno Mouhamadul Bachir Taal yàlla na ko yàlla may mu àggale ko ak sago ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ñuy nuyu kilifa yi fi teew yëpp suñu soppi suñu Cheikh Tidiane Tall mi ngi nuyu toog tubaarakallah di sëtu maam Cheikh Al Hadj Omar moom it ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu mboolem kilifa boo xam ni yaa ngi ronu tànt bi ñu ngi lay nuyu. di la ziyaar di la wàccee sa wàccuwaay ndax yonent bi moo waxoon ni anzilu naasa manazilahum nit ñi na leen wàccee seen wàccuwaay kon kenn ku nekk wàccuwaay bi nga am ñu ngi la koy jox ngir jëmmi yàlla ñu ngi la koy jox ngir jëmmi yonent waaye ñu ngi la koy jox ngir yàlla mi la jox wàccuwaay boobu چې مو ممکن xam wàccee jaamam wàccuwaay boobu kon kenn ku nekk ci jataay bi ñu ngi lay wàccee sa wàccuwaay waxtaan wi nag ñu ngi koy ubbee ki tax yàlla bind ñëpp muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen ci boobu nga xam ni moy lépp yàlla yàlla waxal la bopam ni man yàlla dama nekkon ndàmb lu kenn xamul ma bëgg man yàlla ñu xam ma bi ma bëggee ñu xam ma ma feeñal ci sama leer leeru sayyidina Muhammad bi ma feeñalee ci sama leer لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لكل أمتي يا لمن من فأمل جلير سيد الوجود وعلى الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كن يرنت بابو وان يبيا فتشرح وما خلق الرحمن شيئا لنفسه سوى سيد المحمود وهو حبيب شيخ الحاجبان يلي قلو الدرع بدر بولو جيح نجيل بوفم من اللي يلي فين يبدفك بين بكر لبكر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلي تبورنا خمني يلا جخ يلا دفش موم اي قارن wax naa ko démb yàlla dafa waxal jullit ñëpp ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn wax déglu xul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurun rahim yàlla dafa ne yonent bi waxal ma jullit ñi suñu bëggee ma bëgg leen suñu bëggee ma yërëm leen suñu bëggee ma xool leen bi nga xam ne ku ma ko xool dootuma la mbugal ku ma ko xool dootuma la sànni lan la sopp yow Seydina Muhammad mais buñ la buñ la soppee yow yonent bi alayhi ne yonent bi boo ko soppee jëlaat nga ci ba a defal mooy loo ma defoon jéggal naa la قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تقبل ينتبه سوك تبير يعني يغفر لكم سنوبكم يعني متجدل رتي رتي قل ينتبه سوبك يا خمويكا دنانا موي بنتيا فأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل يتيام دي مخول ينتي يالا محمد صلى الله عليه وسلم مخول مي يكو يالا مي خول في يالا تب ينتي يالا محمد صلى الله عليه وسلم اكتر يمكو تيرلي اقنا اك الاخرة نجاك بياك موني بني اقول بني اقول فانت يو سيدنا محمد باب الله يو يا بنتي يا إيه انتبه مو بنتي يا mu ne ko comme yow yaay bunt yàlla nag ayumri in ayumri in ataahu min gayrika laa yadxul mu ne ko xoolal képp koo xam ne mi ngi jóg bi mu jógee mu ne ci yàlla la bëgg a dem te jaarul ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne kooku du àgg du àgg ci yàlla. parce que lu tax lu àgg ci yàlla mooy jaarul ci bunt bi nga xam ni mooy bunt bi mu war a jaar pour àgg ci yàlla te mooy Seydina Muhammad moo tax Cheikh Al Hadj Malick yàlla ko yàlla fay mu ne gis nga yonent yi yàlla yónni dara taxul yàlla yónni leen pour wane ni rek Seydina Muhammad a ngi ñëw wa xalqul axlaaqi baasul anbiyaa li zuhurihi muxaddimatun faalam ولا تبع شغل حدنا إليه وخلق الأخلاق بالمدية لبن مني فيه جلال والدي تقعد بأس الأنبياء وبأس الأنبياء أن ينجي اللي ينجي ينجي يكما سي آدم وينجي الله عيسى 123 999 prophètes كان رجلا جان عروسي تكم مي كم مي سيدنا كان رجلا جان عروسي تكم مي كم كتاح مام شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه تقول جهاتي نسوي الوقت لا إله إلا الله تلين تتك سيدنا محمد رسول الله سوي الوقت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تلين تتك وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله Thank you. kookoo tax yàlla yónni cent vingt trois mille neuf cent quatre vingt dix neuf prophètes ay yonent pour lan pour ñu annoncer jikku sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax Alaaji Maalik di wa xalqul axlaaq wa xalqul axlaaq بعض الأحياء ظهورهم قد فاعلم ولا تنبي baal leen ma rek baal leen ma rek du mën a ñàkk sax waaw waaw du mën a ñàkk mais ngeen baal ma tuuti rek Cheikh Al Hadj Malick ni waxal kul aflaaki bind gi yàlla bind mbindee fii wa baasul anbiya baasul anbiya alaaji Maalik nee na loolu yëpp mu xattimatul benn avant premier la pour lan li zuhuri yi ngir feeñu Seydina Muhammad xoolal yeneen ci bi yàlla mu si yónni Abdoulaye Bari soo déparé di dem yàlla daf lay woowaat nga ñëw mu ne la soo demoon di woote ba sëddi ko woote Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk la fa nooy def mu ni ma jël sharia bi nga ma jox dugal ci biir sharia jël sama woote dugal ci biir wooteem nekk taalibeem yàlla ne la xam nga li tax ma yónni la demal yubashiru xawmuhu bi annaka taati xaatiman bi nubuwati fa kullu nabiyin jaa yonent bu ma si ñëw yàlla yónni la soo wootee balaa sa mission jeex li ngay ci wax ak sew nit mooy xam nga mooy lan man kat dafa am koo xam ni moom laa yoreeloon lëngéey yi kookoo taxoon may wax muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku bu ñëwee na ngeen ko gëm kooku bu ñëwee na ngeen ko wóor kon kooku moo yonent yàlla nag defal ñu ñun jullit ñi garantie ci Seydina Muhammad xam nga ban garanti lañ defaloon wa maa kaana allaahu muazibuhum wa anta fihim wa ma kaana allaahu muazibuhum wa hum yastaghfiruun imaam Samba Ndiaye yàlla dafa yónni Seydina Muhammad ci suñu biir bi mu yónnee yonent bi ci suñu biir ni yéen ñi nga xam ni yéenay xeetu yonent bi te xeetu yonent bi ma wax la tey dafa yaatu même yonent yu jiitu ya ak seen nit ñi gëmoon yonent ya teg seen ngëm-ngëm ga ci ngëm-ngëmu yonent ya te yonent yooyu gëmoon nañu Seydina Muhammad ñoo ñit ci xeetu yonent bi lañu bokk yàlla ñu yëg xeetu yonent bi xam nga li ma leen defal wa maa kaana allaahu mu'azzibahum wa anta fiihim yàlla ne yonent bi xoolal xeet yu njëkk yi ku ma mos a tooñ mbugal naa waaye mu ne ko yow sa xeet yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ma mënti def du tax ma wàccee ci seen mbugal ci seen kaw yow laa la leen gusee yow Seydina Muhammad wa maa kaana allaahu mu'azzibahum wa anta fiihim yàlla ni yonent bi si jëmmu ji tedd ji feeñ ñu ci seen biir du ma leen dugal. mel na yonent bi yàlla mel na yonent bi dafa ni yàlla yaa ma bind te xam naa ni yow la yaa fi des damay dem te ñii bëgguma mu mbugal leen benn yoon su ma nekkee seen biir ak su ma nekkul seen biir mu ne ko wa maa kaana allaahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruun mu ne ko soo leen wanee gannaaw fenn ñi ñu sax ci baatu astaxfirullah astaxfirullah duma leen mbugal moo tax yàlla nu yàlla fayal yonent xam nga lu tax man yàlla nu yàlla fayal yonent astaxfirullah bi ñuy sàq mi في طريق سيد الشيخ أحمد التجاني الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خول غور يالا ييب نيت يالا ييب مو لين خول خول ولي ييب تان سي بن ولي موي اي موي اب ستم دي سيدي الشيخ أحمد التجاني الشريف mu yëkkati tariqatu tijaan yi teg لي loxo léegi xoolal nit ñi dugg وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ام البنتيجا ام البنتيجا وجاب تاريخ التيجا خيشوا تبدو تيمي استغفر الله تدور تدعو لفتيني استغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سوكو في جنوب يوم يو أب جل يننج بنينا سباكاري بطولو ندو سكيجي يالو جيغل للو شخي يالو بسبنك هناك limu gatt gatt wax ko fanwer yo moy yow mi wosifa ben yon par bis astaghfirullah العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم يرنتنا سوكو وخي جرومي يوم يالا جيغل لا مبولم بكار بو ديفون دونك سا بكار يي ميغي تول ني بوسوكي خمغا يوي بونيس يوي Sayyiduna Muhammad moo ko négocier ak yàlla yi ngay dégg ñu naan la te mu ñu naan la soo ko waxee wala soo ko defee yàlla jéggal la sa bàkkaar yi yi nga yi nga amoon lépp du wax duñ ko wax yow moo tax yàlla di la jéggal mais déedéet yonent bi moo ko négocier ak yàlla ba yàlla defal ko yonent bi ngir jëmmi Sayyiduna Muhammad xoolal rek ngeen noddu noddu nga ni tekk pour dégg pour pour wax la yàlla fi mu teg yeneen ci ñuy noot ngay déglu kii noot muy noot di noot ba agsi ci ashhadu anna muhammadan rasulullah yeneen ci bi ne nga ni raditu billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سيدنا محمد نه يالله جيكل لنا سباكار دون تطول من الدوش جي بيوم يكو واخ واي يالله لا اك تشوفير ام سيدنا محمد yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam comme yàlla nee na ko du ma mbugal sa xeet fekk yaa ngi seen biir soo fi jógee du ma leen mbugal fii ñu ngi sax ci baatu astaghfirullah moo tax ma wax ko parce que wasifa yi ñuy def ci jàkk yi ak di ko ci zaawiya ak di ko def bari na musiba boo xam ni dafa naroon wàcc ci biir réew mi looloo koy شيخ الحاج مالي بن نكو ان الوظيفه للخراء عازمه كذاك اقليمها في كل بلدان على ما يفهم ما ندير نتوغل جامنا يوي نيت ني بني واجي كين ادنا سكرات دي ميتي جامنا يوي تشيري دندون كف اي تشوت Cheikh Al Hadj Malick ni leen maa ngi leen di xamal leen su wasifa gi dana dem ba kenn dootul sukuraat la ngay ngelaw rek ba faatu. àgg nañ ca tey Al Hadj ni léegi da ngay ngelaw rek ba faatu lu tax fay métti fay woyofal metti tudde xamna ci kii de te de rek ñalaw mi ñu naan ma ngay ñalaw yewul ma ngay ñalaw yewul ko xamna ni kuy ñalaw yëgul métti ku yegul métti du nelaw alaaji maa ni inna alwazifata li xuraay azimatun kadaaka ixlimuha fi kulli buldaani Cheikh Alxaaji Maalik nee na dëkk bu ñuy wasifa wasifa mooy defal dëkk ba sécurité نخي شق جان جمع التاريخ بي نقول يا خي يا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم نعطي فنغيري دابا بغيت نقول فنغيري نقول لك سبلتي اي bàkk leen ci leen ci tax yàlla jox leen ko muy kan Seydina Muhammad jox leen ko courant ne ko moom mi joxe Seydina Muhammad courant mu ne yàlla junj na leen ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ñu ne ko ci ban salaatu mu ne salaatu bi dajale salaatu yëpp ñu ne ko boobu mooy ban mu ne alfatixi bi ma uxlix mooy salaatul fatix saxal xaaju loolu nii bàkk leen yonent bi ci salaatul fatih salaatul fatih alaaji Malick wax garanti yi nekk ci salaatul fatih déggal ala maratin minha من النار فدية وموت على الإسلام في ذاك يوسف على جمال من بين بيرو صلاة الفاتحة بين بيرو صلاة الفاتحة بين على جمال من سوق جانجي بين بيرو صلاة الفاتحة تبين كوي جانج نفستي سقل موي صلاة بكين تي صلاة يي موي صلاة الفاتحة نفستي سقل صلاة بي من جيجي تحبلة الغيب يالا تحكو كم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مجوك سيتم بكم سيد الشيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه نجام كبيريون من ألامة منها من النار في اليتون وموت على الإسلام في ذاك يوسف من بين كل صلاة الفاتحة من لفة السفر دمكو يوحتاني ديكو فيري وخو الشيخ الحاج مالي بوبو بنو كورني مدوم sama am El Hadj Malick waxul ñu jàpp tarixa bi de ma ne ko ñu wax mu ni ma ku romboon ci mbedd wala nga doon dox gis benn këyit wuy naaw këyit bi bi muy naaw nga ne lii de mbindum ndeyjoor la xam naa ni alquran la nee na nga yëkkati ko fekk muy salaatul fatiha nga jàng ko benn yoon ba nga ko jàngee benn yoon nga ormal këyit bi wut foo ko teg soo yëgee soo yëgul garanti na la sooy jullit sooy dee yaa ngi dee ci ngëm yàlla. نحن مسألة الفاتحة نتحم أم دولة كيكو يالا واتي تشمو تلو تحم أم دولة ويكن سيدنا محمد أبو لي بيكو جوح ويكن سيد الشيخ أحمد التجان الشريف رضي الله تعالى ماذا تاريخ الأبو خمي سوف جابي تحينا تاريخ تيا سوف جابي تيجيكو جفن دكو تحينا تاريخ يبقى باخنا nit yàlla yëpp am cër waaye tarixa tijaan soo ko jàppee te di ko jëfandikoo texe nga li Cerno Xaamidu di wax nee na bàyyi moo ko daan wax baaba nee na mu ko naam mu ko tarixa bi ku ko jàpp-jàpp dëgg ku ko bàyyi bàyyi dëgg tarixa dëgg waaye du ko mu neex nga jàpp ko alaaji maa ngi ne tariqa bi pour nit bu nekk ci nekk ab taalibi tijaan te sax ci te faatu ci ma ngay aju ca yàlla ca wa maa tashaauna ja illaa an yashaa allahu rabbul alamina moo tax mu way ko ni inna al wusula uxayya fi tariqatina fa bilmachiati la fi lkaddi jisman loolu tax Cheikh Alhaji Malick ni du ko mu neex nekk tijaan déedéet yàlla lay soob yàlla lay so mu bëgg yow nga nekk tijan mu def la ab tijan waaye du ko mu neex rek nga nekk tijan gannaaw salatu fatihi nga teg la ilaha illallah xoolal tarixa bi rek ni mu rafet moo tax suñu Babacar daan wax ni tarixa tijan li tax mu neex ma doom ji dafa nuróom ndey ji dégg nga wax دونك ديفو نورو نغايجي نغايجي موي شريعه المحمديه موي تاريخ تيجان ديفو نورو شريعه المحمديه يغوني تاريخ تيجان دومو كوت موي تاريخ بيغا خامني دا فا ام فقه الطريقه كون الشريعه دي امي فقه لولو تاريخ تيجان رك موكا تي مولم تاريخ ام اي شات نيا فك شات نيا بلا نجي دوغ ني ماي لاكو بلا من دوجي دين الاسلام دا هيغان تاخال سي كين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله تاريخ بي بلا كاي جاب دا ngay محمد البشير تاع مو واخ لا شاتي nga nangu mu wax mu mu jang la muy jang may la tariqa bi jang aya ba jayante ak yow comme ni sahaba yi jayante ndax jaayante ba saxaba yi jaayante woon jaayante boobu la yënt yàlla Muhammad rafaatale Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ci ay taalibam moo tax day jàng aaya ba tàllal la loxo inna allazina yubaayi'uunaka innama yubaayi'uuna allaha yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima aahada allahu alayhi fa sanuutihi ajran azima may la tariqa nga commencé wax baat bu tedd bi muy ban baat laa ilaha illallah toujours ma wax gis nga laa ilaha illallah di nga ñaan ndigal ci tariqa bi ñu may la ko nga koy werd bokkul ak ki ñaanagul tariqa bi di wax laa ilaha illallah sa laa ilaha illallah bi nga am ndigal moo ëpp doole te danaa la wax fi ma ko teg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa toog biir néegam جاك بيا برقم جتاب جفاك كفر سيدنا علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه ليرن في دماء بقول نخمل ما لو خمي سمك وحي كينا يدوخ سمو تيجن تيسام بورو لباي دا يرن تبي نكو كن نكو تشيني منكو ديدي يرن تبي نكو تجلني سيدنا علي خط بنت بتك نعم نعم كسي تبير نيك يرن تبي نكو جلل سمنا taf sama gémmiñ Seydina Ali jël noppam bu tedd ba taf ci gémmiñu bu tedd ka muy mu ni ko gëmmal Seydina Ali gëmm yonent laa ilaha illa laa ilaha illa allah nee na kii laa ñu doxoon sama تيونت ببي ووان ركنو لندرخ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قال نخم من ديغل بفعل الصلاة لكن نجعل كلمة المشرف لا إله إلا الله كما لا إله إلا الله قتلت جوهرة الكمال فكي ولا نعم قال بوبو خمني شيخنا شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه نانا ينتي بموم خولا لي جروم نياري mu ñëw fekk la fa bu dee place bu laab bu dee place bu yéen yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ne alaaj Maalik bi nag mu ne wa xaadirun nabiyuna wal xulafa ma sahbihi fi kulli yawmin xalwafa tarixa boobu nag la maamu Cerno Mouhamadul Bachir Taal di xool ba yàgg mu wax sayiduna Mouhamad صلى الله عليه وسلم دما بقولوا الطريقة ممشي كان حاجة ما دما بقولوا الطريقة طريقة بو خمي دمك يوتبر لن فرقيني تجامو يلي تجيني الإسلام فرقيني تجامو يلي سنتدن تكسن برو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نكبو غدفين دي أمبولو صلى الله عليه وسلم واحد وهم غارانتي طريقه يمدون غارانتي غارانتي لك كلهم بقل شيء الشيخ الحاج عمر رضي الله تعالى عنه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت كن تنلنا بين طريقه يمين تبين الشيخ الحاج عمر تنلنا طريق سيد الشيخ احمد التيجان الشيخ رضي الله تعالى عنه كنت تاريخ بابو du tariqa Cheikhaan xoolal Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu taala anhu koo xam ni balaa muy am juróom-ñetti at wala ci juróom-ñetti atam fekk na mu mokkal alquraanul karim Cheikh Al Hadj Omar juróom-ñetti at fekk na yow alquraan nga mokkal ko Baqara ba Naas waaye bi nga ko mokkalee Baqara ba Naas yi yemoo ci mokkal bi déedéet da nga ko mokkal ba pare jàngiwaat lii rafetal njàngum alquran ñu naan ko ilmu tajwid kan moo ko ko jàngal magam moo ko ko jàngal bi mu jàngee ilmu tajwid moom Cheikh El Hadj Omar taxul mu toog mu commencé wut service jàng xam-xam parce que xam nañu doomu soxna pour nga nekk doomu soxna faaw nga am xam-xam mu daal di jóg fu mu dégg ci bi bu am xam-xam moom Cheikh Al Hadj Omar dem na fa pour seeti te fekk booba yàlla may na ko ñu ko may ndax kenn ku nekk xam na ni Cheikh Al Hadj Omar radiallahu taala anhu cëram cëru Cheikh Al Hadj Omar daf ko gën a waale jamono toujours damay wax nit su fekkee cër bi dafa maasee yow cër la waaye baax na su fekkee cër bi dafa la dab cër waaye baax na waaye cër bi gën a baax mooy cër bi nga xam ne dafa mag borom te Cheikh Al Hadj Omar cëram moo ko mag balaa muy gën li ma waxoon sànq ci Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Al Hadj Omar balaa may demee jamono am na wali yu yàlla xamal cëru Cheikh Al Hadj Omar am na wali yu yàlla xamal dëkk bi Cheikh Al Hadj Omar war a demee jamono te mooy xallaa te booba ganeegul jamono wali yi daan jóge dëkk ak dëkk di ñëw xallaa di ziyaare dëkk bi ngir lan leer gi fi war a feeñ te feeñagul te mooy Cheikh Al Hadj Omar leer gi war a feeñ te feeñagul te mooy Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu taala moo tax keroog bi mu feeñee moom Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu taala feeñ feeñi nam gu yéeme ga gën a jamono na mu gën a jamono na mu yéemee moom Cheikh Al Hadj Omar xoolal liir boo xam ni balaa fajar ngeen baal na ci baatu liir كو خامني بلا فجر دغاني جام بلا فجر بلا صلاه خير من النوم ني ني ويرو كور وي فين لا نيار فكي فان اب جوروم نينت تي ويرو باخو توندي بيسو الله تي لا مامو تشيرن محمد بشير تاع متدي مي دغاني جام دينو خير دينو خير يقوم كور يقوم كور منكم شيخ الحاج عمر رضي الله تعالى عنه مويم ويرو كور غوغو ييب جيفنديكو وول ويرو وي جيروم امام ادم لتا غير اورمال كور شيخ حامد مين لم يرضع النهار في ذا الشهر وعمره إذاك دون الشهر لم يرضع النهار من النم يبدأ منها من الشيخ الحجومة مصر النم قتت في الشهر تويرو تدوو تويرو قوت شبر حامد نينا وعمره إزاك دون الشيء نينا بمه باي ويرني قتت تويرو قوت نينا بوبا قتل مومان شيخ الحجومة مطر أي أي بيسم مطر الوياك أما كل مطر الوياك الشمر ci dara la wax dundam Cheikh Al Hadj dafa wax dundam Cheikh Al Hadj dafa wax jaar-jaaram te dundam ak jaar-jaaram moom Cheikh Al Hadj Omar xoolal ni mu ko woon virgule laa wax virgule sëriñ mas na toog taalibe yi di leen jàngal ba yàgg mu ne ah maa ngi leen di xamal leen de taalibe yi wër ko sëriñ may wax de ku jugeen sukk jur sooy boo nga waaj bis dana ñëw ñu teg la ci kaw jaat jàppoo la yóbbu la ba ay armel ñu jeen la te boobu Cheikh Al Hadj Omar a ngi nekk tuut tànk ngeen baal ma ci wax ji at yi bareegul mu ngi pëkk-pëkk sëriñ bi sëriñ bi xool ko mu ni ko ilaa anna ba mu des man Cheikh Al Hadj Omar kenn du teg ci jàpp gis jàpp nii ni jàpp di ko jenc guddi na wala naaj na doo ko dégg ci sama jëm ni ko sama dund dund lay boo ñëppay dee xam naa damay dee ko ñëpp Wahai kenn du dégg ni Cheikh Al Hadj jamu dégg ni dan tëdd jaamu yàlla yu bëri daañu gis seen bàmmeel ni seen bàmmeel yi nii waaye bàmmeelu Cheikh Al نكنا عالم كل فن الحمد لله عالم كل فن ما كو خامني فن خام خام دو ولا فك نكو ميتريزي ميتريزي وحنا على جمل بو في خام خام سام موي مصر قاهره فلا شيخ الحاج عمر بن جمل لين في خام خام فلا الحاج عمر بن jommal leen ci xam-xam ba ñuy dugg ci dëkk ba na nga fekk waa dëkk ba bind benn tëble lan lañ bind ci tëble dañuy dëkk bi ku fi dugg di nga laaj wala nga laaj lu la jaaxal mag ñi ni mu ne leen ah si waa Cheikh Al Hadj Omar al Fouti radiyallahu taala man moom du ma fi laaj koo konti dañ may laaj waaye du ma fi laaj dara moom Cheikh Al mu dugg xoola misra toogam ñoom suba laaw suba tisbaar tisbaar ba takkusaan ñuy laaj Cheikh El Hadj Omar Cheikh di tontu ñu koy laaj muy tontu ñu koy laaj muy tontu ba yàgg ñu ni ko xanaa ku ni sa baay amul ci dëkk ba nga jóge ni sama baay bu baax la waaye ku ni sama ndey moo fa barewul loolu jigéen ñi bàyyi leen ci xel. لين في باي خل ما يخمني دوم دي لجيه يلنا نبي دي لجيه يل دوم لجيه بو خمني بدي تال تال بو خمني دوم فاي بيا ما خيانت دوم فاي بيا ما خيانت وده تيجي بنا نعرفك بس بروم كل نك سسان جيجن بنا كلا نعرفك بس بروم كل نك سسان na nga fexe ba jël sa borom kër teg ko foo xam ni tegoo fa kenn ndax jigéen kilifaam mooy waajuram soo génnee sa néegu waajur nag ñu jox la borom kër nga dem ci sa borom kër léegi sa borom kër mooy sa kilifa sa borom kër mooy sa waajur sa borom kër mooy sa sëriñ sa borom kër mooy sa lépp dala tax yeneen ci bi waxoon jigéen a ngi nii jege ba dee ñu ne ko nu mu jegee mu ngi si jullee juróom julli juróom woor weeru koor génnee azaka topp ndigalu borom këram ca la neex yàlla mu ne kooku su deewee yàlla da koy ubbil juróom-ñetti buntu aljana di ko seetal fa la neex nga jaar dugg dem aljana yàlla ko yàlla defal suñu jigéen ak bépp jigéen ci àdduna bi tey ak jigéen boobu tàntu safinatu saada bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa kooku nag di Cheikh El Hadj Omar radiyallahu taala anhu fii la jaar ci xam-xam moom Cheikh El Hadj Omar gannaaw gi mu dellu si fii ci réew mi di Sénégal gannaaw ba mu dajeeg Cheikh Chérif Mouhamadou Ghali jëflante ak moom li mu jëflante dellu si waat fii ci Sénégal indi fi loo xam ni bu dul woon ak moom lu la. Cheikh Al Hadj Omar taxawu diine lislaam balaa ma lay wax tariqa bi dama lay wax Cheikh Al Hadj bi mu taxawu diine lislaam

jihaad comme ni yonent bi daan jihaate loo taabe lay njëkk a def mooy naxante ak waa dëkk naxanteeg ñoom waar leen seen digganteeg seen borom wax leen yàlla sunu nangoo mu tuubal leen dugal dugal leen ci diini lislaam sunu nangoo nag mu xeex ñoom mag ñi ne daan na ubbi dëkk lu baax mag ñi ne ne Cheikh Al Hadj Omar dëkk xeex ak ñoom ci lislaam bu faratee wasifaam jotee moom mu lal balaa mu wasifa ñi muy jàngal lislaam te seen lislaam mokkagul ñëw fekk ko ci mbalaanu wasifa bi bu paree am ñu ñëw ni ko du bëggoon nga may ñu tarixa tijaan mu ni tee ngeen xaar ba lislaam dara tax déggoo ma de ah ma ni kii bu ko neexoon def réew mi yëpp ay tijaan waaye li ko intéressé woon mooy def réew mi ay jullit loolu ko intéressé def réew mi ay jullit bëgg nit ñi nekk ay jullit looloo ko intéressé woon dëgg-dëgg Cheikh Al Hadj Omar li mu doon dox dëgg-dëgg ak di ci xeex dëgg-dëgg pour lan pour l'islam am doole Cheikh Al Hadj Omar bi muy xeex booba am na xam-xam ba nga sa benn baaraam am na daraja ba nga sa ñaari baaraam am na wilaaya ba nga sa beneen baaraam am na alal am na alal di ko yàlla joxoon ci alal këram ban bis Cheikh Al Hadj Omar daanaka lu ëpp juróomi téeméeri ndax yoo xam ne nit ñi dañ ciy sukk di lekk ki xam nga ne ñàkkul ah yi waroon tax mu tëdd yëpp toog daje na ci bopp daje na ci Cheikh Al Hadj Omar dama ni Cheikh Al Hadj Omar bi muy sàpp ci xaj booba xam-xam moo gënoo ku dem jommal waa Égypte waa Sénégal taxul ñuy wax ci xam-xam Cheikh El Hadj Omar kott dong moo daan toog ci réew mi yaram wi tàng mu ni ñetti téeméeri charia ak juróom benn fukk yi am suñ ko effacé woon benn bu nekk man Cheikh El Hadj Omar ma delloo ko fa mu nekkoon te du ma xooy këyit amul ku ko mës a wax kenn rek ko waxaat gannaaw gi gannaaw Cheikh Al Hadj Omar te ki ko wax Cheikh Al Hadj Omar ko nampal ci weenam mooy kan Cheikh naa Seydil Hadji Malick Sy رضي الله تعالى عنه الله تعالى لا تنام شهر الحاج عمر الله تعالى لا تحاو ما تنبو ورقو من اسم الدنيا لما تجينا ماتي موي نتي تيمي الشارع أكرم بين فوق يلا تتي سم الدنيا تحاو مكو مكو وخان تيري لولا ما ما مات ما نكاي خمبل نوفي دوما سين مروه مالين رو فمونس dafa jël sëriñam moom Cheikh Al Hadj Omar moom Seydi Al Hadj Malick waaye loolu li muy teg mooy man duma seen morom maa leen dal عالم غيب وليس بالدين شبستك معمول أتى الملاذ شيخ يا جل وأنت المستغاث أه. وأنت المستعان أه. وأنت الجهيز والزمر يا صاحب يا منصور يا بدر يا شيخنا يا ولي الله يا عمر يا بلعة اليمن يا سعد الأمام ويا نور الزمان وسيف الله يا قمر جرجف دمرة ما تمنيو dëgg xasida bi mu doon way su ma juumal muxtaar bu mu wëddi moo ko way bu mu wëddi abdullah dëgg pour ma la xool Cheikh El Hadj Omar xool lépp lu sëriñ di def wala mooy nawe ab sëriñ fekk na Cheikh El Hadj Omar def na ko na waaye dafay def ba pare nag kii dañ ko tëj kaso biñ ko tëjee kose war ko àtte ki way xasida bi war ko rey amatul pexe mu ne comme pexe jeex na naa def tawassul ci sama sëriñ muy Cheikh Alhaji Oumar mais mu def tawassul ci sëriñam Cheikh Alhaji Oumar al Fouti radiyallahu taala anhu tawassul li muy tekki mooy naa ñaan yàlla jaarale ko ci kii mu ni naa ñaan yàlla jaarale ko ci barke Cheikh Al Hadj Omar ndax xam naa ni Cheikh Al Hadj Omar jaam la bu yàlla gërëm jaam bu yàlla gërëm loo laal ci mbiram yàlla gërëm la. inna lillahi ibadan ida arado arada yàlla dafa am jaam yoo xam ne dañ koo jaam di ko jaam. di ko jaamu di ko jaamu ba yàlla may leen cër ci moom ñu ngeen lu ngeen bëggati ma defal leen lu ngeen nekkati fekk leen Cheikh Al Hadj Omar ca la bokk lu mu defee tabaski ci Cheikh Al Hadj Omar ñu ngi tëdd ci biir cellule fi ñu ko tëj 6 heures du matin Cheikh Al Hadj Omar yegg jëmm jëm. Він не хоче горизонт. Така наркідія гульна. Дев'ять. Те хоче ділін, де парамо. bi gars yi ñëwee fekk waa bi dem ñu def alerte ci frontière yi xoola frontière bu ñu dem laajte ko dañ naan 6 heures 0 minute la fi jaar frontière yëpp laa 6 kon yàlla mayoon na ko moom Cheikh El Hadj Omar waaye ñun yooyu taxu ñoo jóg loolu Cheikh El Hadj Omar radiyallahu taala anhu nitu sharia Cheikh El Hadj Omar nitu xaqiqa Cheikh El Hadj Omar nit la koo xam ne ku jubóog boromam la nit la koo xam ne ñi mu defal ñëpp mu àndal ñëpp ñu jubóog seen borom la. Cheikh El Hadj Omar taala anhu sooy xool xam-xamam da ngay delluwaat ci ay taalifam téere yi mu taalif xoolal rimaax bu Cheikh Alxaaj Omar xoolal safinatu saa bu Cheikh Alxaaj Omar safina boo koy liir si ngay xam ni kii ku amoon cofeel la ci Sayyiduna Muhammad صلى الله عليه وسلم وخلاق بركة دهن كله ماني دفن تيري يو خمي ينتي بدفق قارانت كي تيري مدي ماني سفيني بيشي لبقى ما لك الله حياتي وجاي تتوزي آه. المجي أحمد وقدي وربي للكل فضل المحمدين الشيخ ماكل وليهبه قبل ولادك جلمتي فوالله ما أزهرت منه بأحمد سوابات دواد ولا داع لا يكفي تعال حياتي وجاي تبدي المد أحمد الشهمري وكذا حمداني ولي حبه قبل ميلادك جلمدي فوالله ما عذرت من حب احمد سوى باذبات كل داعي يكفي وسر حياتي وهو في ذكري معي دواء لمن يخف لأسمعي وروح لمن يسكو وروح لمن يكدي صلاة بلد لمن يشق الفتي على هذا الورى بصفائي صلاة waaw kooku ñu doon wax nag ak melokaan yi ñu wax ci moom mooy maamu ki ñu bëgg waxtaan mooy maamu ki ñu bëgg waxtaan kan lañ bëgg waxtaane Cerno Mouhamadou Bachirou Tall lu tax ñu koy waxtaane dafa nekk royukaayu royukaay boo xam ni ku roy ci moom am ngërëmal yàlla déglu yeneen ci bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne boo Daawud daan ko fa fekk xadis bii ma lay bëgg a wax Abi Hurayrata وقل إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها صلى الله عليه وسلم تيمي at yu يالا دانا يوني yàlla dana feeñal koo ni moo koy beesalaatay diineen ci yàlla dana feeñal koo ni kooku moo koy beesalaatay diineen ci lan moo tax beesalaat diine ji pour lan pour nit ñi xamaat fi ñu war tegaat seen seen digganteeg seen goro waaye kii bee sëg diine ji nag ni muy mel jikko ya laa la bëgg a wax juróomi jikko boo demee ci borom taayib suluki ila malikin muluki maa ngi ko fay wax muy iza lam yakun fi cheikhi xamsu fawaidin wa illa fa dajjalun yaqudu lil jahl nee na booy wut sëriñ nanga wut koo xam ne melokaan yii dafa nekk ci moom nee na soo wutul koo xam ne melokaan yii ma lay bëgg a wax dafa nekk ci moom nee na ki ngay wut daf lay ommate jëmale la ci réer ak alkalde ñu ngi melokaan yi ban a ban la mu ni basirun bi ahkaami shariati aarif sëriñ day jàng waay ah sëriñ day jàng yonent yàlla Muhammad gën ñëpp am na ñeent fukki at yàlla dogaloon ca azal ni da koy yabal ci mbindeefam yi waaye ñeent fukki at yëpp teewul yàlla dafa am lu mu jàngalewaat rek ci yonent bi dafa Jibril mu fekk ko ci xunjuma naan ko iqra ñu naan Jibril moo jàngal Seydina Muhammad booba suñu borom mi nga xam ne ñuy jàngal waaye kenn ku nekk xam nga ni yonent yàlla Muhammad moo raw Jibril ku nite xam nga ni sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo raw sayyiduna Jibril lii firnde bi xoolal ci tafasiru Qur'an yi keroog bi sayyiduna Jibril ñëwee di wàccee suuratu Maryama ba mu egsee bopp Maryama moom ak yonent bi bi mu nee kaaf haa yaa ayn saad dafa ni teg xool sayyiduna Muhammad سيدنا محمد خالق مولك خامل ميفين يعني دي بنيكو دوخال خامنا ميفين ودا بروم هم زياغي نان ما وارو مولكو لو وارو موني موني موني كليو بو خامي موي غاغان تي ميتر وي ان دو ييب يالا فام جانغالي بو جانغالي تي موم جامو حامد دا ماي فاران دي وخ با مختار بارينا اي ايه yu yàlla wàccee ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi taxul ñun ñoo tax yàlla dafa am lu ñuy jàngal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñu nekk sëriñ dafay jàng rawatina wàllu sharia sëriñ dafay xam sharia moo tax mu ne basiirun bi ahkaami shariati aarifun mu ni ñaareel ba tamit bu dul sëriñ boo xam ni yaa ngi ànd ak moom ci wàllu tariqa ilmul xaqi xaqiqa daf ko war a xam dafa war a xam cosaan yi muy ñaar mu ni ñetteel bi tamit yu baa yu baa yu baatiru lil waalidi bil bishri nee ni sëriñ taalibe yi buñ ko jikkalee kanam gu leer bu biir yi dañu war a fekk mu am ko maanaam ñeme loo leen boppam ndax luñ ko bëgg a laaj laaj ko ko ci wàllu xam-xam ak wàllu diine loolu suñ at yu ngi doon tagg Seydi El Hadji Malick ida jinaa nahwahu wajadnaahu zahlan layyinan lam yusaddi ñu ñun bu ñu ma saan ñëw ci Cheikh El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ijalisi nee na dañuy fekk Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu mu nekk nit ku jàppandi nit ku jàppandi léegi ñoom sëriñ day nekk koo xam ne dafay dimbali ay taalibe dafay di dimbali day dimbali ay taalibe mais li Thierno Mouhamadou Bachir mu ni sëriñ tamit dafa nekk koo xam ni même néew ji doole yi miskin yi miskin yi daf leen di ñemeloo boppam jegelewu leen boppam loolu la taxoon nag Cheikh Mahamadu ni kullu zamanin أتى يختار خالقنا في خلقه سيدا يهدي به البشر بشيرنا Olha só, Görüşüyle fırlıyor. Peki Bachir loolu Thierno Hamidou moo ko wax sëriñam Thierno Hamidou moo ko wax baayam Thierno Hamidou moo ko wax soppeem Thierno Hamidou moo ko wax ki nga xam ni fi mu ko teg tegu fa kenn muy kan Thierno Mouhamadou Bachir Tall wala bi yoon ñu mbër ki la jàkkiru dégg mbër ki la jàggi ruur ku tax wala day wax ne ku tax nga gën koo warul gën kooku da nga war a teg foo tegul kenn ku tax nga gën koo warul la gën kooku da nga teg da ko war a teg foo tegul kenn moo tax Thierno Hamidou teg Thierno Mouhamadul Bachir fu mu tegul kenn ni kullu zamanin ataa yaxtaaru xaalixuna fi xalqihi sayyidan yahdi bihi bachir Thierno Hamidou ne kullu zamanin bépp jamono ataa jamono boo xam ne dikk na yaxtaaru dana tànn ñu ne ko kuy tànn من خالقنا يعني من خم موي اجبين لسي يعني من خم موي اجبين لسي يخمي يعني مو له الخيرة يعني تعب من يعني مو دنا تعب فمي تعب في خلقه كم من نيفمي من يجي مخامل لبتي تعب من سيدا أبصر سنبو يهدي به البشر يهدي به الجبر يهدي به الكنديكو يهدي به الحمايا الله يهدي به الصبيان الدبي به تسلم بابو البشر من ديف كان حامد بن بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا شيخا به أمة الإسلام Bouchra mbégte Bouchra mbégte lanaa ñeel nañu Bouchra tuuf Bouchra ngañaay lanaa ñeel nañu ñu ni ko ñun mu ni maasal ixwaan yi ñun mbokk jullit ñëpp am nañu inna lanaa ba ñu yàlla defalee cheikhan sëriñ boo xam ni bii ci sëriñ boobu ummatul islaami moo leen xeetu lislaam ca zahir Thierno Bachir ñëpp koy jiital ñu ni teg ñu wax ma kullu zamani wax ma Bouchra waaye xamaguñu ki ngay wax mooy kan mu ni Bachiru bun Muntaxa Bachiru bun Muntaxa mu ni nuuru yudaamu bihi fi kulli naaxiyatin wal fadlu yantashir Thierno Hamidou nee na ki may wax mooy Bachir Thierno Bachirou Tall bu Muntaxa nee na soo ko xamul muy juróom wu góor wu tedd wu sell ma nga tudd Muntaxa muy juróom wu sell boobu muy juróom wa ma nga tudd Taaxa muy juróom woowu nag mooy sëriñu su ko xamul nuuru leer na koo xam ne ñu daaku bii leer na bu ñuy leerloo Thierno Bachir mu ne leer na bu ñuy leerloo fii kulli naaxiyatin ci gox yëpp mu ne wal fadlu ngëneelu Thierno Bachir wal fadlu ngëneel li yàlla defal Thierno Bachir mu ne yéen tësiru nee na Bachiru ngëneelam loolu yéen tësiru dafa tasaaroo إنكو كنا رحمة كان ولي خليفة المصطفى مختاري ثم أبي العباسي والخالي والفاروخي منتظر شنو حمد كيف يبقى رحمة كان إن خليفة المصطفى nee na موجود moo wuutu si ginnaa Muhammad mooy xalifa yénti yàlla والخمسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نانا دين كلا بيتاف من في يرين تبي تبون تانكم فلتشر نبشي وتك تانك بي يرين تبي من نكو بنا بدولي يرين تبي من نكو بنا ياتولي واي بوتك يرين متك يرين تبي ندون مشو مو جانجالي يرين تبي ندون مشو مو يدمالي yonent bi lu tax yàlla yónni woon ko mooy xamal nit ñi kan mooy seen borom xamal leen kan mooy diini lislaam moo tax mu ne xalifatul Mustafa mooy xalifa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko ak kan mu ne summa abil abbas mooy xalifa sayidina cheikh ahmad tijani chérif radiallahu taala anhu ndax nit ku nekk ka nga doon لم أمر جيدون تشيخ الحاج عمر رضي الله تعالى عنه لشيخ محمد الغالي داكار لكم تبسي الشيخ من التجار الشريف رضي الله تعالى عنه نانا يو كنت من خلفائه يا من مقدميه كنت كتير بشير دوني كنت كتير بشير خليفة من خلفاء سيد الشيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه وتعملي سمع أبي العباس وخليفة سيدنا الشيخ والغالي نانا شان محمد البشير مين mooy xalifa Cheikh Mouhamadul Ghali ndax Cheikh Mouhamadul Ghali ba muy dem ku mu wuutal Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu taala mu ni wal faaru mooy xalifa kan Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu taala anhu wa وتوفنا به آمين جمع حامد سعيد بالنور والمكمي ما خفيا بشيرنا وارث عن جده عمر دفع لي سيرين داني يكسي dafa tariqa cheikh defal ko Mawlana Cheikh Al Hadj Omar defal ko Thierno Mouhamadou Bachir Tall xalifa maam Cheikh Al Hadj Omar na ñëpp jóg taxaw bu mu dugg incha allah ñu sargale ko lool. Bachir فلا عدة تلا وقد جدكم تعال كم شرنا بشير واغني ني شرنا بشير ني مولا وتي وجود كتابلا من كتابلا حلم من الشر البشير دفع لنا وجود من الشر البشير دفع تبعي وإحسان لمفتخر كيف كو خمي دنا نياك ولا دفع عملو آجو مو خم سنتي سنتي سبو عملو مو خم والو أدونا سيني لدنا فاتن جاكو بمك سك تكار مجرد محمد البشير مجفلان تفوية waaye ci cerna xaamidu ne cerna mahamadul bachir foo ko fekk bu toogee xaddu xaddu أبو saare dafay damm أي gëtëm moom Thierno محمد البشير جناب الله ترى محمد البصير يوصل الارحام يوصل الارحام والاموال ينفقها يؤمن اليتامى ومسكينا فلا يزن جناب الله كما يوحي mooy Thierno Mouhamadou Bachir yuusilul arxaama dafay jokk ak bokk yuusilul arxaama dafay jokk ak bokk wal amwaala li ko yàlla dénk yunfiquha daf koy dépensé waat ci wàllu yàlla ba mu jeex tàkk yëpp ni yataama Thierno Hamidou ne soo bëggee gi sëriñ boo xam ne mooy tàpp jirim yi yit wii mooy tàpp al yataama jirim yi wa miskiinam ak ñi ñàkk fala yasur du leen bàyyi Thierno Hamidou ne Thierno Mouhamadou Bachir boo ko gisee muy dox wala nga gis ko mu toog kenn rek la lay fàttali muy xaatim mu tabe ba wa in raayta bashiran fi mahasinihi tazunnuhu xaatiman awaabihi karami ku sopp Thierno Bachir defal nii waaye Thierno ne wa in raayta Bachira nee na ay soo gisee Thierno Mouhamadul Bachir Kaar fii maxaasinihi ca kaaram la ca njëkkam ya muy def te zunnahu xaatiman da ngay jort ni kii xaatim la xaatim dafa tabe woon lool ma ne maye lool te zunnahu xaatiman aw waabilal matar xaatim ku tabe woon ku mënoon maye dafa am benn waay nekk ab lafañ mooy ku amul ay tànk di raam dégg xaatim dafa tabe te moom day day raam mu ñëw ba kër xaatim nuyoonteeg moom fekk xaatim ci ëtt bi. mu ne ko damay laajte xaatim mu ne ko man maay xaatim lu leen sa soxla mu ne ko man de gis nga samay tànk aw ma bëggoon ma dégg ku tane nga ma lay yalwaan pour nga sarax ma am mbaam moo xam ne dama koy war di dem di yalwaane ak di joxe samay aay xaatim woo benn jaamam jaam bi nag dafa nay jaam bi dafa nay du joxe waaye ab sëriñ dee dafa tabe nga nekk ak moom nay am na problème parce que buy joxe yow taalibe bi da ngay gëm te moom da ngay gëm te tout le temps moom day joxe dangay ceeb la xaaral bi soo nekkee moom fekk da nga nay da am problème ndax ni muy joxe moo garaaw li tax muy joxe noonu dafa xam li yàlla wax masalul lazina ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم حاجة nag taalibe bi dafa بكنيك xaatim woo bëkk néeg bi mu ñëw mu ne ko kii day yoroon am mbaam demal ci ginnaaw nga tekki mbaam mi jox ko ko sarax naa ko ko ngir jëmmi yàlla waa ji dem laaxati ci ginnaaw gis na mbaam mi de mu dellu si waat daal ne xaatim mbaam ma dafa fori dem na ci àll ba nekku fi pour xaatim ni waa mbaam mi laa la bëggoon may mais mbaam mi dem xaatim ni ko kon demal ci wudd nga yeewi fasu naaru góor wi nga jox ko waa ñu delluwaat ci gannaaw ñëw ni ko heureusement mbaam mi far na fee dañu ko booleel fasu naaru góor yi ak mbaam mi ak yow mi nekkoon sama jaam yéen ñetti ñëpp jox naa leen ko ngir jëmm yaa Cerno Bachir nag Cerno Xaaladi ni Cerno Bachir nag wa in raayta Bachiran fi mahazinihi tazunnahu xaatiman aw waabilan batal nee na xaati moom na mu mënoon joxe ak na mu tabee woon nee na noonu la sama sëriñ bii sama baay bii sama soppi bi noonu la tabee ñaata nit lay yóbbu mag par at Thierno Mouhamadou Bachir ñaata lay ngénteel ñaata lay dëjal ñaata lay fajal ñaata lay faral seeni rangoon moo tax mu ne wa in raayta ceernooy wax wa in raayta bashiran soo gisee ceerno Mouhamadul Bachir fii maxaasinihi ca njëkk ya muy def ak taaram ba te zunnuhu xaatima da nga yaakaar ni kii xaatim moo dellu si waat aw waa bilal matari wala waame buy jettali ci kaw asamaan ceerno Bachir moomu nag moom la Thierno Hamidou di waxoon ni tey nañ ko waxtaanee lu tax ñu koy waxtaanee mooy jikko yi mu wax sànq ci moom. nit su fekkee dafa mën a muñ nit su fekkee dafa xajoo nit su fekkee ni lépp luy rafet soo demee wala luy rafetal da nga fa fekk kooku roy waaye ndax loolu rek moo taxoon yàlla ni ngeen roy yonent bi laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana لمن كان يرجو لقاء لمن كان يرجو لقاء ربه لمن كان يرجو لقاء الله يرجو الله واليوم الاخر كل كوكتي مولد وقتان في منتجينك نقول لنا يلا يلا يلا ما يكون تشرنو بشير يلا كودل فلا نور الاي تشرم ويا بيني وسكت دومم جي يا بكوفي سكت yàgg ñu fee fekk ci barke Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi bëgg ci ñëpp nag di kontaan ci ñëpp ndax kii bu wootee ñëppay ñëw Thierno Hamidou du tax du tax am lu kenn nag déedéet mooy sëriñ boo xam ni fu muy dem bu demee rek ñë ña ko woo xam ni yegg si ndax bu yegg see moom li muy njëkk wax li muy njëkk def mooy làmb poosam dimbali leen ci wàllu at soogaangee di ñaanal ci wàllu yàlla loolu yàlla sax baal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi bëgg ñu ngi kontaan ci ñëpp ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala daje bi yàlla bu mu nekk suñu mujj daje ñu ngi kontaan ci ñëpp ci wuy si bi ngeen fi wuy si taaral ngeen suñu jotaay waaye fii képp ku fi ñëw insha allahu rabbi aajo boo fi indi yàlla dana ko faj ci barke Mawlana Cheikh Al Hadj radiyallahu taala ci barke Mawlana Cheikh Mouhamadou Bachir ايده الله ونصره بارك دوم دي تدجي اك باكي كلفه تدي في توغول يا دوم صغنى في نيك تبارك الله دين زيار دين بال حق دين بال نيغي الله سبحانه وتعالى نقول ني جند وما ذلك على الله بعزيز والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ngeen baal ma tuuti rek suñu téere bi ma yëkkati nii téere bi moo tudd al miskul adfar fi charx nazmi al muxtasar عن شيرة الشيخ الحاج عمر رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين للمؤلف الشيخ حامد بن عثمان بان ميتو moo taalif téere bi téere bi nag mi ngi tudd al miskul asfar al miskul asfar misk xam ngeen ni mooy gët parfum bi dàq ci parfum al miskul asfar asfar mooy parfum boo xam ne day bon ni xeeñ mooy téere bi téere bi nag Thierno Hamidou moo ko bind yax bi ba pare delluwaat sharxaa ko moom moom Thierno Hamidou lépp mu tënk ci dundu Maulana Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu taala anhu la ca ab jaam mën a xam ndax Cheikh Al Hadj Omar mooy bu kenn dul xam yàlla rek moo ko xam waaye nag. la ko ci mu bind ci téere bii tàmbalee fi maam Cheikh Al Hadj Omar gane woon jamono fa la tàmbalee def ci tukki yi def ci ay jaar-jaaram lu bëri moom téere bi téere bi nag insha allahu rabbi gannaaw suñu programme bi bu jàllee ziar bi ba ñu ba safii ni toog waxtaan na ci suñu biir ba suñu sëriñ jaar fu mu daan jaar ndax lépp lu muy moom da ciy am ndigalu Thierno Mouhamadou Bachirou Tall xalifa maam Cheikh Al Hadj Omar fas yéene nañu dédicacé téere bii te su boobaa bëgg nañu invité jullit ñëpp wax leen place ba ñu koy defee ndax jot na sëkk ndegam weesuwul ñu xam kan mooy maam Cheikh Al Hadj Omar al Fouti kon nag bu taalibeem soppeem amee lu mu liggéey ci moom loolu war nañ ba adduna bi yëpp xam ko waxuma la Sénégal waxuma la Afrique waaye adduna bi yëpp ñoo war a xam kan mooy maam Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu taala anhu ndax am na ñoo xam ne du ñuy jullit mais ñoom ba léegi dañoo jàpp ni Cheikh Al Hadj Omar bu nitu yàlla mu yonent la woon ndax mission woon bi mu remplir te remplir ni mission yonent kon téere bi tudd al miskul esver incha allah daan ko dédicacé buñ ko waree def daan ko jàllale ci télévision yi daan ko jàllale ci safina nga xam ne suñu rajo la daan fexe ba ñëpp yëpp ko incha allah loolu rek laa doon wax jullit ñi fi nekk ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jaaraama imam Mamour Tar Sylla fama a'adaba nafasati fika wa wahan laka a'udzu billahi samir alim minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subarana wa inna allaha lamal muhsin sadaqallahu alazim والصلاة والسلام على من بشر بالتسنيم وعلى آله وأصحابه الذين عيدوا أركان الدين وسيدوها خير تشيد ورضي الله عنه في المكتوب مولانا سيد الشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه وعن خليفته ووارث سره الشيخ الفوتي وتى الإيمان والعقيدة نحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم كل عام وأنتم بخير بندرابي جولبي on calminama salminama الإسلام càggal yëpp daal di Mustafa mustafa Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. sallam fo fof gandi ñalawma hannde o ko ñalawma ziyara hono juuruteɗo cheikhmul fouti hono juuruteɗo amirul Muminin ceerno men ceerno bashir muntaka taha cheikhmul fouti enen fof en gandi toɓɓere nde ko gurnam ceerno men ceerno bashir amirul muminin jewtan no du pap muhtar sidla ganda non wi na so tawi o yewti ha o gas ni dabɓiɗinɗen ɗum tan ndendinen ɗum foof e ɗemgal pulaar bandiraɓe kadi mbawa weltade kadi foof enen calmini imam mam gorto omon ɗo e dow omono jooɗi ɗum ganda kewɗo ganda enen calmina enen calmina ceerna Mamadou bii Thierno Salif Mbaye Thierno Mamadou bii Thierno Salif Mbaye ari caggal ɗo Thierno ɗo ari ɗo ɓoyani ɗum noon bandiraɓe julɓi jaajiɗi men dowlu imam yaya mahmoudou konté jaajiɗi ceerno dowlunaɓe foof on calminama on juurama fuuɗo fof salminama Pape Moutar Sylla mawɗo men halifa men Pape Tall kanum Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anhu ko joni o naati taniraɓe Cheikh Oumar Fouti on calminama taniraɓe alhaji maliki ɗum ousmane taba alayhim arrahmanu kamɓe fof eɓen ɗo ɓe calminama bandiraɓe julɓe pape mouhtar silla o fuɗɗori fof ko yettude allah o juule rasulullahi o wi allah min kuntu kan la ɓuura ko lamma ahababtu an ɓuura ko halaktu halgan fo bi woni rasulullahi 92 fo bi gonnomi ko kanŋe coowo maɗa hay goto anda kam no jiɗmi andede noon tagmi tagore nde ndewnumiɗum e rasulullahi ɗum o Allah, wi allah joppima nelaɗo allah wimo anta babullahi ayima rajim wasaka lam min hayrika la yaɗo fof an woni damal de allah kala dewɗo faade e allah rewani e damal ngal a naata rasulullahi wani damal Sadi ɗi yettade e allah a rewate damal ko ɗum o woni ko haalanno o mu wonde rasulillahi jammatta wandu raqiqal janib yujibu dawatal miskin wal miskinat o wi rasulillah wa yaqudul marda fi aksal madina yasiru rahmu yukrul taif bi hadal kulkul rafi istaa mouhammadan yuballiga risalat rabbi kamilatan linnas wa yukhriju min alzulumati ila nur wa sadaka allahu haysu asna ala khilafi rasulillah fa qala jalla min qail wa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa saawirhum fil amri wa idha azamta fatawakkal 'ala Allah buy Rasulullah ko gorko janki newiiɗo jaabotonooɗo kala noddu ɗum miskin gorko walla miskin debbo kala nodduɗo mbo noototo juurotonooɗo ñawɓe ɓuri woɗɗude e guri gaadindiran noone e sahabaji neɗɗiɗi sahabaji ko sabu oɗo jikku teddude noon waɗi mo allah rokkigol so noddi yimɓe fof notongo o wi on jikku ko on jikku seydi chahaba tijari jogino on jikku chahabndul fuutiri jogi ko on jikku ceerno men ceerno bachiru jogi ko on jikku almudu makka giɗa makka ɓiyi ko koolaɗo makka ceerno men ceerno hamidou ɓan walla ceerno yero ɓan ko on jikku o jogi kanka o haalanen seydi chahaba tijari radiallahu taala anu gullidigo ayni maade jibinaaɗo ɓurwite ko ayni maade amu ah, nakko sen kene yaare duuɓi ujunere e temedere duuɓi capanɗe joyyi tuuru wiyta ko ayni maade mo rasulullahi ƴeewe e denndaangal windere nde wi ko an yoni mbeɗa yinma rokki ɗum salatul fatihi ma udnimi fa muhtar o wi salatu astahfirullah laabi joyi tan sa wi ɗum a yaafama bakka tumi sahnono admudu cicani en fon wi ɗum laabi capan tati wonande ɓir dow laawol gotol waxaali salaatul faati li ma uxlika kuy seydi Cheikh Ahmad Tijani dañuy ne waaye jàng ne ne yaa di dund jéeri bi qad xafida alquran sarabi hijjatin majidan mujidan aya tiflin bada tifna o woni seydi Cheikh Ahmad Tijani wadde cheikhul fuuti almudu makko no neɗɗo reeni qurana pammuftare ngo yaade duuɓi jeetati ko oɗo ñalama rendini en denndineno woni ceerno yaraɓan gandiraɗo gaala allahu gaala rasulullah gaala seydi chahnu tijani gaala chahnu fouti ɗiɗo gaaluji nayyi ko meeɗa yallude ko ganduɗen ko fadimi o jarama o haali ceerno men ceerno bachir muntaga ɗa ha chahnu mum fouti e jikkuji mum o wi sa raayta woni woni raayta bachira e sa wi ceerno men ceerno men mouhamadoul bachir fi mahasinihi moƴƴi mum to kaara siragal mum to banggue allah to wallude julɓe e daranade miskineɓe to rondade teddedi to wonde bamum aliyetineɓe tazunuhu jikkama haatima o wi cikkama ko haatimuɗɗayi haatimuɗɗayi ɗum woni kare fir ko haalanno joni o barowo allah hay kam inde makko kala ɗo juulɗo kala o haala hen a jarama yo allah lomtid fawnan ɗum ɗo a jarama tazunnu njikkaa ceerno basir bom haati nan ko haati muɗɗaayi sabu waawde nokkude sabu waawde waarude allah awwaabila walla mbiyama ko ndema garila maɗaru toɓo manga toɓowo tan beeli fof keewa kujjide ceerno basir mbiɗa hilmum ko hilmum ko ko newiɗo ko juuɗum ko dokkooɗo rewi hen o ko teddino li muftagirin kala kati jimɗe garɗe makko teddinma o moƴƴinanma tawaade ɗum kadi ko gorko jankidiɗo addu ko merniɗo absar gidi kanɗo ko ƴeewi leydi ɓuuri ko ƴeewde wasmano mutakoroma teskirade ɗum kanko ceerno men ceerno basiru nde wonno ñalawma hannde o ko ñalawma makka ñalawma hannde o ko ñalawma cheikh mum fouti ñalawma hannde o ko ñalawma ba makka ceerno muntaga ahmadou muntaga cheikh mum fouti kono ñalawma hannde o ko ñalawma ceerno men ceerno chahidu nouru tan kullu zamanin ata kala zamanu garde yahtaru haalibuna allah tabaraka wa taala ene suɓo e tagore mum min halqi e tagore makko cheyinan koko ko yahdi mbeɗa ɗowo yahdi mbeɗa fewna mbin basaru kala neɗɗo jiɗɗo fewde sa rewe makka fewa o woni ceerno men ceerno basiru bandiraɓe gusranana bel tawa ɗel men te fotini hen tawde dañi oɗo jiyaɗal masaral ihwane onon dendagal bandiraɓe julɗiɗi enen fof mbiyen alhamdoulillahi jetten allah ñaganen allah kadi nde allah hettande en ɗo ceerno men ceerno basiru mum ceerno yera a jarama bandiraɓe julɓe jonde men nde ɗo ko jonde weltare tan kala ndena ɓooyiri noon baraji men ɓurata heewirde hannde hawri ɗo ɗon ko almuto haakuna fillahi won muto zawiruna fillahi won muto jalisuna fillahi yiɗdirɓe sabi allah wonduɓe sabi allah juurindiroɓe sabi allah kala mabɓe tooñaɗo yaafo sabi allah ɗum waɗi yawmal qiyamati ɗeɗo eh, denka allah ɓe noddude men ñalaɗo allah ɓe noddaɓe alaba sallllahu ahwaman yawmal qiyamati yumu nuur ala manabiri minal duhnuy yahdi umu nas leysu bi anbiya wala suhada fa qala man hum ya rasulullah qala almutahabuna fillah والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله وزلهم في ظلي يا منازل الا ظلي يوم القيامه اي كان دو دنكال دو دو نيراما عندي جارتede sappo jeegom lew wiiteede rabbi rabbi ussani ferga rasulullahi yaare duuɓi ujunere temedde ɗaye duuɓi capannayi nayyi ma allah anu noddu en ñande ɗowo ɗum kadi ɗo ɗo ardino hono ceerno men ceerno en aynal 12 février l'an 2022 dakar hono gonɗon min mbi minen min jogi aynal mutu jaalisuno fillahi hono jooɗinoɓe hakkude futuro e aynal mutasaawiruuna fillaah hono juurindirannooɓe so ɓe allah allah ko minen ko zilluhum ngaren tan hannde ɓe sappo ono e less ɗofdi yawma la zilli lan ɗofde alaa illa zilli so wonaa ɗum ɗon ɗum ɗon alaa fof dañoowo ɗum so wonaa leñol rasulullahi sallallahu alih wa sallam ana abdul haldi jumlatan wa tafsila rasulullahi awwal munasibu min jamiza buisu wa mubashiru iza yaisu

kamɓe fof soɓe ndenndi ko rasulullah ɗum o wi janngo yawmal qiyamati min fof aɗa to so tawi allah no luttama min aɗa to darade mi ƴeewa bangam ñaama sehiram o daro aboubacre siddiq rafiɗi womo bachir hum isa yeysu nawliraɓam ɓe so tawi jeese maɓɓe ɗen balliki min weltintaɓe ñande bachiru min weltintaɓe ceerno isa yeysu soɓe bittima wa haadi mum min liggantoɓe isa wafudu goto maɓɓe fof so arde délégation ñun kamɓe fof wonɓe ɓe kaalat min tan yettoye allah wo shafi humɓe min tefantaɓe isa huuɓi suur seɓe ndumbama ɗo gotel ɗumin yahata ɗumma ɓe allah yata hen miftahum jannati coktirɗe aljanna fi yeddi min tan yiɗat womi yeddi dusra jungam nana o min jiɗi liwa um hamdi adama oman siwahu illa tahta liwa adam ha yetti isa kamɓe fof ko caggal amen on woni tanum ceerno men ceerno bachir tanum seydi cheikh am tijani tanum cheikh umar fouti wona rasulullahi kanko dillini en hannde ceernata heen noddi en noddi en ke konngol la ilaha illallah mouhamadou rasulullah nde wonno ko konngol la ilaha illallah mouhamadou rasulullah no ngol wayni mawnude no ngol wayi forde onon fof nani naane pamɗe mouhtar sirle wi rasulullah noddi aliuna baɗɗaɗi ha nder suudu sohidama tukke nofuru mum mbi la ilaha illallah laabi aduna o fof ko disi hakkude defte ko ngol konngol noon ceerno yero ɓan noddi hen ɗum waɗi mo wadde deftere nde ɗum waɗi mo wadde duɗal ngal ɗum waɗi mo wadde juma o ɓan a jarama yallah juutno bal bandiraɓe julɗi kala ka dañaka sago rasulillah kala jiɗɗo huppude yo reɓe nelaɗal ma nalamin hum ahadum mihnatan illa minhu gorka araɓe o أنبت سد الأنبياء قوتهم صفتهم خيرتهم سماء سؤودهم سبب وجودهم وحب رياحهم كمالهم أنبرهم عزتهم مهدهم هديهم أنبت ولا أصابة إلادتهم وبيت أسيدهم ونقلة دائرة وهو لهم نجم ونور وضوء وركن وسعد ومنهل وإرس وإلم وهلم وكان له منزل يدل على نبوته وخلق يدل على خيرته كان قد أربع قد الأوسام في صغره متى عند رسول الله ترجع إليه الملائكة لما ساد من يأتي والله ليس كما ساد من مدى màgg la rek bisu tey jii bisu mbégte la rek bisu alxuraan la rek bisu Ceerno Yaraban waaye bisu daayir safinatu saada yëpp ñu nekk si addina bi yëpp nag ñoo dajaloo def ziyaara bi di màggal seeni sëriñ sëriñ ñu indi ko si Ceerno Ceerno defal leen si ñaar moo waral lii yàgg na nag ñaari at wala ñetti at mu nii defuñu ko ñu namoon ko loolu yàlla may ñu nag fii sànni ren ah ñu bantuwaat ñu waaye sant yàlla rek parce que yonent bi nee na ma nekk baroon adamahu fi sabilillah haramallahu xam ne dox nga lu mel nii rek ba sa tànk yi tàq suuf yàlla araamal na sa yaram safara kon mun nañu wax ni tey ñun ñëpp suñu yaram yi araam na safara waaw ñam nañ ko yàlla def ndax rasulullah la ñuy màggal rasulullah la ñuy tudd rasulullah la ñuy fi ñu nekk ñu am ci nag lekk ceeb bu mag a téere bi nga xam ne nag Ceerno taalif na ko waxoon nañ ko si 18 safar bii bi ñuy dem doonul mu ni defar na téere mais mu ngi koy def sarax incha allah bu motee dana ko wan mbooloo mi ñëpp bokk yëpp waaye si dund Cheikh Nour Fouti la ko def kon loolu tamit yombul bind benn woy rek wala bind bayt rek yombul wax ma la téere loolu may yàlla la kon nag moom mu ngi koy sante yàlla. du ndamoo nag ndamuwul mais da kay sant yàlla cer na dara jëf naxooñu daal cer na naxooñu ay intellectuel kese ñoo fi toog say taalibe ñi si gën a ay intellectuel intellectuel nag mënoo ko nax boo gisee ñoom cer na Cheikh Cheikh Cheikh ñoom Cheikh ci dan ndooy ñoom Abdourahmane ab Ablaye bari ñoom ay journaliste yi nga xam ne ay ponkal lañu ak ñeneen ñi nga xam ne xaw ma leen ak suñu maire bu baax bi di Madiop Diop ñii ay borom xam-xam lañu ñii boo gisee ñu topp nit <laughs> am na lu ñu gis dara ngeen jëf si loolu waaye bi ngay jógee ku ñu kaare yow kenn loo ak sa saak waaye tey booy dellu ku ñu mu mel na bu rasulullah bu génnee màkkatal mu karam bi muy dem di gàddaay dem madina moom rek Abu Bakar Siddiq waaye bi muy ñibbisi douze mille personnes la am tey boo buggee dellu ku ñu kaare nga ne douze mille personnes laa bëgg ñëpp la ñoo lay topp ndax si dégg lañ ndaxoo kenn waaw parce que fi nga weeru dafa dëgër nag yaa ngi wéeru Cheikh Bachir Cheikh Bachir mooy Cheikh Cheikh Oumar Fouti Cheikh Oumar Fouti mooy Cheikh Tijani mooy mooy mooy mooy Jibril mooy mooy yàlla tabaaraka moom la rek escalier la rek jara ngeen jëf kontaan nañ tey dégg nañu li ñu musul dégg wala li ñu gën di dégg si xam-xam Thierno Pape Moukhtar Sylla borom xam-xam la ku ñeme la Imam Basila Kane nee na moom dafa def baxsu si li muy def mooy def tafsir alquran fii si weeru koor gi mooy toog si télé yi di def am conférence kenn mosu ko wéddi parce que du jàll fu mu teg tànkam rek foofu la kon ñu ngi lay sant di la ñaanal yàlla na la yàlla yokk Pape Moukhtar Thierno ñu ngi lay ñaanal nga yàgg di organiser yu mel nii ñuy toog si sa kanam yeneen ñaa ko Allah tabaraka wa taala koo doon ñaanam war woon fekket ñalawmaa ji yen booy ɗum wattude sohnaade rewɓe ɓeyɗo onon fof on jaaraama allah jaaraama allah jaaraama on jaaraama min njii darnde mon walla mon fof ko woni ko yiɗɗi mumen ɓerde mum ma ceerno ñaaka ɗum te inchallah ma allah ɗum to haali télévision ji ɗi fof garɗi ɗiɗo e radio ji ɗi onon fof on jarama min jeɗɗitta noon directrice amen minen momi ganduɗa o ko kañum min jogui golle amen kañum woni chef amen on wiyete ko hajja ñummo bagangue he golle ɗe fof omo dari hen ceerno bachir on jarama ceerno zacharia on jarama technicien ji télévision ji fof on jarama yalla rokku en wattude ni ko ɓuuri ceerno men ari ko dilluno ko nane fof noon ko dillere nde fof ko ceerno men ceerno hamidou yaraɓam kañum naati mana dentalla ene waɗi tantaji tantaji rasulullahi pular kalani seɓe coynima woni yimɓe tantaji ɗi beltoto ene waɗi tantaji so coynima woni yimɓene cakko ɗumen en beltoto comme ɗiɗo tantaji seɓe coynima ko ene ceerno yaraɓan en ceerno basiru ene cakko tanto jiitake ne dilla yo husu no kaaba dillirnoɗen rasulullahi feeñade aduna malat mamina mal arkani awo bimana hatta sajada ta'asima mustawjiba ta'asimi muhtarami kaaba dilli kaaba yerɗi saba rasulullahi feeñi tanto men oɗo hannde o dillat o yerɗat saba waliyaɓe allah taniraɓe rasulullahi taniraɓe cheikhtijani taniraɓe alhaji malik ceerno men ceerno bachir muntagaɗa ha so sakkima tan on tanto wel Ya, ya, e jaɓanoɗo ceerno men ceerno yero bande sehil moon mahamadou mouhtar tin on jarama yen battunimo wuuri kadi mi totto ceerno ahmadou ahmadou bara ndongo jeyaɗa jau kot koɗɗoto madina guna so hari pula awal welto so hari wolof a welto ko hafiz alquran ko da fannuji ɗi foof kadi kamu yiɗi ceerno men yara ban ko sawdi dum non ceerno amul allah jaram on jarama سيدنا محمد المختار دين اللهم صل على سيدنا Wow. الله الله الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين مبك جلتي مبك الإسلام خيط ينكب صلى الله عليه وسلم يقول لدي نيو الإسلام إلى الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sant yàlla dëgg-dëgg cant moom mi nga xam ne bu bis bi mu nee mel nii mu jage nii yànjee nii ci coobaram la ci mbaaxam la kon li ceerno di wax daa iman ñun ñëpp ñu bokk wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax nit ak bëgg-bëggam yàlla ak i ay ndogalam ñun ñëpp amoon nañu ay yéene am bëgg-bëgg يالنجو يالنا ماي نيو فكي لي 11 اك لي 12 اك لي 13 مبولم سومب يي نيو سومب تام تي بيس يوي نيغي دون نيان يالنا يالنا يالنا ماي مو سوتي تي جام بو نيو يالنا كارتام دي نك جابال نيو باي نيو سي نيو ساغو سي نيو وير سي نيو لوني با نيو ييغ في نيو تامي وورو نيو تيوري ورنا نيو واخ يالنا جيرجيف موي الحمد لله رب العالمين mbokk yi ñu ngi jiital ci nuyu gi nga xam ne moom la ñuy nuyu suñu wayju suñu sëriñ saaxibul xadara di mawlana asayidi الشيخ محمد بن بشير منتقى طه ومولانا الشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه ndax wolof dafay wax ni lu yëngu lu ne la ko yëngal moo ko ëpp doole l'islam au Sénégal dîner au Sénégal vous m'avez dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit que que que que que que que que que que que que que que que que que que tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu bu mun a yëkkatiku ba mel nii mu mel ci réew mii war nañu delloo njukkal Mawlana dit que tu Omar Fouti radiyallahu taala anhu bu lëg lekkee alal na ko gërëmee coy kon ñun nag suñu coy bi mooy Mawlana Cheikh Al Hadj Omar dit que tu anhu Seydi Taal kon nag bu ñu jiitalee ci nuyoo gi saaxibul xadra di ca Mouhamad Al Bachir def nañu li ñu war def ndax ceer mu ngi ñuy jàngal barki démbu ne nit du doon lu dul lu mu fekk ceer Mouhamadul Bachir nag moo doon Mawlana Cheikh Al Hadj Umar Al radi radiallahu taala anhu kon nag mooy suñu Cheikh Al Hadj Umar Al radi radiallahu taala anhu ndax njabootu lislaam gi nekk fii ci Sénégal kër gu ne نيانا مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي تابنا سي بير كير غوغو تيرو موغي ني واخ ني ديمب شيخ عمر نياري طالب كسل عم طالب بيمو جوخ ناصر الحق بالحق موي الفاتحه اك طالب بيغا خامني نيان سي بير كير با تبارك الله ليغا دي جولي كون كوكو بونكو جيتي دي سي نيوغي لا غروه kon ñu ñaan yàlla ba tey yal na yàlla kàttanal ko moom Cheikh Mouhamadou Bachir ba mu ñëw ci jàmm fekk ñu ci jàmm mu ron ci suufu tànt bi ci jàmm mu xoolee ñu bëtam yu tedd yooyu ñu xool ko yit suñuy bëtu taalibe yii mu ñaanal ñu ñu ñaan yàlla dajewaat fi déwén ci barke alquran al azim di nuyu asayidi alxalifa asayidi ababakar aw asayidi abubakar si ibnu sayidil Mouhamadul Mansour ibnu sayidil Haaji Malick si radiyallahu taala anhu muy sëñ Babacar si Mansour ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di ko wàccee wàccuwaayam moom it li mu doon ci ay baayam doon ko ci ay magam doon ko ci ay maamam ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yal na yàlla oyofal ko yéen ci barke alquran al azim ak li ñu waroon tudd la ca gën a bëri ñi ñu jiitu tudd nañ ko xanaa dañuy résumé rek lim délégation yi nga xam ne fa tabaarakallaahu yi ñu jot a bind ak yi nga xam ne moo teew ci kayit bi bu ko defee yii yóbbaale yeneen mboolem délégation yi nga xam ne ñu ngi ci suufu tànt bi wala ñëw lañu fii ci Scat Urbam tudd it lenn ci ay tur tur yooyu ñuy tudd it fa tabaarakallaahu ñoom ñooy yóbbaale géew yeneen tur yi nga xam ne fa tabarakallahu ñu leen tudd ndax boo bëggee tudd ñit fi tànt bi yëpp góor ñi ak jigéen ñi boo moytul jàng ko doo tawat ma ëllëg fi la lay fekk kon balaa boobu nag ñu doy lu wante suñu biir ida qaama al baadu saqata anil baaqiin kon bu ñenn ñi taxawee ñu tudd leen rek fa tabarakallahu ñi ñu tuddul ñi nañu yëg ni nu tuddul ni nanu yëpp ni noo ngi dugg ñu ci biir ñooñu ndax lii سنة الله في عرضه ومنهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص القرآن الكريم نيكو جانغال يونتي بري بري بري بري بري نيو نيب سيني تور نيو تي القرآن الكريم خمسة 124000 بو بوغون تود سيني تور تي بير القرآن الكريم بو موتو دو ام يني سواري غي جاتي 313 يغا خامني نيوم لا نيو يوني نيوم نيب ويتام سيني تور نيو تي القرآن الكريم لا نيو تي القرآن الكريم تور نياف اك جوروم يونتي مو فنيو kon nag ñañu tudd ñoom yóbbaale nañu ñeneen ñi li jiitu ci sant gi ak ngërëm gi mooy ñu ngi sant waa Scat Urbam ñëpp ndax li ji njaat ñoom ñooy njaat ñoom ñoo dalal lii seen sens la Thierno seen sens la moo tax bi mu nekkee seen sens nangu nañ ko ñu ubbi yaatal ba mboolem gan fu ñu mun a fu ñu mun a bàyyeeku ci réew mi ak réew ñu daal di leen dalal ci ñetti bis yu tedd yi nga xam ne muy bis Mawlana Cheikh Al Hadj Omar Fouti radiyallahu taala anhu kon waa Scat Urbam gàcce ngaaraam ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla tabaraka wa taala ak mu ne na ngeen yëg yokkute ci biir ak ci biti ci barke alquran al azim te laa shakka amul benn sikki sàkk di insha taala di ngeen yëg yokkute ci biir ak ci biti délégat daayira yi nga xam ne ñoo tënk ci daayira safinatu saada bi nga xam ne mboolem daayira yu bootu ci gannaaw Ceerno Hamid Yoroban mii ayyadahu llahu wa nasara yal na yàlla kàttanal ko te dimbali ko te guddal fanam daayira yëpp ñu ngi tuddee seen bopp daayiratu safinatu saada mooy gaalu texe damay deg leg leg way kat di wax ni mawla yaay dawal gaanu taxi bi ku ci duggul ku ci duggul ñu dem deug la Seydi El Hadji Malick mun na mawla ya sheikh al haji Umar al fudi yu gaalam nga ndax bi ci noppi rek mom la ko jox kon bo leene mawla moy dawal gaanu taxi bi aha kay mawla kay mun na dawalal sheikh al haji Umar al fudi yu gaalam nga moo tax téeram bu tedd kooku mu tuddee ko safinatu saada gaaru texe ku ci tàbbi rek texe nga adduna ak àllaaxira yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu ah fa tabarakallahu daayira Mbambilor ci njiital Thierno Amadou Ba sant nañ leen gërëm nañ leen bikin kadalika soxna Aysata Daraane di suñu way jub bu baax ah njiijuloon fële ca Fuuta cheikh Ousmane Diallo niki nonu suñu dëkk bu toj bu tedd ba di doondu fofu it fa tabarakallahu suñu wayjur yu tedd ndax def nañu délégation bu mag bu rëy ñew nañu ba sànq rek Thierno Baba yahya mu ngi wax ni ren yokku nañu lim boo xamni xamul lu mu tollu seen njiit muy Thierno Yaaya Bokara Gueye ànd ak suñu wayjur ju baax Baba Hamadal daira safinatu saada bu tamba samba kuli moo moko jite mauritanie ah suñu fa tabarakallahu general bu tedd bi di ceerno ibrahima njaaj mbolo biran ceerno amadou kan dum nga law fa tabarakallahu muhammadul hasimiyu Sangor andak suñu wayjur bu tedd neena na buudi sangor sangor noonu la de gay kaada ak kara woylu ci leen jiite mooy makki baa caaro caaro gannaaw raay fa tabaarakallaahu xuray sangot moom it moo ko jiite daayira yoof ki ko jiite muy nen ne njaay daayira fa tabaarakallaahu ah, soxna salaba kii suma jumul maa ngi dégg Thierno di wax ni kii moo ko njëkk sosal daayira fa tabaarakallaahu wax na ci wax yu yaatu kon moo it fa tabaarakallaahu moom soxna Salaba jigéen ju baax la daayira moom tamit saada muy ki ko di Jeynaba Dooro aseeg naa ki leen jiite ñoom it di soxna May ki ñu wax Amadou Ba moo jiite daayira Safinatu Saada Danifor Jeewo Añ moom moo jiite daayira Safinatu Saada cité bii gaay bi gaay fekk bi ay de bi ay waaw soxna Aminata Ba moo ko jiite kuña kaari di dëkk Ceerno foofi fa tabaarakallaahu kii ko jiite di mag ci Ceerno di Ceerno di baa ban moom moo ko jiite ànd ak doomu Ceerno ki nga xam ni mooy baa hinne ban ni ki noonu xol ko ki ñuy wax Mamadou Diop moo jiite daayira Safinatu Saada daayira Safina bu soxna salamata sow mboolem daayira yi nga xam ne ñooy safinatu saada yi bootu ca gannaawam ki leen jiite mooy soxna salamata sow menn di suñu tànt fa tabarakallahu ñoom it sant nañ leen gërëm nañ leen ni ki noonu yi tamit soxna mariam ba moom it mboolem daayira yi ca gannaawam ñoom sant nañ leen gërëm nañ leen mooy ay daayira safinatu saada ndax kenn ku ne li nga yore ci ci ay daayira safinatu saada guñ ko bëggoon lim moo ëpp liste bi nga xam ne moom laa yore kon nag ki nga xam ne moo leen jiite di seen jaati gi fii ci kër gi buñ ko tuddee rek fa tabarakallahu mu yóbbaale mboolem ñi ca gannaaw di gërëmaale foofu it suñu tànt ju baax di soxna na moom it ñu ngi koy gërëm di gërëmaale tamit nee na Mariam Cherif Haydara di ko sant ci ganam ci taxawaay bi ah ki nga xam ne nag mooy taawu kër gi di Ceerno Mouhamadou Ban di taaw ci Ceerno Hamidou moo ne ñu koy sant di ko gërëm ndax uuf gi nga xam ne moom la uufal Ceerno njabootam bi yëpp mag ak ndaw góor ak jigéen kenn ci ñoom jooyul kenn ci ñoom xiiful ndax Ceerno Ceerno Mouhamadou Ban mu ngi leen taxawee ni wayjur war a taxawee fa tabarakallahu njabootam sincu bu mag rew ki leen jiite moom it mooy Mamadou mooy Mamoudou Ndiol ni tamit daayira Safina bu Gàmbi ki leen jiite mooy Ban ni tamit daayira soppe nabi fii ci aslem Grand Yoff ki leen jiite mooy sintu bu mag bu gorgo ndax dafa am réew am worgo kooku tamit ki leen jiite mooy Thierno Cherif Diallo mi nga xam ne moom a ah jàmbaar la ci kër Thierno Hamidou Yoroban Nouakchott Femme ki leen jiite di soxna Mariam Mbaye sa Safinatu Saada bu Mbumb ki leen jiite di Abdoul Ibra Diallo daayira fa tabarakallahu Kaajon ñoom it ki leen jiite di soxna Aminata Sow ah, géejuwaay daayira safinatu saada bu géejuwaay ki leen jiite ñoom muy Abdul Sow ni ki noon daayira safinatu saada bu Cees ki jiite di capaato ka daayira safinatu saada bu dalal foora ki leen jiite yi ñoom di ifra jibi ali sow ni ki noon tamit daayira Ziguinchor ki leen jiite di Ceerno Jallo ni ki noon tamit jas jas dëkk la boo xam ne ñoom it fa tabaarakallaahu tey def nañu délégation boo xam ne bi ñu duggee ci zaawiya Cheikh Al Hadj Umar al Fuuti bi zaawiya bi dafa mujj fees ki leen jiite di El Hadj Ousmane Siis Mbuur daayira Safinatu Saada ki leen jiite di Maymuna Taal mu mel ni suma juumul ci wàllu daayira yi liste bii lañ ma joxoon muy daayiratu safinatu saada ah bi ñu dolli léegi di soxna Ramata Ndiaye ñoom it fa tabarakallahu ñu ngi bokk ci daayira safinatu saada yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi bootu ca gannaaw Ceerno Hamidou Yoroban yal na yàlla tàbbi ñëpp ci biir safinatu saada bu Mawlana Cheikh Alhaaji Umar al Fuuti radiyallahu taala anhu gannaaw loolu ñu dellu ci jëmm yi nga xam ne war nañu seen war nañu tudd seeni tur tudd gi ñu leen di tudd moo waral ñu ñu wuutu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi bii ci biir tànt bi ñu ngi ronu ci suuf tànt bi bu ko defee ci ci njëkk tudd ki nga xam ne mooy njaatige ñépp di maire di maireu Grand Yoff kooku mooy kan di ma jóob jóob kooku li di wax daa iman nekk ci nguur loolu boolewu leen ndax bi leen di yàlla di boole boobu bi ñuy def gàmmu ci kër ga ay baas lañu doon luwe moom ma jóob mii monsieur le ci ñi nga xam ne ñoo doon installé courant bi ci suuf tànk boobu ba di yàlla di dogal yàlla di dogal ba yàlla sedd ko cër bi moo tax moom daa iman day wax bu ñëwee kër Thierno Xaadim ñëwee fa ngir sol mbubb monsieur le maire def fi ñëw ngir taalibe def fi ñëw ngir njaboot def fi ñëw ngir doom kon monsieur le mi nga xam ne yaa dalal gan yëpp ñu ngi lay sant yooyu di la gërëm. ni ki noonu it Abdoulaye Daouda Diallo ministre d'état ñëwul waaye Thierno nee na yónni na fi délégation bu rëy ne ñu ngi koy sant di ko gërëm ci turu Thierno Hamidou. ni ki noonu Oumar Abdoulahi Ba ki nga xam ne mooy directeur Mirail Vert mboolem garab yu ñu war a ci réew mi mu aju ci wàllu nguur bi moom moo ko jiite moom it ah, dafa lekk ci yoonu tukki waaye yebal na fi njabootam yebal fi délégation am Thierno nee na moom ngi koy sant di ko gërëm suñu préfet bu baax moom di. jóggeel ngóor ngóor ngom kooku moom xaw ma tey ni ceen waxee sànq waaja moom mooy buur xamuñu ñooy buur waaye daal fa tabarakallahu ne xam ni ñëw na ci tàkkusaanu Mawlana Cheikh Alhaaji Umar al Fuuti moom it Ceerno mu koy sant di ko gërëm du ñàkk moom insha allahu su Ceerno ñëwee moom ak monsieur le préfet insha allahu taala danañu jël kàddu niki noonu colonel Amadou Ousmane Ba moom it Thierno koy sant di ko gërëm bu ko defee ñu tàbbi suñu kilifa diine yi nga xam ne lu taaru ci lislaam ñoom ñoo ko taaral ah ki ñi ciy jiital nag ki nga xam ne mooy suñu waajur bu tedd bii ñëw sànq di góor gi Papa di sëtu Mawlana Cheikh Al Hadj Umar al Fuuti magla magena tanki fa tabarakallahu neexul waye dal neena takku saaru mamam ji lu mu meuna def insha allahu taala moy jëmm ju tedd ji ngeen di seen écran bi yal yàlla baye ko fi lu yàgg mu yàgg wéttali njaboot gi yàgg wéttali keur Mawlana Cheikh Al Hadji Umar Fuuti radiyallahu taala anhu ki ñuy wax yusuf Ahmad Ben Jaloun député la. moo ne Thierno nee na ñu ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaayam yàlla gis na yàlla yàlla fay ko yiw ci barke alquran al azim Thierno Cheikh Tall bu Thierno Makki Tall moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax jotaay bi seen jotaay la tàkkusaan bi seen tàkkusaanu maam la bëccëg seen bëccëgu maam la ngoon yi seen ngoonu maam la guddi gi seen guddi maam la. programme bi am li fi waxtaan waxtaanee yépp la ngeen xam ne seen maam Mawlana Cheikh Al Hadj Umar Al Fouti radiyallahu taala anhu moo ko moom. ni ki noonu Thierno ngi sant doomu ndeyam seexam donte ne nekku fi waaye moom tamit def na teraanga bu rëy jëmale ko ci kër gi di Sayyidi Chérif Makki Haydara ñu ñaan yàlla yàlla sàmm ba mu ñibbiwaat ci jàmm fekkaat ñu ci jàmm ni ki noonu ñu ngi gërëm di sant suñu sëriñ. di sët ci Mawlaaya Seydil Haaji Malick si radiyallahu taala anhu di sëriñ Ahmada si bu sëñ Moustapha si Jamil bu Seydi Aboubacar si bu Seydil Haaji Malick si radiyallahu taala anhu moom it mu ngi nii ronn ci tànt bi toog ci wetu Ceerno kon Seydi Ahmada ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la wàccee sa wàccuwaay di ñaan yàlla tabaraka wa taala yow li nga doon ci sa kër maam uuf ko uuf njaboot bi doon ko sa kër baay yal na yàlla oyofal yen gi ci barke alquranil azim ni ki noonu tamit Ceerno Mouhamad al Xuseyni Ba fale ca parcelle moom it ñëw na ànd ak njabootu Ceerno al Xuseyni Ba yëpp def déléga délégation bu rëy ñoom it ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci turu Ceerno Ceerno Cheikh Oumar Tall mi nga xam ne moo toogal njabootu Mawlana Cheikh El Hadj Oumar Fouti yëpp fële ca xalwaar moom it depuis démb ba tey mu ngi fi nekk ak njaboot gi moom it teer mu ngi koy sant di ko gërëm ñëw na démb ñëw na tey te incha allahu taala dina continuer nekk ak ñun ba programme gi jeex noonu it doomu ndeyam ba tey di sëpp Mawlana Cheikh El Hadj Oumar Fouti radiyallahu taala anhu di Ceerno Mouhamed Nazir Taal. mi nga xam ne tuurandoo caatu cheikh alhaaji umar al fuuti yu radiallahu taala anhu cerno nazir ngeen tamit ñu ngi leen di wàccee seeni wàccuwaay ci ndigalu cerno men cerno hamidi roban ni ki noonu cerno ngi sant ba tey soppem xaritam rakkam di cerno ahmad tijaani ba bu cerno jibril ba bu mbambiloor ak rakkam sayid alhaaji malik si ba donte ne ñëwuñu waaye yónni nañu seen rakk di Seydi Moustapha Ba ñoo it ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla tabaraka wa taala fu ñu nekk yàlla na yàlla sàmm leen ci barke alquran al azim ni ki noonu fa tabarakallahu ñu ngi sant di gërëm ni ki ba tey ñu ngi sant di gërëm ki nga xam ne mooy mu Salif Mbaye di muallimul Qur'an moom it moo ngi koy sant di ko gërëm Thierno mu ngi koy wàccee wàccuwaayam ni ki noonu oustaz Massyla Kane kooku même suñu ko tuddul xam nañ ko ni mu mel ak Thierno moom it ñu ngi koy wàccee wàccuwaayam noonu it fa tabarakallahu Mouhamad Salif Ba moom it fa tabarakallahu mu ngi fi su ma juumul ci wàllu tur yi jotoon naa li pour daayira soppe nabi bu aslem Grand Yoff bu tuddoon nañ ko yii tuddoon nañ leen daayira soppe nabi bu aslem Grand Yoff ma jigéen jas yii yëpp fa tabaarakallaahu tuddoon nañ leen comme que temps baa ngi dem dafa guddi tamit Thierno mu ngi ñëw te it war na am ñu jël kàddu balaa Thierno di ñëw moo tax ñuy dàqante taan yi kon bu ko defee jëmm yi ñu tudd mbokk yi ñun ñëpp ñu doylu ci ñoom ñu yóbbaale ñun ñëpp géew ndax li Thierno di wax daa iman ki def njëkk mun na fàtte li mu def ki ñu defal teraanga it mun na fàtte liñ ko defal waaye yàlla mi tax ñuy def yàlla moom du fàtte kon ko comme que yàlla yëg na ko yàlla na yàlla fayloo ñëpp ci barke alquran al azim balaa ñuy juum mboolem presse gi fi teew mboolem presse bu teew fii ñu xàmmee la xam la ñu ngi lay sant di la gërëm depuis démb nag ba tey ca tàkkusaan ba ca malaanu wazifa ba ci xadatul jumaa ba ca waxtaan ya ca gannaaw yëpp dañ ko génne ànd rek mbokk jullit yi nga xam ne jotuñu woon ñëw ñu nekk fii ci réew mi wala nekk ci bitim réew ñu ngi leen suivre programme bi kon yéen ñëpp cee nañ leen di sant di leen gërëm. di ci jiital nag safinatu saada bi nga xam ne suñu moomeelu bopp la nga xam ne Ceerno ci jëmmi boppam moom moom moom rajo boobu moom télé boobu di safinatu saada suñ njiitalu suñu directrice di soxna ñumma ba moom it yal na yàlla taxawu ko yal na liggéey bi jëme kanam ci barke alquran al azim ni ki noonu it ñu ngi sant Malikia TV bu Seydi El Hadji Malick Sy di ñaanal fa tabarakallahu directeur bi ak mboolem ñi nga xam ñu ci biir télévision boobu di liggéey yàlla na yàlla jàppandal leen kàttanal leen ci barke alquran al azim ni ki noonu tamit 2STV ñu ngi leen di sant di leen gërëm asfiyaay ba tey bu Seydi El Hadji Malick ñu ngi leen di sant di leen gërëm gis naa fi ci micro yi ma yore Al Maktoum ñoom ñu koy sant di ko ni ki noonu tamit Al Agidat TV ñoom ñu ngi leen di sant dilen leen gërëm Kalau jalan lu dul loolu mbokk yi ba tey liñ ciy teg mooy bégle gi nga xam ne moom lañu ñu Cerno Hamidou Yero di ñu bégalee ñun ñi nga xam ne ñoo fi jot a teew ak ñi nga xam ne jotuñu teew fa tabarakallahu ñu nekk seeni biiri kër wala ñu jàpp seeni rajo di déglu tàkkusaan sayid alxaaj sayid alxaaj Umar al futi radiyallahu taala anhu bi ne ren yit yàlla dimbali nañu ci daara ji nga xamni moy daara mawlana Cheikh Al Hadj Umar al futi radiyallahu taala anhu yàlla wërsëgal nañu juróomi njaboot wottu nañ fa yit al qur'an al karim cierno neena li ndamu islam la ndamu jullit gi yep la ndamu Grand yof la waye tamit ndamu aslem Grand yof la waye tamit batay ndamu Scat Urbam la. moo tax Thierno mu ñu koy yëgal di ñu ko béglee tamit ñu ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may barke alquranil karim xale yooyu ñu lim seeni tur ki leen di jiital nag ki leen di jàngal di Mawlaaya Abdul Aziz Dem moom it yàlla na yàlla fay ko yàlla na yàlla fay ko barke alquranil karim ki ci njëkk mooy Thierno Abdul Wahab si ak Yaqub Mamadou Ban Yaqub Mamadou Ban bii sëtu Thierno mii la. ndax Mamadou Ban taawu Ceerno kii doomam la tey la moom it bokk na ci ñi nga xam ne wattu nañu alquran karim yal na yàlla may ko mottali yeneen fànn yi nga xam ne ñoo nekk sa gannaaw ni ki doon ki ñuy wax Mouhamad Thiam ak ki ñuy wax Alhaji Ndiaye ak ki ñuy wax Haaruna Mamadou Ndiaye juróomi ñii ñoo wattu ren alquran karim ñu ñaan yàlla yal na yàlla may leen ñu mottali des li سيري شهادة يمين ورا جه مي سيري دبلومي دهنا نو خارج إن شاء الله تعالى بتصير من يو بوكا دفع بوبر دفع وخي مسلم يروى بوسوا بيار لم يدار لين جه سيري دبلوم سيري شهادة يوي مي سنت على تمن بتي بيجول ماري جل جل تيار مغني يفتري سوبر دفع مولم نمو أنجازه ونتبسي مطلنا لك kon moom it yal na yàlla motal léppam ci barke alquran al azim yal na yàlla taxawu ko ci biir taxawu ko ci biti kon bu ko defee juróomi xale yooyu incha allahu bu ne danañ leen jox seen i diplôme mooy seen i shahada shahada ngir wottu nañu alquran karim du ijaaza ijaaza il mu am fi nga yegg ñu jox la ko tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu yegg si foofu bu ko defee incha allahu taala ñu ngi sant gendarmerie. nationale di sant police ci taxawaay bi nga xam ne depuis démb ba tey ñu ngi fi taxaw di toppatoo nit ñi ngir ñu nekk ci jàmm ak salaam Thierno nee na yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu ko defee léegi nag dañuy yëkkati kàddu gi jox ko suñu sëriñ ceeb waa Croix-Rouge ñoom tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm mbooleem koor yu fi ñëw mbooleem koor yu fi ñëw rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax lim dana waral ñaar. dana tax nga fàtte wala nga guddal te koo limul tamit mu foog ne dañ koo xeeb wala leneen ak leneen waaye fii ceeru nee na xeebuñu kenn suufewuñu kenn tamit bàyyiwuñu kenn ñëpp bokk yem ci bis bi kon su ko defee ñu jox suñu sëriñ Ceerno Cheikh Tall bu Makki bu Ceerno Makki mu wax kaddu yëkkati ko ci njabootu Mawlana Cheikh Alhaji Umar al Fuuti yëpp bu ñu noppee incha allahu taala ñu joxal suñu waajur Thierno wala di Serigne Ahmada Sy moom itamit mu wax ci kàddu mboolem xalifa diine yi mboolem njabootu diine gi mboolem Serigne si fi teew kon noonu la ñu wéyale programme bi ñu andi micro bi incha allahu taala jox ko suñu Serigne di Thierno Cheikh Tall. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب رضا الله الخالق عن شيخنا قدوتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التيجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا امن ورضى الله الخالق عن عن المجاهد الأكبر شيخنا وقدوتنا شيخ حاج عمر بن سعيد الفوتي رضي الله عنه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته defe naa bi ñu war a jël kenn rek doy na ci représenté kër Cheikh El Hadj Omarul Fouti ci mbooloo mi gannaaw ba ñu nuyoo suñu waajur yi fi jógee léegi Hadj Baba Mountaga Taal Thierno Mountaga Cheikh Cheikh Omar Thierno Mountaga Cheikh Omar Mountaga Taha mu fi jógee léegi. pour ngeen xam ko kooku mooy taawu sëtu kër Cheikh El Hadj Omar Fouti moom moo fi jóge léegi yaram bi naqadi na ñun biñ ko gisee sax dama xaw jaxle waaye ma xam ni nag ki ko yëkkati mooy ki nga xam ni lii mu defal maamam di Thierno Hamid am bu mu am cër ci Cheikh Al Hadj moo tax mu mën def lii ndax Cheikh Al Hadj du ku nekkee jug rek defal ko dara mun nga nekk njabootam te du la nangul Cheikh Al Hadj Omar mun nga nekk njabootam te du la nangul waaye nag su la nangulee rek àdduna xam nangul na te nangul na Thierno Hamid. ñun suñu ndax damay faral di wax ni duñu waxtaan ci Cheikh El Hadj Omar en tant que suñu maam la ndax ku fi toog ak Cheikh Omar si sëriñ soo nekkee su la naqaree ñun ñëpp dañuy dugg si biir ndax Cheikh El Hadj Omar damay faral di wax ni benn taalibe bi la am mu mat ku sëkk taalibe bi mooy Seydi El Hadj Malick kooku nit dina am loo doon te du fekk mbir ma la waaye nag Maodo dafa doon mbir ma waaye ki ko doonale nag mooy borom mbir ma mooy Cheikh Xalifa ndax ki def nit ni ko yaay xalifa Cheikh te nit kooku juddoogul est-ce que du ñu seet Cheikh Xalifa mooy kan ki def Maodo xalifa te Maodo juddoogul damay faral di wax Maodo sax sore na waaye xoolal sëñ Babacar Si radiyallaahu anhu nee na ba may ca kaw ca xadara ba kenn moomu proposé mooy Njool Fuuta di Cheikh Xaaj moom sëñ Babacar Si wax léegi muy benn càll la boo xam ne kuy ku nekk taalibe Cheikh Ahmed Tidiane dugg nga ci biir njabootu Cheikh Hadj Omar soo ko xamee soo ko xamul mooy la am soo ko gëmee soo ko gëmul mooy la am fii ci réew mi amul ku génn Cheikh Hadj Omar moo tax suñu daaw dara waxoon léegi ak diini wa taqwa ak sidqi wal huda walam yarda ma laysa al ali anhu radiya ñu ne ko diine su doon am bàyyi yaay bàyyi diine mu ni ko ragal yàlla su doon am bàyyi yaayu ragal yaayu bàyyi ragal nag lu yàlla àndul àndu moo tax nag nit mënu ko wooteel lu yàlla àndul te ca Mohamed nag dafa toog ci ñaan bu nangu nit soo toogee si ñaan bu nangu soo buggee sa mbir soo buggul sa mbir te ñaan bu nangu nag dana jiitu si nga bëgg ku mel ne Thierno Bachir Mountakha Bara ki nga xam ne mag ñee ko jox lépp boobu mi ngi dund moom Thierno Bachir mag ñi booba ñu ngi fi di dund ci dañuy jël lépp jox ko li nga mbiri sa loxo yi mujj Thierno Hamid nag mel na ah Thierno yàlla dogal mu gëm loolu mu gis loolu ci Thierno Bachir balaa muy jot balaa muy jot mbir mi nangul ko jox ko léppam kon nag suñu ñëwee fii ci bis bu tëdd bii di nuyu nag suñu doomu bàyyi bi fi nekk Seyd Ahmada Sy moom rek mun na waxal Cheikh El Hadj Omar koy nuyu di ko ziar di nuyu mbokk yi ci jëf yëpp xam ne nag mbaax rek moo tax sëriñ bi jox ñu kàddu waaye ki ñuy xaar kàddu ki ko yor daal mooy ci loo xam ne doy na ci su defee ne ñu ngi nuyu mbooloo bi nag di leen sant ci ñëw bi ñu ñëw wuy ji woote Cheikh Xaadim Omar Fouti di nuyu suñu mag Mouhamadou Nazir Tall mi ngi fi wa tabarakallah ñoom dañu baax rek moo tax ñu bàyyi mën na toog fii nii kenn waaye ñëw ñëw ñu jàpp su defee ci loo xam ne mu ngi leen ndokkeel di la ñaanal yàlla yàlla may la gudd fan ak wér li nga bëgg liggéeyal ci diine ji itam yàlla la ko yàlla jàppandal te itam ñu dund ba am ngërëmal Cheikh Hadj Omar am barkeem wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bala ñu ko الحمد لله رب العالمين تيرنو مكي يالنا يالنا تيرنو شيخ تعال يالنا يالنا فايدة دلين فاتل لك كي نيو دون حار كي نيو دون سنت دي تيرنو محمد البشير منتقى طاها والشيخ الحاج نور الفوتي صليت الحمد لله نبغي تيون ان شاء الله تعالى نكوي حار ديكو تيرنو شيخ كامل jusika xayran yàlla yëpp ko jëre ah niki noonu ñu doon sant ba soxna Mariam Koso Mbacke mi nga xam ne moo nekkoon soxna Serigne Koso Mbacke mel ah, di wëllële Thierno Hamid Yoroban moom tamit soxna Mariam ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax ah, daayira Dugaar seen njiital Thierno Aliou Diallo ñoom it ñu sant di leen gërëm Thierno Aw Pikine ibnu Thierno Moussa Aw ca Pikine moom it ñu koy sant di ko gërëm Bab Malick Bab Malick Anne di rak di ci Thierno moom it ñëw na mu ngi bàyyi ko fële ca Vélingara moo jiite daayiratu Safinatou Saada bu Vélingara Ahmadou Babacar Mbaye Champal moom la fi premier ministre Sampal Sompa waaw ñii bind na ñuy bind kon Sompa moom la premier ministre Ahmadou Ba yebal fii moom it Thierno leen ñu ngi koy sant di ko gërëm boo delloo ci ñi la yónni woon nga ne Thierno kontaan bég na ci ñoom mu ngi leen di ñaanal yàlla tabaraka wa taala yàlla na yàlla may leen ngeen continuer te ngeen yeggal seen mission ci barke alquranil azim bu ko defee léegi dañuy jox kàddu gi suñu wayjur di suñu sëriñ di sëriñ Ahmada Si moom it incha allahu taala mu jotal kàddu yi nga xam ne moom la jotal bu ko defee ñu continuer programme bi. sëriñ Moustapha Si Seydil Jamil ko bëgg sëriñ Moustapha waa jaa nga Bay Jamil. boobu rek na boobu rek. Seydil Jamil xam nga bàyyi Ahmada Seydil Jamil 是。合。 عليها taala anhu ceeru julli ci yëpp ñu ngi dalal di la wax marhaban ahlan wa sahla di dalal donte ne yegguñu ni waa madinatul munawwara dalalee woon sayyiduna Muhammad bi mu dugg see ci madinatul munawwara ceerno njaboot gi yëpp ci yi foon jàkkaarloo sa jëmm ju tedd xam nañu ne bokk nga ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni am na ci sama xel ñoo xam ne ku bokk ak ñoom jotaay dootoo texe ji ba abadan ceer moo tax bët boobu lañ lay xoolee ñu ngi lay ganal di sàkku ci yow ci ñaan di ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla na la fi yàlla bàyyi lu yàgg lu yàgg ànd ak wér ngir sa barke maam Cheikh Al Hadj Umar Al Fouti radiyallahu taala anhu ah xanaa bëri wax ci kanam sëriñam dafa baaxul rek waaye Thierno ñun suñu la gisee dañuy mar dañuy xiir ngir xam di ñu xam li nekk ci yow donn gi nga donn sa maam Cheikh Al Hadj Moral Fouti yu donn bi nga alayhi wa tax boo feeñee rek jëmm yëpp xar-xar kanam bi yëpp ci yow la ñuy jublu Seydi Tall yal na yàlla guddal sa fan. ah ñu nekkoon ci programme sànq ba tey dañ koy wéere rek incha allahu taala gannaaw bi ñu dalalee suñu sang bu tedd bii ñu wéyal suñu programme ndax damay dégg sama mag Oustaz Pape Makhtar Sylla di wax ku am kilifa dañ koy sakkanal. te yow Thierno alhamdulilahi rabbil alamin dañ lay sakkanal yéenewul la jotaay bu yàgg ndax mageen ak yeneen ak yeneen incha allahu taala niñ ko waxee woon bi Thierno di dugg boobu ñu ngi waajal jox suñu sëriñ sëñ Ahmada si bu sijidi Mouhamadul Moustapha si Jamil bu sijidi Ababacar bu sijidi Alhaji Malick si radiallahu taala anhu moket lañ laal ci kaw. micro yi fii léegi fii nii mënuñu ko rocc. léegi dafa daal fii lay yem quoi sa micro. boo amee beneen boo ko romal ñu Thank you. Bismillah. xutba bi nga xam ni moom la ñuy jox xale bi ki koy jox di ceerno Cheikh Tidiane Makki di setu Cheikh Al Hadj Umar Al Fouti radiyallahu taala anhu nee na ñu koy def ci ndigalu sëriñ bi bismillah. jazakumullah xayran. Yaquba. ndeysaanam mu def rafet bi muy jóg mu ne doomu ndeyam seexam ah di magam di Ceerno Hamid Yoroban nee na doon wéttali ko te seen yére yi sax dafa kase yére Ceerno Hamid bi yére Ceerno Cheikh Taal bi ak yére taalibe bi kon li fa tabarakallahu du hasard yal na yàlla fay alquran al karim jaaraama jaaraama Seydi Taal jàpp jërëjëf Ngom jërëjëf Ngom jërëjëf Ngom. papa mu ngi ne di Thierno Thierno Ibrahima Ndiaye moom it na ñëw ñu dem ci kanamu monsieur le maire Madiop Diop di doom ci kër gi di ci kër gi di soppi di xarit moom it teraangay alquran ak karim ñëw na ci ay loxo. amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin jërëjëf Diop jërëjëf Diop kon. حولك يا معين وبك نستعين بسم الله الذي لا يضر ما اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فسيكفيكهم الله السميع عليم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين من عجزات الله ومشهد صفات الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي عباس أحمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه وعن جميع خلفائه رضوان الله عليهم أجمعين ونفعنا الله ببركاتهم آمين بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu mbokk fi teew yëpp di leen ziyaar di leen masaw di leen ndokkeel ah di yëkkati kàddu nag ci si ndigalal waajur bii di sunu lépp di Cerno Bachir Tall fa allah ah dañu bu jataay bu tedd bu toll nii bu leen joxe kàddu la yëkkati ko daanaka wedem léegi na njëriñ ko mën a wax fa tabaarakallaahu xanaa keroog la ma waxoon sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin radiyallaahu taala anhu keroog ca Louga fekk ñu wax ba yegg ñu ne sëñ Abdou wax sëñ Abdou ni man de xamatuma lu may wax mu ne ko waa baax boo wax rawaan bi ñëwagul rek waaye bu rawaan bi ñëwee léegi nga xam li ngay wax ah taal na nga baal ma fi mu nekk ni wetam naa xam naa bu rawaan bi ñëwul dara du ko jàpp kon na rawaan bi ñu nekk sama wet ah mukk ngi moom mën a xam kàddu yi may jékkati ci sa ndigal insha allahu taala allahuma amin wa ah di la jotal nuyoo usratu malikiya yëpp ci njaboot Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu naka dalee ci alifa bi di Seydi Aboubacar Sy Mansour ak rakkam yu tedd yi sunu baay Hadji Malick Sy moom El Hadj Abdou Aziz radiyallahu taala anhu di suñu mbaay sëñ Babacar Sy Abdou suñu mbaay sëñ Mansour Sy Dabakh ak seen rakk yëpp nag ak seen taaw ba ca Fass di sëñ Mansour Sy Jamil ñoom ñëpp ñu ngi lay jotal kàddu nuyoo. ak ziyaara ziyaaratu istimdaad fa tabaraka di jotali nuyu mboolem kilifa diine yi ci réew mi eh, ndax macha allah jataay bi jataayu diine la jataayu mbokk la mbokk ak diine la fu ñu këru diine bu nekk waaye dana fa bàyyi ko ngir yàlla jëmi diine ji ngir yàlla jëmi mbokk kon nag njaboot gi su fi bokkee doomu soxla yi nekk jotaay ñoo ko wuutu seen kilifa seen kilifa yi fa ñu nekk ñoo ñu suñu njaboot ga nekk fa ñoom kon fa tabaarakallaahu taala ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la masawu di ci woote bu tedd bii suñu mbokk ak suñu soppe bii di Thierno Hamidou Ba woote ga nga ñëw wuy ko. fa tabaarakallaa am na tegaa ko doom bi tedd di sëñ Cheikh Omarul Foutiou ah di suñu xarit di yaakaar naa asamaan yóbbu na fii tey kon nag xam ni fa tabaarakallaahu bu delloo xam fi dellu sax nañ ko fekk kenn yu bëree bare bare eh, am ne lii nag suñu borom bi tabaaraka wa moo ko jagoo waaye dafa mel ni am na ci ay jëmm yoo xam ne yii da koy wàcce ci ñoom ndax yàlla yàlla moo wax ni ala bi zikrillahi tatma'innul quluub ki tudd tur yàlla ci xol yi di dale mu ne am na jëmm yoo xam duñu yàlla waaye bërëb bu ñu dugg yaakaar naa xel ku meroon sa mer ku tiitoon sa tiitaange dañ na ku jaaxle woon sa jaaxle dañ kon nag fa tabaarakallahu jëmm yooyu ne la yàlla baaxee wërsëgal la nga bokk ñoom jataay war nga sant yàlla. kon nag li sëñ bi waxoon sànq ni ñu ñëpp ñu ànd wax alhamdulilah rabbil alamin loolu ñu ñëpp nañ koo fa tabarakallahu daal ñu ngi lay sant bu baax di la ndokkeel et fan yee samedi dimanche bii passé ci la ñu defoon fondation Mame Fawade Wele mi nga xam ni mooy wëyuru Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu fa tabarakallahu ñuy wax ci moom lu bare bare ma yëkkati fa benn kàddu ne ah xam naa ni soxna si bu toggee ceebu jën ba mu neex ba ñëpp di gërëm soxna si naan soxna see mën a togg ceeb bi neex na nangam nangam man nañu bàyyi xel mool ma nga xam ni moo nappi woon jën bi ba indi ko ñu mën koo ñu mën koo jëriñoo man leen nag ko togg ceebu jën bi mooy Seydi Hadji Malick radiyallahu taala waaye ka napp woon jën ba muy maam Fawaa bi weer waaye géej gi mu ka napp nag muy maam Cheikh Omarou Foutiyou radiyallaahu taala anhu fa tabaarakallaahu mu mel ni kon gaal ga wala wala wala ñuy wax lan pour mu jàpp jën onze mètre mètre mètre mooy mètre ah fa tabaarakallaahu bi nga xam ne moom la ñuy attiré jën yi jàpp ko moom mooy sër ba mu joxe waaye jël ma nag mooy maxtuume fa tabaarakallah diggante boobu nag di fi dox bare na macha allah waaye damay wax rek toujours ni dafa am loo xam ni maam Cheikh Omar Foutiyou radiyallahu taala anhu ak maam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhuma dañ koo séddoo fii ci Sénégal day wax ni Seydi Hadji Malick ñu wax ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ci naari anam la bijjee mbindéef dugal leen ci diine bii ñii dafa war fasam jël jaaseem xeex ak yéeféer yi ba not leen dugal leen ci diine ñii moo leen yiw moo leen mbaax ba ñu xemem diine ji dugg ci diine ji wa bi xayrihi wa bi xayrihi jalabal waraa wa li man ajaabu nay la xayri maraa kon fa tabaarakallaahu kon ñoom ñaar nag maam Cheikh Umar Fuutiyu yaakaar naa moo féetewoo ba bi xayrihi ci dexal maa fii doo bi xëy na ñu àndoon loolu liggéey ko fii ci Sénégal ba la mu waxoon ni la ma la ma la ma jëlee woon Faas ma koy duy ba ci doju Bandagar xale bii dana ko góor gi tafsir Makkaan ñan ca téeméer moo ko mos wax Seydi Hadji Malick dafa dajeeg moom ci pont Faidherbe boobu Seydi Hadji Malick mi ci muy borom kashfu na yàlla dogal muy wàcc pont Faidherbe Seydi Hadji Malick yéeg. góor gi xol ko bi nga ànd ay morom mu xol ko fek góor gi mu àndaloon góor gi tafsir tafsirul maxtaar lo góor gi tafsir makkan ñan genné alalam jox ko seen xaasi malik hadiya góor gi tafsir maktar ni ko wax xale bi nek ci daara ji rek di di ndongo daara nga yëkkati di jox ko mu ne ko waaw ndax am lu ma yalla won ci mom damay xam xam ci ni la mam Cheikh Omar Fouti radiyallahu taala anhu jele won ci fas diko diri bu ke dañu dañu bànjagar xale bi dina ko jëlee ci dëkk bànneex rek doy ngor kon fa tabaarakallaahu ànd boobu nag yàlla def ñuy suñuy sëriñ di suñu lépp fa tabaarakallaahu moo tax macha allah gaal boobu nag ñu doon wax man yi xanaa mooy gaal ga yàlla doon wax rek rabbukumul lazi yusjilukumul fulka fil bahri li tabtaxu min fadlihi innahu kaana bikum rahim seen borom mooy borom booy buur bi nga xam ne dafay jàppi gaal ci ngir lan li tax toxu min fadlihi sëñ am daana wax ni sariya géej la waaye wurus ba dikk biir géej gi nag mooy xàqiqa moom la ñëpp di wër yoon ba lay yóbbu ci wurus ba nag mooy tariqa fa tabaraka allahu kon nag la lay yóbbu ci géej googu la la la leer ci géej googu boo mënee fay mën nga dem ba dëkk ci wurus waaye wóorul ndax mën ngaa fay dem ba ci biir sa condition physique doyul wala nga dem ba ci biir nga tox nga nga nga karam loolu yëpp musiba la lay jural waaye li gën a wóor daal am sa gaal boo xam ne nga yëkki boo mënee fay egg ci wurus ba boo mënul fay egg ci wurus ba te daal boobu mooy salaatul faatiha moo Si radiyallaahu wax ñu ni xat jaa kon nag taan lay sant bu baax di ñaan yàlla yal na yàlla yàggal ci kanamu njaboot ak sëñ Thierno ñu koy ndokkeel ndax kéewal bii moo ñu ko baaxee. ah li ñuy wax léegi bu leen lekk alam na fa gën a may cooy kon nag fa tabaarakallaahu yow ñi ñu woo ci bii ba ñu bokk ak ak kilifa gu tedd bu toll nii kon nag yàlla yàlla nangu lépp képp ku fi teew aajo boo indi yàlla ko yàlla am na ñoo xam ne ñu gis leen rek faju aajo la kon nag yàlla nañ ko yàlla defal ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikhuna Tijani ci barke maam Cheikh Omarul Fuutiyu ci barke Seydi Haaji Malick ak mboolem ak sa barke taal ak sa barke mbokk mi nga xam ne mi ngi ci jawaaram di Seydou Aboubacar Sy Mansour wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf kilifa bi ñu ngi lay ziar bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yi kàddu sant kese ndax ñu ñoo xewle sant nit ñi rek moo ñu mais dañuy dooree sant bi suñu sang tedd bi di Serigne Bachir waaye di ko jaaral Thierno Amadou Ba ndax. dañu gis ne Grand Yoff tey am na ko wax léegi ne asamaan bu wàccee bu jegee da ngay taxaw da ngay laal balaa muy demaat ah, kon Grand Yoff tey kenn ñu waxal ay agresseur ak leneen dañ naan sang bu tedd daal biir Grand Yoff ku ñëpp di wër tey ñu ngi fi jërëjëf Thierno Amadou Ba parce que li ñuy bàkkee dina rafetu si mais Grand Yoff dëkku daara la. dëkk ut xam-xam la dëkku jàngukaay dëkk ut si ñaan la te ñu fa doon ñëpp ñaan la ut si yal na ko yàlla nangu te barke boobu yàlla na rox ci grand yëpp ba lu ndaw lu ñuy waxal si ay sikk-sikk yàlla ko yàlla ful mu soppi ko mu nekk mbaax si barke Thierno Bachir ñu ngi gërëm ñi fi ñëw ñëpp ñi dëkk fu sori jóge fii jóge seen dëkk ñëw Grand Yoff yàlla yàlla ñu delluwaat si jàmm ak salaam fekk seen njaboot ci jàmm di gërëm suñu sang bii di chef di sëñ Ahmada Si ak ñi fi teew ñëpp di gërëm sous-préfet Parcelles Assainies Thierno préfet lépp lu waxoon ak ñu respecté la xam nañ ne Grand Yoff daa bëri ay chantier ñëw si zawiya bi yombul accès bi dafa difficile bi waxee ak moom lépp lu mu mën pour dégager voie yi ba ñu accès si biir zawiya bi yomb def na yàlla na ko barke borom zawiya bi fenn loolu rek laa bëggoon sànni say kàddu man ak Thierno bi ñuy ànd yàgg na di gërëm Ablaye Bari ndax moom ma booleeg Thierno Amidou Ba depuis 1999 lépp lu ñu daan installé courant ma ko installé mu ne ma depuis boobu 99 am naa façon visa bu nekk pour tukki doucement tukki mu ne ma toogal grand sa loxo lay mucc 99. ma nekk maire 2014 te yaakaar naa am lu fi def loo xam ne waa Grand Yoff sant nañ ni ko yokkaat dañu beneen mandat li ñuy ñaan rek ngeen ñaanoon gàcce bañ ci am mooy ñu yaakaar ci yoonu ngir liggéey Thierno Bachir ñu ngi sàpp si yow di ko jaar waa Grand Yoff dénk te mu yaakaar rek ngir dëkk bi soppeeku yàlla bu mu tas boobu ëllëgee bu ñuy delloo li ñu dénkoon li ñu dénkoon du ñu am gàcce lu laa woon may wax préfet jërëjëf su ma santee préfet sant naa préfet Dakar sant naa gouverneur sant naa premier ministre sant naa président Macky Sall jërë ngeen jëf parce que li ngeen ñu defal fekkoon du seen njàppandal tey xeexoo bii mun naa jafe yàlla yàlla fay leen merci beaucoup jërë ngeen jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dina wax asalaamaaleykum di jiital ci nuyu bi xalif général famille Omarienne di Thierno Bachirou Tall sang bi ñu lay nuyu di la dalal jàmm ah di nuyu Thierno Hamidou Bane ak mboolem taalibe yi nga xamante ne teew nañu fi. di nuyu Serigne Amady Sy nga xamante ne jël kilifa diine yi fi Sénégal bi nga xamante ne. am na ay délégation yu bëri fi ñëw ñu mën ci lim délégation ministre d'état directeur de cabinet Abdoulaye Daouda Diallo ñu lim ci également ki nga xamante ne moom mooy Ahmed Benjelou nekk également président conseil départemental Kaolack nekk également député à l'Assemblée nationale di nuyu mbooleem mbokku yi nekk ci daayira yi ak ñi nga xamante ne ñëpp ñëw nañ fi ngir teewe bés bi bu ñu jël kàddu ci jotaayu mel ni rek sas la sas bi nga xamante ne suñu ay kilifa ñoo ko sas en tant que délégué du président de la République bu ñu jël kàddu dañu jël kàddu ci seen tour di wax ne euh, sas boobu moo tax ñuy def ay réunion ay jotaay ay waxtaan ngir xew-xewu diine yi nga xamante ne dañ koy amal ci gox yi ak goxaat yi ñu mën cee taxaw ànd ak service yi nga xamante ne mooy service état pour kenn ku ci nekk dugal ci sa loxo jàpp naa ne nag euh, am na ñu fi wax ne li ñu jëlañ comme engagement def nañ ko waaye gëm naa ne am na loo xamante ne des na ñu ngi ñaan rek at yi di ñëw yi nga xamante ne seetlu nañ ko comme gàllankoor ñu bañ ko fee gis ñu jàpp rek ne jéem nañu. te ñu ngi ñaan sëriñ ñu fi teew ñaanal ñu pour beneen yoon mu gën a yem ah li nga xamante ne moom mooy solo rajo bi nag duñ ko waaye dañuy wax rek ne am nañu mbégte bu rëy rëy ñëw xamante ne moom mooy xalifa général famille Omarine Thierno bi nag euh, donte kilifa la diine ñëw la fii waaye mbégte bi dama ne double la ndax ci suñu jàkkaarloo mën nañ ne gën nañ koo gis ndax yàlla dafa dogal nekkoon naa fu ñuy woowee Gamaaji Saare ma ñëw fi nag fekk fi ay mbokk yu jóge alwaar doon Thierno taal ak ñeneen ñoo xamante ne woo nañ ma sax ci yoon bi ba ñu déggee ne ah xew-xew bi am na ñii euh, jaataar ñi feneen ak feneen ñu won ma ne ñu ngi ñëw donc loolu nag te euh, euh, jàpp naa ne xéewal la. ndax comme ñu ñun doo dem ñu nekkoon Gamadi Saare di dem Alwaar di dem Njum di dem Ñangay ak fenn ak feneen di fa daje ak sëriñ bi mu ñuy ñaanal ah bu ñëwee ba fii nag tamit dañuy gën a am cawarte ñu teewee nekk ci wetam également talal ko suñu loxo mu ñaanal ñaanal tamit li nga xamante ne moom mooy réew donc loolu mooy li nga xamante ne bëgg naa ko jël kàddu ci njëlbeen beneen bi mooy ah di sàkku ñaan rek. ñu ñaanal ñu réew mi am jàmm réew mi am dal ndax loolu mooy li nga xamante ne ah loolu la ñu sukkandikoo ba programme ak projet yi nga xamante ne nguur gi euh, en tout cas namu na ko pour def ko ci réew mi mu matal ko ñu ngi ñaan yàlla mu ànd ak jàmm te mu nekk njëriñu askan bi yëpp. loolu mooy kàddu yi nga xamante ne dogal nañ ko fi yëkkati di gërëm Thierno Amadou Ba bu baax a baax. di gërëm tamit comité d'organisation bi nga xamante ne boole nañu ak ñoom te vraiment comme na ko monsieur le maire waxee rek mën naa si lim Abdoulaye Bari waaye tamit wax dëgg yàlla mën naa ci lim taawam bi nga xamante ne Amadou Ba bi nga xamante ne wax dëgg yàlla euh, xàddiwuñu benn yoon te sonaluñu tamit ndax yàlla dafa dogal euh, ñu nekk ay ñu lewet ñoo xamante ne yar nañu leen ci diine te loolu nag mooy li nga xamante ne daf ñuy gën a sawarloo loolu lañ bëggoon a am rek kàddu yu gàtt yu yëkkati comme kilifa yi ñoo toog mënuñu xaabaabal ñu ngi ñaan yàlla ñu teew ak ay at te ñaan également li nga xamante ne moom lañu ci ngëneel yàlla defal ñu ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. مبكي تيرو حامد نينا غناو سانت يالا جولي تي صلى الله عليه وسلم تي ديغل سونو ويجول سونو سيرين سونو ليب موي سونو سيرين محمد بن بشير منتقى طه ابو شيخ الحاج عمر الفتي رضي الله تعالى عنه ñu ngi nuyu mbokk yi yépp kenn ku ne turam ak santam ñu ngi koy ziyaar ci guddi gi ziyaar boobu nag lañu dajale boole ko ñun ñëpp daal di koy ziyaare sang bu tedd bi di Thierno Bachirou ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla ko yàlla yàggal ci suñuy kanam amin yàlla na ko fi yàlla yàggal lool amiin ndax yàgg gi muy yàgg ci suñuy kanam suñu njëriñ kese la nee na tem temu ren bi liñ ci tànnoon mooy waxtaane taxawaayu moom ceerno ci taxawaayu lislaam njaafu dana bari ak alxuraan bi na mën a annoncé wan noo toppere yeewtere hikka e ñalawmaji ɗi ko yewtude darde jinnaɗo o ceerno o e nder l'islam o wi darde makko e l'islam fa tabarakallahu macha allah goto foof ene yiito hen hoore muɗum nene taxawaye ceerno mahamadou bachir ci l'islam bi sant ñalne suñu borom bi subhanahu wa taala kenn ku ne yaa ngi ci gis sa bopp Wow. وبي سوتي بي ام بي اسم مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه اسم غوتو واي وند فوف غوتو فوف ال ييتو اي ماك هول مودو بو ني واخي نياغوت مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه فو جابوت كي مونا نيك تي كوسوف كين كوني يعني ياغي دي سبب تي جيمو جي توب دي تشيخ محمد البشير متدا o wi sowto wi woyi noon noon ko kanko woni khalifa mawlana cheikh alhaji oumar al fouti radiallahu taala anhu nena nag mbir mi bu demee noon nag ñun ñëpp war nañu xam ni comme moom mooy khalifa mawlana cheikh alhaji oumar al fouti radiallahu anhu to bange jikku e to bange gandal e to bange golle nena ci wàllu jikku moom la ci wàllu xam-xam moom la ci wàllu jëf yit moom la o wi soka wi koto bange tariqa bu dee ci wàllu tariqa la hay tariqa gooto o faltaaki e tariqaaji keddiɗi bu dee ci wàllu tariqa nag ceerno teqaniwul benn tariqa ci kaw moromom o wiide wonno alqouranil karim wi en innama almuminuna ihwatum fa aslihu bayna ahawaykum sa yehi to muriteɓe bo ɗeɓe to murit ni darnde makko ene yooɗi toon taxawaayam lu fa rafet saa yehi to qaadir en koye boo demee ca qaadiriye rafet na fa saa yehi to laayen naaɓe boo demee ci laayen yi darnde makko ene yooɗi toon taxawaayam rafet Ovi o wi eden e tijaniya e dendagal silsilaji tijaniya wode meti tariqa bi moy tariqa tu tijaniya ci ti calalalu tijani yépp darnde makko ene yooɗi toon taxawaayam rafet na fa o Ovi kala almuɗo gummiɗo isil e silsil goɗɗo ari e ovi at wiyatma ko ya gusil sil ma na peo na té na bép talibé bo xamné ñëw na ci mom té nga bayé ko ci beneen silsil ceerno lu lay digal moy na nga dellu ci sa silsil nga téyé ko baaxal ko rafetal ko o wii ɗum firtata tan ko ko ceerno o al almuuɗo o fooɗanaaki kadi kam ko ceerno o al almuuɗo o gal kon nak li da fay tektal rek mom ceerno xëccul benn taalibe na ñëw ci moom te it xëccoowul tamit mbokku sëriñ kono noon alal la rokkii mo fof waaye nag ci loolu yëpp yàlla may na ko lépp nag o wii ɗum ko dokke allah nene lii moye suñu borom bi subhanahu wa taala o wiite kadi koto bange so tawi koto bange diine l' islam bu dee ci wàllu diine l' islam en jalti ɗariqa génn nañu ci kaarul ɗariqa jagguɗo laawol e mo jaggaani laawol koo xam ne jël nga dariiqa walla jëloo dariiqa so tawii tan aɗa wii ashhadu an la ilaha illa allahu wa ashhadu anna mouhammadan rasulullah bu dee rek yaa ngi tudd baat bu set tedd bii saa ari e makko boo ñëwee ci moom o jaggirtomaa ko allah e nelaaɗo allah ene jàppi ngir jëmmi yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam so kaa ganndo kaalɗon ganndal haa nganndaa ko ganndo wudee ñëwnga nga nekk xam-xam dafay waxtaan ak yow xam-xam ba xam ni kii borom xam-xam o wi so tawi ka hakkille ko yewtide e maɗa e bange hakkilantagal ha paama holko hakkille ma o dafa te ibaada mu ne bu dee nag borom xel nga boo newee ci ceerno dalay waxtaane yow ci kaadulu xel ba nga mujj xam yow sa xel bi lan lay jëriñ ci yow ويسوكوين أعنا هيدا رسائل يمكو وعند المعهود جاها نفتر قالوا دين ما نقولنا دنجو خمو دارا أمو دارا وداري لا يخمل سدين غدل جري لوكت سبب دين o wi sawoni esgu o yurmoma o ara ɗo honono arɗo hannde ni ɓuure jaɓonɗo muɗani nenne ɓuura sersida comme min fi ñewe tawi no wirni kanko e ɓasiida makko mo yimi e ceerno ceerno ko jokkowo enɗam ceerno ko ƴewtotoɗo ɓesguji muɗum ɗum waɗi so gooto e ɓesgu ngu dañi ñalomaji baaɗi ɗi o ƴettan ko jawdi makko o waɗa hen ko goɗɗo watta hen mo tax ceerno wata limo way cabas itam way ko sëriñam bii ceeru mii ceeru Abdul Bachir dafay yokk mbokk dafay nemmeeku njabootam fu mu munta nekk te it du yem rek ci jéego dem seet ko déedéet dafay yëkkati alalam dimbalee ko njaboot boobu ba lim ciy def du ko ci def o wi ɗum noon so tawi almuɗo en yiɗina tolade a ñamtinat jikko makko comme que noon la demee nag ab taalibe boobu gi jiriñu da ngay roy jikko yu tedd yii eɗen ñaagi allah subahanahu wa taala jogi ñaan yo allah tabaraka wa taala yo allah ɓooyi lumo ɗo jeesmen ɗo yalna komi allah ɓay ɗu yagg ɗu yagg haa ɓooya juutol mo yagg yagg lool o ara hitaande aroonde nde o tawa en ɗo eɗen celli eɗen cellira mo ñew at miiɗi ñew inchallahu taala mo fekk ñu fi fekk ñu ngi wir wirde ceerno wi ɗum ko kanko tan haali ɗum e hoore makko kono ceerno yemirno hakkikilli makko no way muɗude e nelaɗo allah sallah alayhi wa sallam ko hadiya nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam yo yaltini ceerno nena kaddu yimo fi yekkati def ko wax rek ci jëmmi boppam waaye ceerno def ko doxol ndigal ngir cofeeram li mu màgg ci sayyidina muhammadin sallah alayhi wa sallam عسى يختار خالقنا في خلقي صيدا يهدي به البشر إني جرح بي المرحوم بيده قل بأنكم بشير المنتقى نعم. نور يداوي في كل o wi so wonano ɗum o wiyat yimɓe ɓe yo juuram kono sherifaɓe so ngari hay min mi yamtata julgal sherifaɓe he hay min mi wontat ujunnaji ɗiɗi mi waklita walla sappo mi naata e julgal he o wi inchallahu taala so en mbaɗi ɗum ma allah lomtini kono noon ko cheikh oumar mouhamadoul bachir joppini o wi يومي حال كو تشارو حامل يا ربان هاليكو هو دمبيني وفي آر ولي خليفة المصطفى المختار ثم أبي العباس والغالي والفاروق المنتصر وفي هولدو وفي سعيد بن نور سعيد بن نور والمكبير كان أحمد مرهور اليوم ما خفايا نتشو نبي بشير وارث عن جدي يوبل شيخ عمر محمد البشير يقصد جابي مولي وي وجوهنا بحبه تشتمشو وي مكارم الاخلاق بالجود والبشر تحيده بالسعد والخير تستمر شيخ عمر محمد البشير جابي يا رب ويوقفه يعطي وينفق كالمطر وللفقراء والضعفاء والله ينصر شيخ عمر محمد البشير جاء بموليكم ويعينهم يبعي الكل في سرور موقن الكبرى موسم الارهاب يا امور شيخ محمد البشير شيخ عمر محمد البشير جاء يربط ويعان المجنون آن ولي قرآن آن ولي فضاء آن ولي لا قروي لولا مخافتي لقلت إنه أمر hada ubaiduka cheikhu umaru lbashir yatabaraku bi mati cheikhu lbashir ƴewtande yimretowa yode wattande o wiyaade anndude o wiyaade ɓiɗɗo o wiyaade cañiraade o wi ka hada ubaiduka anndudel ma yatabaraku bi mati cheikhu lbashir omo barkiro e yimde ceerno makko o wiyaade jinnaade makko yaalewɓe moƴƴere ɗum noon banndiraaɓe kettoɗen halifo mo haalde e meɗen caggal nde ceerno hamidi rabane haali bandiraɓe ceerno wi ko fotno haalede fof ceerno hamidou yaraman haali sëriñ bi nee na mboolem li ñu waroon wax ceerno hamidou wax na ko waaye nag ceerno hamidou nee na mu ngi sant gouvernement bi di sant li ko dalee ci président de la république wàcc ci premier ministre wàcc si ministre de l'intérieur ñëw ba ci préfet gouverneur ñëw ba ci préfet ñëw ba ci sous préfet wàcc ba ci maire dëkk bi nee na mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ni ngeen taxawoo bés bii nga xam ni bésu Cheikh El Hadj Omar la Thierno Hamidou nee na ci tur way juram Thierno Mouhamadou Bachir mu ngi ñaan yal na leen yàlla féete ci fay leen yal na leen yàlla taxawu ni ngeen taxawoo bés bi sant na leen yéen ñëpp sant na presse bi sant na force de l'ordre bi sant na ñëpp. ak dawaa il yi nga xam ni ñoo teew fii muy jigéen ñi ak góor ñi ak mag ñi ah ndaw ñi yéen ñëpp Thierno Hamidou Yero man mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen bàyyi ak mi nga xam ni ku mu fat doo fanal biti kon yàlla miy fay yal na leen yàlla fayal boppam sant na leen bu baax bu ngeen jot ngeen jotal cantam ak ngërëmam ñëpp fa tabarakallahu moom it yal na ko yàlla taxawu yàlla may ko wér may ko kattan bu yàgg taxawee bés bii bi nee na fa tabarakallahu Ah, lii daal lu baax na ndax Thierno Hamidou lii njabootu l'islam bi lay dimbali ndax moom dafa jël léppam jox ko Cheikh Al Hadj Omarul Fouti jël léppam jox ko Thierno Mouhamadul Bachir Mountakha Taha Cheikh Al Hadj Omar bu ñuy wax fii diggante ak Thierno Mouhamadul Bachir fii mën nañ fee fanaan ndax fu bare ay kiiraay yu bare jaar na fa ba mu nangoo muñ nekk taalibe déglu Thierno Mouhamadul Bachir téye kurusam toog ci daara bi di déglu sëriñ bi wariwul wuutiwul doxantuwul fenn yàlla li li tey yàlla defal na ko sutur kenn ku ne gis na li mu def fii ci Escale Imba noonu la def Mali noonu la def feneen lan moo ko may nekk taalibe lan moo ko may am kilifa mais am ku am kilifa ah doo gàggal ci ko ci bett kon Thierno moom dafa am kilifa nekk taalibe nekk ci ron kilifaam. jël kurusam ni ko sëriñam sante ndax kurus kat ku ko bàyyiwul doo rus kurus ku ko jàpp bàyyiwoo ko incha allahu doo rus kon nag Thierno Hamidou Yaraban ñu nit dañu lay ñaanal yàlla sa cofeel si Thierno Hamidou Bachir kenn mënu la ci dab sa rakk nag ki nga xam ni moo sës ci yow rëkk tërëkku la. الشيخ عمر محمود البشير مرتضى طه آه. والشيخ الحاج عمر مؤمن آه. مو فدل سانتام فدل غرم فدل تشوفيرام تيو ديبي الشيخ محمود البشير جل سنخو جل لوخم بولل الشيخ حامد عندنا سراكو جابنا خا تخوكو جمبر yow ak Cherif Makki Haydara boobu ba tey fa tabarakallahu tànki kanam ngeen ci am waaye amul ci tànki gannaaw kon nag loolu dañ leen koy seedeel di di leen ko sant di leen gërëm ndax Cheikh Omar Mouhamadul Bachir mission bi muy dox yéen yéen ay ay magam yéen a mu ñëw jaar ci yoon wi ngeen dindil ko dëgg yi dindil ko xaaxaam ji dindil ko lépp mu ñëw jaar ci yoon wi. kon na peccum lii bu rafetee day bi moo jàpp ci fàgg bi ingeel ndabri ndabri lii ingeel so tawi yooni ko yumma jagge balaɗe yummiraɓe ɓe noon ko onon almuɗɗo ceerno mahamadou bachir mawɓeɓe an ceerno hamidou yaraban en ceerno sharif makke en e honoma en e honoma en e honomon en ko onon dari jaggi lawol ngol bandi ko te o yaaka tan ko yamirore ceerno mouhamadoul bachir ceerno mouhamadoul bachir kala ɗo jiiɗa omo yaha wota namna wota limbit wota wittu andu ko ceerno mouhamadoul bachir ko yamirore makko yahata a caggal yamirore ceerno mouhamadoul bachir ko yamirore cheikh alhaji oumar yamirore cheikh alhaji oumar woni yamirore ceerno mouhamadoul bachir ko ɗum o haalata juule newe allah jokke en ɗam ndewe jeni l'islam teddine koye mon ndende gone gotum onon fof ko ɗum tan woni haala makko jamma e ñalawma ɗin tugunnaani fof koye tuurde min ngoni to banngal fuuta alaa fof ɗo fuuta wuro ngo dillaani alaa fof wuro ngo jaɓɓaani alaa fof wuro ngo teddinaani alaa fof wuro ngo mawninaani e fuuta hol ɗum ɓe mawnini ko cheikh oumar ɓe njiɗi ko cheikh oumar ɓe njiɗi ko ceer mahamadoul bacirou ndu fittaandu jooɗiiɓe yimɓe ɓee hay so tawii ngaraani tottimo junngo jooɗetee makko kaalde makko aduna o fof ina yiɗimo ceer mahamadoul bacir imaani bopp gi la kawle ma xel yëpp ko daje ci moom li ci ndox foo dëgg Cheikh Mahamadou Bachir kàddu bi ciy topp mooy wax xëyat kon loolu ndam la sag la wërsëg ku am kilifa bu mel noonu nag war a sant yàlla bu baax ñaanal ko yàlla na fi yàlla bàyyi yàlla yàggal ko fi ñu nit ñu nangoo nekk ay taalibe nekk ay taalibe ci ronam dox ci waawam dox ci ndigalam ndax moom diggante ba taalibeem de pas-pas rek sa pas-pas daal fu mu toll ak noo mel ci moom ak sa pas-pas sa doog say mbir loolu lay mel. dugg tuggit naa tur yàlla bi sàmm naa saafara bi dugg naa xàll bi lépp pas-pas bi pas-pas bi bu dëgëree baax na ñun ñëpp dinañu gis le résultat bi incha allahu taala kon daal mbokk yi kontaan nañu kàddu yi rafet na lépp rafet na Thierno Hamid Yaraban yal na la yàlla taxaw may la fat bu gudd bu ànd ak du dal dal yu àlla barki ne yàlla dolli la dolli la fattu fattu bi ñëw na ba pare yàlla na sunu borom dolli fattu wa ur rabbi zidni wa qul rabbi zidni kon yàlla na la yàlla dolli mu dolli la di la dolli di la kay dolli ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke jëmm ji toog di Cheikh Mouhamadul Bachir Mountakha Taha ñu nit ñu ñaanal ko yàlla sëriñ bi ni muy ñaanalee yàlla taalibe yi taalibe yi nañ ko ñaanal yàlla moom it yàlla yàlla guddal faram ñaa ko dem yoo am na juutu nguur nag Thierno Bachir Thierno Bachir ko sauvetage l'islam Thierno Bachir ko sauvetage diine so en ñaagiima nguurdam makko woto en jejjit ñaagaaɓe yo allah juɗɗo nguurdam makko sabu so wuuri en nguurat so dañi en dañat so woni en gona ɗum o halan gona o gona noon daño o daña wona duwata hoore ma duwat ɗum tan ɗum o hala en duwo e barke allah e welaɗo mum e barke cheikh tidiani e barke cheikh alhaji oumar e barke seydou nour cheikh oumar e barke ceerno ahmad oumar hoore ndiw ceerno mouhamadoul bachir yo allah rokkumo duuri seydou nour cheikh oumar barke cheikh alhaji abdoul aziz si malik dabba e barke moƴƴuɓe ɓe waliyaɓe ɓe e salihin en e ɓutbu en e awtaɗe en e lawtaɗe en yo allah julɗo ɓurdam ma hokkuma duuɓi soyi mur cheikh oumar gila ñande jooɗiɗa e jabbere cheikh oumar goto fo yiɓore mum a wona kanum cheikh oumar wona almudo gonɗo o to wona janana wona joom binde gila ñande allah joƴƴinma lomtiɗa mawɓe yaaɓe ɓe kala almudo yii hoore mum e jamde ko ɗum allah waɗi a yiɗa hay huunde a fooɗanaake hay huunde a sohlaade hay huunde ko ɓe jogii ko a accitii ɗumen heen ko jogiɗaa ɓooɗanen nde holno ba holno waɗetee haa jam dañetaake ko jogiɗaa ko a tottii ɗum yimɓe ɓee ko ɓe jogii ko a accitti ɗumen heen banndiraaɓe holno jam waɗata haa jam dañetaake jam dañaa pooɗe pooɗe si heewi tan on goppru place ceerno noon ɗo woni ɗo ko ɗon tan woni ko jogii ko o tottii julɓe ɓee liwaam joknako jullitii li ñu yor bàyyee naa kon jàmm day sax Serigne Ahmada Serigne bi mu ngi lay sant bu baax di la dina di la xam nañ ni Seydil Hadji Malick lépp lu mu am wala lu muy ndàmp Cheikh Al Hadji Omar te loolu suulu leen jëf fakku leen jëf mujjeewu leen puso bi itam bu réer ndax bare na ni ñuy defal teraanga ñoo xam ne bu ñu duñ ko wax bu ñu ñëwee ci public wax waaye yéen ngeen wéet ak ngeen ñàkk wéet ak ngeen nekk ci public ngeen nekk kenn Cheikh El Hadj Omar mooy seen socc. Cheikh El Hadj Omar mooy seen làmmiñ Cheikh El Hadj Omar mooy seen wax fu ngeen fekk njabootu Cheikh El Hadj Omar da ngeen def ni Cheikh El Hadj Omar mu ngi nii toog kon loolu njabootu Cheikh El Hadj Omar yëpp gis nañ ko te loolu da ngeen ko doon. liggéeyam jot na nag moom ngeen defal mag ñi moom ngeen bàyyi mag ñi kon sëriñ bi mu ngi lay sant di la gërëm nee na Seydi El Hadj Malick wi yara alladi naala min alxayraati dunyan wa uxran nauhu xadiyaati o wi almudo kala ko dañi aduna e lahara ko barke ceerno mum dañi galle Seydi El Hadj Malick mi ga Cheikh Alhaji Amar sër bi mu joxe jox ko Cheikh El mu jox ñaar ci sër ba bokk ko ci pokkataaram bi delloo ko ci ëmb bi jox ko alphabet bi mu yaram mu jox ko faama doole loolu jur na ngiree jur na barke ñëpp gis ko kon si yàlla teraanga bi yàgg sëriñ bi sant na la gërëm na la te li mu la jàppee woon pour nga toog mooy njëriñ bi ndax ndax kontaan nga ci ni mu la téye ndax ceerno ceerno néew na lu ñu téye waaye bu la téye xamal ci nit ñi nga bokk kon si yàlla teraanga bi yokk boo demee nga jotal nuyoo ak ak ak ak xalifa bi Seydi Aboubacar ibnu Mouhamadul Mansour ibnu Cheikh Seydil Hadji Malick soppeem la wëllëram la moom moo ma wax ni bu fekkee am naa ku may yaakaar ci addina tey ci fi ma toll sama dund Thierno Mouhamadul Bachir génn ci. Seydi Aboubacar moo ko wax te moom du wax bàyyi nañ ko ba ñàkk caaxaan lañ ko tuddee kon nag si moom it sëriñ bi xaritam soppeem wala nag Thierno Bachir mu ngi ko mu ñaan yàlla ko yàlla def si defal shifaan taaman yàlla fëgg boppam ba ay tànkam jógaat li mu naan ci Tiwaawan jumaa ji li mu ci naan Thierno Bachir mu ngi ñaan ci yàlla yàlla na ko yàlla may mu yeggale ko ci jàmm ba indi jëlee ko te ñun ñëpp ñu teew ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. léegi nag li ñu waroon def yëpp def nañ ko ñi doon laaj ci ay jéem yaakaar naa mbaxane yi génnuñu woon baas bi kon yëpp dellu si nañu waaw mbaxane yeeg kol yeeg loxo yeeg lépp ñëw na macha allah ngeen dagale ko teg ko ci loxo sëriñ bi Sidi Ahmada sa baay Thierno Mahamadou Bachir jox na la ndigal. na nga ñaanal xadara bi ñaanal jullit yi ñaanal réew mi ñaanal lislaam bi incha allahu ndigal xam xam ngeen ni ah bi ziar yu bare dafa taxawoon ziar yu bare dañ ko tëjoon fa tabaarakallahu lépp nag tijjeeku na ziar wala fu كير سوسي فينا خمني فوف لا تيرلو تيجاني بونتا قفا حد الشيخ الحاج عمر توغون تي خلافا جودي دم كير سوسي فانا نيكون فلان كورو زياره نون في ديف لو 10 ان شاء الله تعالى ساكو دارا ساكو دارا تولو كو وارد زياره كير سوسي تيرلو تيجاني بونتا قفا الشيخ الحاج عمر 23 24 في تي وكان زيار بوبنا زيار الشيخ عمر محمد البشير في البايه شيخ محمد البشير شيخ محمد البشير شيخ ما بيشر منتدى دي جند ابو سوق سك سيد نور الشيخ عمر وقت ما شيخ منتدى وقت ما بيالا دفنا متوق في خلاف امام شيخ الهادي عمر دوم جي الشيخ عمر محمد البشير سكو غرمم ام نيارم دوخ ام كير tabaarakallahu samp fa daara samp fa xadara samp fa lislaam mu ni nag du ma def dara lu dul fii kër kii kër Thierno Mahamadul Bachir la moom gardien la gardien la ci biir kër gi Thierno Mountakha Ahmed ba muy dund ak Thierno Seydou Nourou Cheikh Omar moom mosul sàkku am fii pàkk wala terrain sax ngir leen xurum bi leen yàlla jox te naamu ma woon itam wut kër fii ci Dakar yow nag bu yàlla defee cher nga sàkku am kër nga wut kër yow war nga def loolu loolu bokkul yow doom nga. waaye sama diggante Thierno Mountakha Ahmed diggante mag ak rakkam la te ay xurum dañu koy mayante xurumaaji bokk ndir ci te Thierno Mountakha Ahmed Mountakha Cheikh El Hadj Oumar Foutiyou gis bu Seydou Nour Cheikh Oumar passé Seydou Nour nag gannaaw yàlla ak yonent bi ku mel kenn melul ne moom ca dal Basiru MS ci biir njabootu Cheikh El Hadj Omar njabootu Cheikh El Hadj Omar nag laa tudd waxuma ñeneen ni wiyaani wobbe ooyi mbiir gamari ceerno Seydou Nourou gannaaw bu Cheikh El Hadj Omar Fuuti yu wéyee chetu Cheikh El Hadj Omar yi ku ne am na fu la yàlla féetale ak mag bopp bi ku la defal loolu Cheikh El Hadj Omar moo toll noonu mais Cheikh El Hadj Omar ay mbiram dafa yaatu ñun sunu baay Mountaga Taaha bu Cheikh El Hadj Omar seen baay Seydi Aboubacar ibnu Cheikh Seydi El Hadj Malick xam na kan mooy Mountaga Taaha Cheikh Seydi El Hadji Malick xam kan mooy Mountakha Tall moo ko jëlee ci Tamba indi ko fi mu nekk fekk tubaab yi sonal nañ ko ci ci ay mbóot yi muy wane tubaab yi sonal ko ci lool daa moom Mountakha Tall fu mu buggul loo xam ni ya dof même fekkee mu ngi nekk kan baa nga nekk Dakar ndox bi dana yees bu ko neexee ci kàttan la loolu ñoo koy wax sirrul yéen amul ku am ci setu Cheikh El Hadj Omar yi lu dul aamibu Cheikh Oumar kooku rek moo am secret kooku rek moo am secret ànd bi Cheikh Oumar li ñuy wax sirrul bu fekkee kon mën na Lamine Bachirou Cheikh Omar Caxaay mu ni malakul mawti bii mawti bii jël ruux yi bu ñëwee nee lu nee na juróom-ñaari kilo xaar kilomètre malakul mawti bi buy ñëw nee na Lamine Bachirou nee na maa ngi ciy teg ci sa moom Lamine Bachiru mos moom Lamine Bachiru mos na mu ngi dox ci kaw kaw xaay bi wota mu ngi koy yóbbu ba mu ñëwee ba ci digg def bi rek boobu jamono défense amul diggante dex bi ak oto bi saaraat bu jëm ca dex ba ñëpp oto bi taxaw. mais tànku garaaw yi rek ñoo nekk ci junni bopp bi leneen mu ngi tiim ci dex mu ni waa Fuuta ngaaw suba maam Cheikh Omar sonn na ku nekk xaay ca mel gis na ko dégg nga ko boo ko nee na pesu baale bi nuuru Cheikh Omar ku ku la pese te tegul ci pes ko yàlla na yàlla may jàmm mas na ko def loolu am na lu muy def loolu du wax te du koy juntu rek loolu kenn du ko wax Lamine Bachir Cheikh Omar mais Lamine Bachir dafa jaamu yàlla ba baaraam bii ne baaraam bi mu lekk ba des wee kese kurus da ko doon def bàmmeelam fi ko suuloon ca xaay boo fa demee garab ga fa taxaw perne doom ya dafa mel ne kurus Mountaga Lamine Diop Sesegu 100 kilos 100 kilos dugub la jël teg ko di ci bay wér bi muy jël pët ba 100 kilos bu jeex salaatul fatihi lima ughliqa sa aada ku aada ku mënul yor ci seetu Cheikh Omar jamono ji dama leen laaj boo gisee ba wax lii dama bañ nit ñi ñu ŋaññ ma ñu ŋaññ ma mu ni ñu bu nit ñi wéeti naan ah Thierno Bachir wax na baayam Seydou Loum te moom fu mu toog Seydou Nourou Cheikh Omar lay wax micro yi. bàyyam li mu am lu tere wax ko lu tere lu tax moom Seydou Nourou Cheikh Omar la wax mun taxaa taaxa bàyyam kiraama ak mboot li mu am lu tax du ko wax Seydou Nourou wax. ñu amul xel yi ndax indi xa illaahi la. te naa ku dum tekki mel ne xaaral ɓumtatimi kaala ko kaalanmi ko surtout cheikh oumar e ko allah waɗanimi ko neena ceerno moutaka bu muy dund mosul am kër dakar neena seydou cheikh oumar woni o wi neena seydou nour cheikh oumar woni man de lu ma ragal ci sëtu cheikh alhaji omar yi suma mag bunta alkaha rek laa ragal ñu ne ko waay bàyyi seydou nour lu tax mu ne mu moom mu taqaanaaxa bu xoolee yàlla bu bu ajoo bëgg rek yàlla danaa ko mu taqaa loo bëgg defal naa la moo tax Thierno Seydou mu ngi ñeme moom bu xoo moom bu ne am na ma rek yàlla ni ko mu taqaa lan nga bëgg def naa mais mu taqaa taaxa moom mbiram ñetti fan rek bàyyi tëdd gene bu mu yow tàmbali tëdd njaabur xam na ni Muntaqa ah ah Cheikh El Hadj Omarul Fuutiyu ay mbiram bu weesu ñetti fan ba mu tàkk bind leetar Muntaqa ah, ah bu bindee leetar mi sànni ko si jëm yi nees tuut leetar bi boromam day ñëw ba wàcc ci tàkk te jaarul poste amul mandat amul courrier waaw waay waay waay waay kooku bu baax kooku mooy Muntaqa dara waay waay def leen nii بوسنا وقتا شيخ تجاني قلب المكتوب رضي الله تعالى عنه ترون شيخ تجاني مكي متقى طاعة وشيخ العجوة مني ما سباي دفعنا معايا بما خمي سافر بما خمي ما سافر بما كمي يوم مالك وسافر زي نمال شيخ تجاني مني سباي دفعوا خوان قصة عائل boo tegee butéel bi aay bi delluwaat fi mu nekkoon yokk wax na ko Cheikh Tidiane si ak wax na ko ñëpp dégg nañ ko même ne bu ci lii kay xanaa du di fànn la kenn du ko jeex lii kono noon <laughs> sunu baay sunu soppe nitu yàlla nga xam ni jamono ne jamono jamonul xayri wa salaama mbaax ak wa wal aafiya ak wa tawaafuq Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy Malick dafa ni Cheikh Seydil Hadji Malick moo ma jur li ma am lii lépp ci barke Cheikh Seydil Hadji Malick waaye nag taraa bu ya suma xol bii ba gis li ma bëgg gis ma am ko ci yàlla yàlla may ma ko sabab bi mu ngi jaar ci seen sëñ Nour Cheikh koor nag ne bu ñu toogee damay jox sa Seydil Haaji Maalik cëru Njuréel ma sant ko ci Njuréel waaye su ma buur ak su ma wusuul ilallaahi ma jox ko teel na say ndur jox ma loolu wax na du benn du ñaar du ñett ñëpp dëgg-dëgg kon nag Ceerno Mouhamadul Bachir mu ni leçon bi ak message bi la leen jëkk jox yéen ñii di déglu ak ñaka nar a dëgg ko ca dem. am na ñuy xam ni ñuy wokkante sax maanaam Thierno day <laughs> dooma bi naan waaye Thierno daal di wax sunu maam Mountakha Baaxa moom daal sëñ bi Cheikh Bara lay wax waaye man mii Thierno Bachir lu tax loolu. Ceerno Saydu Nuuru Cheikh Umar moo ma ci Ceerno Ahmadu Umar Hoore Ñiiwa ne ba ma fa demee juróomi leetar la Saydu Nuuru Cheikh Umar bind jox ko Ceerno Ahmadu Umar Ceerno Ahmadu Umar bu ne ah lii de ii man de Ceerno Saydu Nuuru Cheikh Umar bu benn leetar rek la doon bind waaye juróomi leetar bind ko ngir jëmm ji ñëw ci man te bi leetar bu ci ne lañ bind ci beneen bi moom lañ bind ci beneen bi mais Kowrison moo bind leetar yi ci biir digal sëñ Nour Cheikh mu ne sëñ Cheikh Amadou Mar mu ne ah lii doy na waar mais li dox diggante mag Thierno Ahmed Oumar Hoore ñii woon loolu beneen mbir la beneen domaine la waaye lépp nag yàlla say lu chama lépp nag yàlla gannaaw yàlla ak yonent bi say lu Cheikh Omar mooy mbir bi mooy mooy njaar mais li ma am tey ci tuuti tuuti lu ma am amul sax nu mu waaye barke ngi ci nag Thierno Seydou Nourou Cheikh Omar nee na moo mooy sama bi moo tax bu ma waxtaanee ba tudd Seydou Nourou Cheikh Omar wala Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy Malick Dabakh wala Cheikh na Amadou Oumar Hoore ñiiwa nee dootuma mën téye ci sama bopp moo tax xabaar bi may àndal bu ma leen di wax ma ne yàlla rek. dee loola tax muy wax waxtaane mbiru Seydou Nourou Cheikh Omar léegi nag Thierno nee na ci boppam maa ngi laaj maa ngi laaj maa ngi laaj jamono bii tey surtout Cheikh Omar Thierno Mountaga Ahmad Mountaga bu Cheikh Alhaji Omar tëdd fii te defar lépp nag balaa muy dem. Cheikh Ndour Cheikh Omar moo ko jëlee botte forcé ko yóbbu mu jàng résultat bi ñëpp gis nañ ko sëñ Thierno Madal kan moo ko dindi foofu yóbbu ko jaataar Seydou Ndour Cheikh Omar la Thierno Mouhamadul Hadi ci ñaar kan moo Mar ko nga xam ni Thierno Hady bi nga xam ni ku ku mel na moom ci njabootu Cheikh El Hadj Omar ci ma am am ak jox miskin yi ñuy lekk ak jox ñuy naan amul oh Thierno Seydou Nour rek moo ko raw gannaaw Seydou Nour moo jël deuxième waaw nag léegi nag yaa Seydou Thierno Seydou Cheikh ki ma di li mu li dimbale defar ko ci ci sëtu Cheikh Alaaji ak xale yi ñu sax sëñ Nour Cheikh ma la rek la ta kay taal sëtu Cheikh Alaaji Omar bu jàngul sëtu al Alaaji malik bu jàngul ñi nak la ñeme wax man bashir waxuma sëtu keneen waxuma sëtu yonent ñi bu ñu jàngul dañuy rusloo nit ñi sëtu Cheikh Al Hadj Omar sëtu Cheikh Seydina Hadj Malick ñaar ceerno nii ñii rek laa sañ a wax nag bu ñu jàngul dañuy rusloo nit ñi bindeef yàlla ah ah tam ah, ah. nee bu ñu jàngee itam. wanuñu nit ñi li ñu jàng. lu won leen war mat leen yoon wa jëm ca yàlla. ñu topp yàlla. topp alquranul karim ja jàngale. taalibe. defal leen taraabiya. du taraabuy bi xew léegi ci jamono bi de. taraabuy bu boobu de. oo xam ne yow ak sëñ bi yëre xàcc. saraabu bi ñuy wax mooy bi Seex Sidil Haaji Maalik di taraabu yi ana boobu téere bind def ay taalif wala bind def kurus allahu akbar jumaat jàkk tool lii mooy taraabu ay taraabu yi xew léegi ñu ngi jëm ci asmaan ñu ngi dem ca kaw asamaan dem leen dem ba xam fa leen di teeri du tax dara bu ya say taalibe bi yar leen yar leen nga wan leen yàlla nga am ñaar bu leen wan sa bopp nag wan leen yàlla buñ la bëggee def yàlla yow mi sëriñ bi lànkal ba lànk ya loolu mooy taraabu ya alhamdulillahi rabbil alamina lii la yàlla li yar ci mbindeef yi ci kon alhamdulillahi rabbil alamina waaye bi ñu ngi dem ko waa asamaan de ci suuf di dem fen di dem fale loolu de bu amee du taraabiya bi ñuy jàng ci téere bi ak bi ñuy wax mën na nekk na nekk na may jaamam mu dem ba ci juróom-ñaareelu suuf mën na may jaamam mu dem ba ci sidratil muntaha juróom-ñaareelu asamaan loolu karaama lañ koy wax karaama boo ko defee itam loolu yéegee dem taalibe yi mënuñu laa topp ndax dana dem dañuy jaar ku ci yekkati tànk doon ci suuf dëgg kon nag sëriñ bi nee na daal ne ahlu bayti rasul surafaw ah ñoo nag ñeme wala seen mbir waaye ñoo mi tey sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam لولاه ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا نوح ولا قلم ودول وان سيدنا محمد ليب يلا دي بنت دي بنت جانت دي بنت لب لوم لوم في لب ألو كان مو كان سيدنا محمد أمم نيت دار من توخ moo gën jéem boo ko waxee wàcceel sa loxo am na koo xam ne waaye Seydina Muhammad boo jekkatee sa loxo nga ni Seydina Muhammad moo gën ñëpp bul wàccee sa loxo sax na jëm ca kaw rek moom naan boo ko waxee rek loxo ba day dem ci kaw waaye du dem ci suuf waaye boo ne maa gën ñëpp wàccal sa loxo ndax am na ku ndox ku nekk ci roqam te gis ko lu tax Sayyidna Muhammad muy jaamu yàlla lu tax moom Sayyidna Muhammad ay tànkam ñëpp jaamu na yàlla ba tànk yi néewi mais deret bu ciy génn. ngir jaamu yàlla ngir jaamu yàlla bi. wa min al-layli fatahajjab bihi naafilatan asaa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuudan. yàlla ko wax. wa min al-layli wa min al-layli illa qaliilan bu muy wax nisfuhu fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qum al-layla illa qalila nee na ba muy wax nisfuhu fekk na Seydina Muhammad sallallahu نصفه او انقص منه قليلا فكان سيدنا محمد صلنا بابا صلنا لولا تحمو وحكم نعم وتحمو إني بدل تعال تبارك الله تبارك الله آه تعال لين تعال جرى جرى جف لين كي دفعنا ناكر كاها ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ما هو محمد البشير وعندنا يلم رك خمنا دف دف فهمت؟ اه اه اه اه مين؟ الحمد لله مين؟ ست سيدنا محمد مين؟ وما دانو تي سيخ سيد الحاج مالك ما دانو تي ليبوتو شيخ الحاج مالك نيبا هما؟ ست سيدنا محمد وانا سنة نبتلي لسان مام سيدنا محمد ما ما كان صلي على محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الله تبارك الله جانا سيد يارا آه، ندن كوي زياره وكام زياره وكام بي دن بي جافر دا فا ام لون فا موتو ليرال توتي داخ جامانو دي دافا تلتي زياره بي ني داف وخام زياره بو خامني شيخ الحاج عمر moo ko sampal baayam Thierno Mouhamadou Bachir Thierno moom ziar bi te Thierno Bachir ba ñu ko sampalee ziar bi bëri na yoon moom lu yàgg bañoon na yoon wi yàgg lool ba ñu ñaan jooy def lu ne mujj gi mu xam ni cofeel ak taalibe ñoom it njaboot nañu dañu war a sàkku barke mu nangul leen ko. kon ay ñeneen ñu ngi def ay ziar muy taal otam di dem di dugg ay avion hélicoptère di dem fu ne njabootu boppam bu sakkoo ziar pour defal ko ko moom am ci ngërëmam ñu mais li taxoon ma bañoon ziar bi nag dañu bañoon Thierno ñu wax ni nit ñi ah Thierno daal waaye waaye mu ngi sos fii beneen ziara te ziara baayam ca Louga mu nga foofu. Thierno Seydou Nourou Cheikh Omar dafa waxoon ni ma buggee Cheikh Seydil Hadji Malick ñeene wu ma def ziyaara ngir mu bañ a yàqal ziyaara Cheikh Seydil Hadji Malick xayatu Seydou Nourou Cheikh Omar ma xayatu man it ñoom it bañ ko sampee wax naa leen ko man it waaye ñu ni naa bay rek ak ñoo xam ñoom ñaan ko ñoom Thierno Hamidou ñoom Sodi yëpp dugg nañ ci bu gannaaw gi mu nangu rek nangu rek mooy ziar boobu ñuy def nga xam ni Thierno Mouhamadou Bachir ci boppam mooy teew toog ci xadara ba nag ñëpp takk saan bu jotee Chérif Makki Thierno Hamidou Yaramat mag ñu baax ñi dar ko mu génn nag surtout Cheikh Adama Thierno. sa ne papam Cheikh Al Hadj Abdoulaye Sy Al Amir radiyallahu taala anhu moom ci boppam sax ñëw na ñaan ko ni ceerno li Cheikh El Hadj Omar wax bàyyi mu def ko kooku nag bu fa jaaree kooku su ma saytaane la lu ma wax ma def ko kooku su ma saytaane la kon nag ceerno Mahamadul mu bu ceerno Muntaqa Ahmad moom ci boppam mooy ñëw jiite ziar bi tabaarakalla ceerno Papataan jërë ngeen jëf ñoom ñoo ko moom le 23 le 24 ceerno daf ko def Thierno Madani ñoo koy jiite kon Thierno Seydou Wéye le 23 24 na ñëpp daje wakar 30 décembre juma Thierno Seydou Nourou Tall nga xam ni Thierno Mouhamadul Bachir mii Thierno Alpha Aliou Thiam ñoo posé woon première pierre bi ak Sharif, ak Thierno Cherif Ahmadou Ali ci ndigalu Thierno mu digle jumaa ji pare na dañu koy ubbi incha allahu le ziyaara Ceerno Cherif bi mu doon moo ne ko bàyyi ziyaara bi ubbi leen jumaa ji julli ci jumaa bi ñu ngi ko dubbee suñu maam alhaaji Seydou Nourou Cheikh Ceerno ci boppam moo ko yàlla ci yàlla yóbbu ak Ceerno Alfa bu ñu paree foofu. foofu la ñuy yem ah kooku nag moom ñëpp xam nañ ko ziyaara dugg nag beneen dimension incha allahu taala bu ci yàlla yóbbee yàlla ci yàlla yóbbee ñu fekkee ko te tar ko yàlla bu ji tar dara dara lu dul ziyaara li gën ndax ziyaara la tey boo xam ne dimension bi international la waaye ku ko waral mooy jëmm ci Cheikh Mouhamadou Bachir toogaayam waxam mbaa macha allah kon Serigne Ahmada tabarakallah nga ñaan ci turu. waaye waaye balaa maa ñaan aaya ba noonu seen mu tagaa daaxal defaloon Cheikh Abdou Diagne si albatu ah loolu nag dama koy warlu ba pare moom mooy doon incha allah ah ah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 هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب وشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس سلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون هو الله خالق البارع المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض الحكيم ولله الاسماء الحسنى فاتقوه بها قل الله أبيت الرحمن أين ما تطلب له الأسماء الحسنى الله الرحمن يا رحيم يا مالك القدوس يا مولى سلام يا الله يا متكبر يا جبار خالق يا مهيمن بارك غفار يا الله عزيز قهار يا والي مصور يا وهاب رزاق يا فتاح يا الله علم يا قابل باسط يا حكم المعز يا حافظ رافع يا الله مسل يا عدل يا سميع واسع يا بصير باعث يا لطيف يا الله ربي مقدم معني يا مؤخر يا غني يا الله يا خبير يا الله متين يا واجد الولي ربي يا حميد يا الله يا علي يا الله حليم يا حق يا وكيل ماجد يا غفور يا حي يا قيوم يا الله شكور جامع يا مجد قدير ربي يا كبير يا مصدر عظيم يا الله قوي مصي معيد مفتوح صمد محيي مترع فقر يا الله تواب يا متعالي واحد الاحد المانع يا دار يا نافع يا الله يا مالك الملك رب ذو الجلال والاكرام شهيد بديع هادي يا الله يا نور منتقم قادر مقتدر مجيب يا الله يا ودود يا الله يا اول اخر كريم ظاهر يا رقيب باطن يا حسيب يا الله مخيط يا الله يا جليل ربي ويا حفيظ يا الله يا حكيم يا الله الله عفو يا وارث باقي رشيد ويا صبور يا ربنا يا الله يا الله بسير هذه الأسامي صليا على سيدنا الحامد المحمود يا الله الفاتح المحلق خاتم ما سبق المسر المكلم بخير الحق يا الله الناصر الحق بالحق جل وإلى صراطك المستقيم هادي الله ثم على آلي حق قدري قدرا مقدارك إنك العظيم يا الله رب تبارك أو رب تقدس أو رب تعالى علو والرب يا الله عبد ذليل فقير فقير خاشع وجل سجدا عاصف يا الله يا الله إليك مدى اليدا رجاء مغفرته أجل مسامحة يا الله يا الله إليك مدى اليدا رجاء مغفرته أجل مسامحة يا الله يا الله أغنم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسع الرحم تقبل الله ربنا دعوتنا مما نحب به بجاه ياسين أماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا إمام تيم آمين آمين سجد دعانا ولا تحيب سيد رجاءنا يسر لنا كل أمر رب من كرم يا خمنا غير السجام يا جعبنا الجفين يسير لنا كل امر رب من كرم يا خبنا غير السجار يا جاب الجفع سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب صلاة الفاتحة ala jarama on jarama bandiraɓe juulo musidɓe tedduɓe heɗinoɓe walla daranoɓe ayaw habrir safina tv eɗe golle golloɗen guila aljuma ha faade oɗo saaha joni allah holli on ngal ɗo dental barkingal banngal fayide o ji oɗo jeyaɗo allah walla ɓe e jeyaɓe allah kono e gargol ceerno ceerno basir mouka ɗaka chemol futere allah taala an o nani ko haali ko e ko yeewti ko e ɗo udirɗo nan bandiraɓe mbaɗan doka ceerno basir mountaga ceer samma mamoudo sy gaari kuñikaari heeɗe kaɓir ceer basir bisimilla golle ma jooɗi pey ceerno zaka ousmane ko enen e julɓe fota en nan ñaagoɗen yo allah hokki en teede oɗo saaha mo wuuri en ji khalifa o softene makko hande nde e yewtere wande fayide nde e oɗo duwa hande duwaɗo mbi hen tan ko yo allah jaɓanen jabanen jabano windere nde kara bandiraɓe julɓe koɗo uddirten yewtere meɗen nde ganduɗa taw ganduɗa ko ziyara e édition 2022 taw koye 11 novembre wonno hande noon ko 12 janggo kadi kolen 13 wonko woodi kono bandiraɓe julɓe ilal liga eɗen mbiya tan julɓe yeen kawri kadi mo wuuri barke annabi salallah ai sallam barke cheikhumno fuutir allahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barkatu alhamdulillah alhamdulilahi rabbil alamin ñu dellu santaat yàlla subhanahu wa taala mi ñu mayoon ñu commencé ko ci bismillahi rahmani rahim mu gàttanal ñu nag ba ñu yeggale ak alhamdulilahi rabbil alamin yàlla dogal na ni ñu ngi ko doon waaj ay weer di ko laaj ay fem di ko laaj ay semaine ba tey ñu mujj ci Thierno Mouhamadou Bachir maam Cheikh Omar ñëw présider ziara bi waaye ku nekk gis na ziara bi ni mu ala dawme ziara 2022 bi ak Thierno Hamidou Yoroban ak safinatu sawaada yaakaar naa ne ziar bi damay wax ni musu fee am ndax ku déglu Thierno Mouhamadou Bachir da ngay yëg ni dafa waxtaan ak xol bu feex dafa waxtaan ak yéene waaye dafa waxtaan ak xol bu sedd fa kon ñu ñaanal mboolem ñi nga xam ñi nga àndoon ak ñun ci wàccaayu ziar bi mboolem ñi nga xam ne ñi nga àndoon ak ñun ci ziar bi ba jeexagul parce que ëllëg dimanche incha rabbi dañuy ñëw ak consultation gratuite ak ziar yi nga xam ni moom moo fi des ak Thierno Hamidou waaye rek ñu ñaanal yàlla ñëpp kontaan bu baax a baax nag ci waxtaan ak surtout Thierno Mouhamadou Bachir yi mu fi feeñal yëpp waaye delluwaat soññat kilifa diine yi su sen taxaway ci njang ak njàngale ndax wax na ko ci bir euh, waxtanam sëtu mam Cheikh Omar Seydil malik kon waxale na sëtu mag ñu bax ñep suñu jangul jàngale wuñu yare wuñu kon wacc nañ yoon wi nga xamni mom la mag ñi tracé won kon jërëjëf Thierno Hamidou Yoroban wax naa ko bi ñuy commencé mani mom ñet rek moko ñor nan la rew mi di jage nan la diine di jage waye nan la tariikha bi di ñongé motax bi muy samp mu njëkk a ñëw sampu daara ndax xam na ni al madaris xablal masajid samp daara jàngale ndaw ñi waaye jàngale it naka la ñuy taxawee ci jàkk ak juma ba tey mu xëcc xëcc taxawal juma samp ko euh, ñëw nag ba lii nga xam ne moo ko fekk yëpp fa tabarakallahu yal na yàlla dolli ko wér te mottali ko mission am yi ngi àndoon ak Safina TV Haj Samba nekk ci technique bi fa tabarakallahu ak mboolem équipe bi nga xam ni moom la ñu àndal ñëpp directrice Seyda ñu ma moom it ñu remercier ko jaajëfal ko bu baax a baax ñaanal ko yàlla dolli ko tawfiq ñaanal yàlla oustaz Pa Makhtar mi nga xam ni moom fi def waxtaanu am solo yooyu avant Thierno Mouhamadul Bachir di ñëw ku nekk gis na li mu waxtaanee kan mooy Thierno Mouhamadul Bachir ak li Thierno Hamidou bind ci moom fa tabarakallahu ndax loolu rek doy na waxtaan doy na jàngale doy na wane kan mooy Cheikh Mouhamadul Bachir kon dañ leen di jox rendez-vous ëllëg incha allahu rabbi ci dimanche bi ci journée consultation gratuite bi nga xam ni Thierno Hamidou moom la toftal ci cérémonie officielle bi warte ànd ak yi mu àndal waajal yëpp incha allahu rabbi jërëjëf Samba jërëjëf Safina TV. ñu ànd seeg suñu télévision wu bopp di Al Ajdad TV di télévision wu xadara bi moom it ñu àndoon nag moom ci journée ziar bi yëpp moom mu seexandoo ak safina ñu àndandoo doxal ndox na parce que ñaari organe la waaye benn la fa tabarakallahu yal na yàlla dolli tawfiix ba suñuy ñëwaat ci ziar bi déwén ñaari organe yëpp nekk télévision